ma daanaka taxul ñuy wax jullit ñee tax ñuy wax dangeen di jaamu seen boroom ba dee ci ngëm loolu moo di yàqin baatu yàqin nag gannaaw day firi wóolu rek am ñenn nag ñoo xam ne baat boobu dese nañ ko dégg ñu gëm ne kon nit mën nay jaamu yàlla ba àgg ci mu wóor ko ne moom soxlaatul jaamu yàlla mucc na ba faw dara mënatu koo yàq dara mënatu la dox digganteem ak texe te ci mujj gi rafet lay deewee loolu daal di dikk ci naagu gi nu waxoon wóolu gi ñuy bañ moom la sëñ Tuubaa di leeralaat ne am na ñoo xam ne seen njuumte mooy jàppe baatu yàqin boobu defe ne mën nañuy jaamu yàlla ba àgg ca ci seenub dund ñooñu dañoo daal di fàtte ne li sëñ bi waxoon ne seytaane day dikkal jullit bi ci waxtu wu muy dee waxtu wu mu tolloo ci sukuraat foofu la seytaane kattanam dañ koy ful juróom-ñaar fukki yoon mu dikk ci melo wa ko neex bu seetee sa mu feebale mu ci wet googu fa kene da nga am ñoo sopp mu mel ne say waajur sa ndey ak baay seytaan day dikk nekk soppi ku ñaari jëmm bii mel ne sa ndey ba ko mën a xàmmee moom bii mel ne baay ba doo ko mën a xàmmee moom foofu da nga mar woo xam ne buñ la wëggee woon géej yëpp di tax nga màndi bu ñu dikkee yor seen ndox yi sedd tiimale ko sa gémmiñ naan la neel deenaa naan la deel ci diine yahud wala diine nasaraan ñu may la nga naan ndax diine yooyu ñooy ngën ci diine bu fekkee ne aji texe nga malaaka yërmande dana wàcc bu malaaka yërmande mi wàccee seytaane yi daw bu fekkee ne koo xam ne kii mataluñu su sa dund ci texe malaayika yërmande yooyu duñu wàcc ndax duñu am bunt bu ñu jaar ndax sa ñàkk ngëm googu day fatt bunt yépp wala sa jëf ji nga mujj jëf te mu sabab sa texee di benn da nga koo mujj jëf wala nga jëfoon ko ci sa dund te ñu la ko wala tuubuloo ko wala nga tuub ko te baaluñu la ko seytaan yooyu daal di am la ñu bëggoon ci yow ba sëñ Tuubaa ci boppam di wax naan diggante boobu def naa suñu borom tabaraka wa taala mu dox sama digganteeg seytaan yooyu inni jaaltullaah rabbi yaxul bayni wa baynahu idal mawti xawt loolu moo tax دوم ادم فيك نيغي دوند لا تامنوا مكايد الشيطان قبل فراق الروح الى الابدان سيني توبا دا فني بولين وولو موك تخي شيطان ني موت نين تي فيك روغي تاخليكو غول جيم جي بانوتي مون ناخ تي وقتو ديوو داي ديكل مسكين غير خاني كو يولي جامو يم جامون يالا ليب تا لول موي مو ترخيص لوكو تي ديغنتي بوبو دا خنيس كي بو تولو فوفو بن ngeumam dafa febalon khatar yu maga ngok danger yu bari wala ngeumam foron lëndëmal na leeruk ngëm yi waaye ba tey yaakaaram mooy gannaaw gëmoon na yaxub ngëm gaa ngi fi daana julli di woor léeg-léeg mu def lu baax loolu ci boppam dana jéem a xëcc tilim yooyu tax xolam leerul ba yërmande yàlla mën cee dugg bu fekkee ne yooyu am nañu kàttan gu mat wala leneen lu ko dimbali leer yooyu ñëw la seytaane yi wax du dugg boppam daf leen di xàjji diggante boobu nag xew-xew yi ci xew ni muy baree tax na yoon sopp na bu nit ki tolloo ci sukuraat am ko ànd akum njàpp toog ci boppam naan laa ilaha illallah bañ ko ne nag waxal laa ilaha illallah li ñuy wattandiku ci wax ko ne ko waxal laa ilaha illallah ndax bu boobaa bu iblis taxawee naan ko neel weddi naa yàlla wala neel deenaa ci diine yahud wala deenaa ci diine nasaraan bu ne ko waxuma ko duma ko wax fekk ki yaa ngi naan ko waxal laa ilaha illallah fekk mu ngi tontu seytaane ñu jàpp ne ki ne ko waxal laa ilaha illallah lay wax naan waxuma ko bu ko defee ñu dal di ñaaw njort ci moom te ñaaw njort googu baaxul ci moom ndax nee ñu fukki jullit yu yëgoowul ku ñu seedeel lu baax suñu borom jàpp loola am na benn néew bu muñ mosoon suuli ba noppi si yonente bi sallallahu alayhi wasallam di laaj ko ko ci mën a seedeel lu baax ndax suñu borom yërëm ko kenn xamalu ko dara sidina abubakar ne man seedeel naa ko lu baax mu ne ko borom na loolu nga seede kon rafetu njortu ay jullit jullit lu ama am solo la gannaaw nag nettali nañu ci gaa yi yàlla yi ñu bari ñoo xam ne toll nañ ci diggante boobu dellu siwaat waaye du tee ñu delluwaat ci ba faatu dellu siwaat bi ñu dellu si kàttan gu leen suñu borom may la am na ci gaa ñi koo xam ne jàppatuma turam bi nit toogee ci boppam mu toll ci sukuraat daan ko waxal laa ilaha illa wax mu ne waxuma ko du ko wax mukk dafa dal di suñu borom koy may kàttan mu dellu siwaat dal ne ana ko doon wax ne ko diw mu ne ko li ma la tontu li nga dégg ma tontu ko tontu ma la ko de seytaane laa ko tontu dal di suñu borom may may ko ne mu delluwaat ci xaala ba mu ne woon ba faatu xam nga ne wàllu yi suñu borom yi ñoom suñu borom dafa leen di aar ba ñaaw njortu googu du am ci ñoom ñaaw njortu nit ku baax tax ñuy wax jullit tax sëñ bi mu ko waxee ne wa min saadati alfata xaysu qasat an laa yaruddahu fuaadu zi rachet wala fuaadun zu rachet bokk na ci texeeg as cam bokk na ci texeeg toxeeg nit xol yu jub yi duñ ko gànt dañ koy nangu nit ñaare koo gis ne xol yu jub yépp nangu nañu ak baaxam nangul nañ ko ñaare su borom dafa sabab ak texeem ndax Seydina Jibril ni ko yonante bi sallallahu alayhi waxee ne suñu bu soppee ab jaam day wàcce loola ci teen yi nit ñi naan ko mu yebal Jibril Jibril ñëw ci malaayika yi ne leen suñu borom sopp na diw sopp leen ko ñu wàcc ci suuf si ne nit ñi sopp leen diw suñu borom sopp na ko bu ko defee nit ñi sopp ko te duñ ko tey duñ xam lu tax ñu sopp ko fekk na looloo ko waral ñi nga xam ne nag kon yàqin googu wóolute gi mooy nit ki weesu yàqu-yàqu yooyu ak danse yu bari yooyu yëpp nga xam ne pakki seytaane pakki bakkan pakki bëgg àdduna ak nga nit ki buy buy bu tolloo ci ruuxam di bëgg a rot fa mu tàmbalee fa mu juddoo day mel ne film boo xam ne fi mu tàmbalee juddoo ba fi muy dee léppay jaaraat ci kanamam mu di ko xool waxtu woowu nga xam ne jëf yu bonam yeeg jëf yu baaxam yeeg wax yu baaxam yeeg wax yu bonam yëpp ak kattanu ngëmam leeru ngëmam léppay jaar ci ay bëtam fi saafi mu di ko xool diggante boobu moom ci boppam sant dañ ko mu rafet jot ci boppam ndax ni ko sëñ bi waxee ci masaalikul jinaan ne dañoo sopp sag ragal ak sag yaakaar ñu yem gàngante ndax bu ragal yàlla gi ëppee man nga naagu ci yërmande yàlla te kon da ngay jot suñu borom foo xam ne fii du fu baax mu bu ko defee dafa la fay féete bu fekkee ne yaakaar ji ëpp dangay ngay naagu daal di àgg ci yàqin jooju ñu doon wax ci njuumte yooyu daal di jàpp ne yow da ko mucc nga waaye bu bu fekk fii yaa ngi dund nag te dara jotu la nga yemale sa yaakaar ak sag ragal bañ a naagu ci genn wet boo demee nag ba nga xam ne dee ngi jege nga notal sag yaakaar nga dindi sag ragal tuuti notal sag yaakaar ndax nee na suñu borom ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee mu ngi tollu jaam bi fa njortam rek te boo ko jortoo ci diggante boobu xam ne mooy sag mujj ci ci àdduna nga jortoo suñu borom fu rafet mu féete fa moom la ñu yaakaar waaye boo ko jortoo ci nag ragal ak ñàkk solo bu ko defee mu féete la fa nga sa dund mottaliku jeex ci lu lu texe léegi Seydina Yaxya dafay daje bu daje waxtu bu dajeeg Seydina Aysa alayhi salaatu wasalaam rek yonent yàlla Yaxya ne ko yow daal waaw yonent yàlla Aysa ne yonent yàlla Yaxya yow daal bu gis bu ma dajeeg yow rek yaa ngi tiit am naqar jàq mel ne ku naagu ci yërmande suñu borom mel ne doo ko am mu ne ma dajeeg yow rek yaa ngi bëgg mel ne koo xam ne da ngaa wóoru da ngaa am yàqin boobu wóor na rek suñu borom fa mu la jëmee xam nga ko te mooy fu baax mooy àjjana suñu borom daal leen di tontu ne leen waaw yéen ñaar ñëpp baax waaye ki ma ki njortu ci man njortu lu baax li moo ma gënal kon mbokk mi di desan ci ab laajam lu mu doon sàkk la loo ah des na tuuti kon eh, daf mbokk mi li desan ci sab laaj yow mi laajan laaj bi loo doon sàkk la te loola am na ci lu sunu borom subhanahu wa dogal xëy dafa agseegul ci yow dafa doon sàkku ne da doon eh, ñaan bu fekkante ne lu demee ni ci masaalikul jinaan ak nax yu xadaa el xaaji ak tasuudu sixaar muy ñetti téere sëriñ tuba ci nañ ko ci làmmiñu wala fu leer def ko ci ay cassette ni ñuy def jaw ar nafis bi nga xam ne maa ko tekki ñu xamul mbokk moomu ne ko masalikul jinaan ak tasawudu sixaar tekki nañu ko ndax masalikul jinaan sax la ñu njëkk ne tekki ci ndigalal sëriñ cheikh abdul ahad waaye ñàkk gum ñàkk ne tasaaroo muy ci depuis bañ nekkee égypte moo tax reprendre waat nañ ko daaw ba tekki ko xëy na nag li ak sax ak tegul ci yéen moo di bi ñu tekkee masaalikul jinaan def ko ci ay kaset dañu ko jaglee leen taali bi yi nekk Italie ngir seet daayira boo xam ne dana ko mën a sotti sotti lu def ko ci ay kaset jaay ko taalibe yi ci njëg goo xam ne dana yomb ba kenn ku nekk man cee jot loolu moo taxan ñu jëbbaloon daayira benn ci daayira yi nekk Italie jaw aru nafiis masaalikul jinaan bi nekk ma nga fa moom ak tasawuru sixaar te moom it dañoo bëgg a seet ci daayira yeneen yi ci des yi nekk it euh, Paris wala yi nekk Espagne wala yi nekk Amérique koo xam ne buñ ko ko joxee dana ko mën a sotti te jaay ko ci prix boo xam ne bu yomb bu taalibe bi yëpp mën a jot ndax liggéeyal Sëriñ tubaa moo tax ñu def ko waaye defuñu ko pour commerce kenn ku ci nekk buñ la ko joxee yow yaay seet la nga xam ne mën nga ko sotti jaay ko taalibe yëpp kenn ku nekk am ci waaye du ni ñun ñoo koy seet ñun ban ko liggéeyee joxe ko loola lañ ci noppi mu mel ni kon bokk ci Amérique yi ñooy ñi ñu njëkk a bind leetar di ko sàkku waaye comme commission culturelle bi nga xam ne moom lañu yore fee ñun ak Serigne Mamadou Dramé it ñu ngi sàkku ñu bàyyi ko foofa waaye lu ci man a am li feek xëy na ñaari weer wala ñetti weer Masaalikul Jinaan bi dana génn su génnee itam eh, ñëpp danañ ci mën a jo xadaayil aaji bi li feek ñaar fukki fan danañ ko tàmbali moom itam pour firi ko bu jeexee danañ ko seet ku ko mën a jot li taalibe yi nu mu gën a eh, yombe kon mu mel ni kon googu wàll moom bu fekkee ne lu luñ doon sàkk la mën na ni am loo am ba noppi la kon eh, mu des nag beneen laaj boo xam ne eh, mbokk mi dafay laaj ruu lan ci lan lay dunde ruu ruu lan mooy mën a dundal ruu ab jullit Roh dana rag, dana wér dana dana feebar tawat dana tawat dana rag manam jeex dana wér itam ruu ak yaram ñaar ñu féewoo lañu ñu boole ko ci nit ruu mi ngi ci lamri jëm yaram bokk ci aalamul xalqi yaram xam ngeen ne suuf la ci suuf lañu tibb bind ko muy lëndëm di lu di lu diis ruu moom di lu leer di lu set di loo xam ne dafa am ay melo yu bari yoo xam ne daf ko wuuteeg jëm ruu ci boppam amul dayo mën na nekkandoo ci béréb yu bari teewandoo ci béréb yu bari mën na séddalikoo def boppam yu bari mën na nekk ca kaw nekk ci suuf ab gisam dara mënu koo fekk dara mënu koo làq lenn ba gisu ko naka noonu ak déggam déggam ak gisam ci misaal rek seet leen ko ci gént nit ku am gént xam ne mu ngi nelaw léegi yaram wi li koy yëgal di ko taqal ci àdduna bi muy xelam mi xalaat àdduna bi bëtam yiy gis yi ci àdduna xelam di ci dem noppam yiy déglu li ci àdduna yooyu yëpp day dox digganteem diggante roowu gi ak fa mu dëkk ba day tax waxtu wu nit kiy nelaw nag léegi euh, mbiri àdduna yooyu nga xam ne moo koy muur dañul ndax fii nit kaa ngi dund du dañ waaye dana wàññiku feebal ba ñàkk kàttan bu ko defee ruu dal di fitti bu mën a génn ndax nit kaa ngi dund waaye dana feq ak leeram dana feq wuti malakoot day dem ba jokkoog malakoot fekk na moom mu ngi fi waaye ruu ceeñeeram yooyu la ko daan nëbb di ko làq wàññiku na kàttanam wàññiku na ndax nelaw yi ndax nit ki yëgatul dara ci àdduna te àdduna moo doon ndox diggante mag mooy ci ñeeram yooyu war a dem ba malakoot léegi nit ki mu ngi nelaw yëgatul dara ci àdduna ruux gi nee na xaax tuuti nopplu fitti sànni ay cokkoori ceñeeram ceeñeer yooyu jànloog malekot la nga xam ne dafa war a xewi ci àdduna foofa la njëkk a xewee bu ko defee mu gis ko fa bu ko fa gisee dikk dénk ko yuur ndax yuur du nelaw waxtu wu nit kii nelaw moom mu ngi tourné mu ngi walbatiku mu ngi tourné rek fu mu toll bu ko defee mu garde loolu bu nit ku yeewoo fàttaliku ko dal ne man day diw sàngam mi tukki woon am te juróom-ñaari at bañ naan dee na wala dootu ñëw génn naa mu ñëw xam nga kon yow sa bët yi gisu ko sa ruu gi moo ko gis waaye ruu gi ci boppam demul moo tax gis ba du sot du du leere li nga xam ne li tiim la ndax Euh, ceeñeer yi mu sànni rek mu dem malakoot moo fa dajeeg loola ca malakoot mu xew te xew ñëwagul ci àddina nga toog ñeenti fan wala ayu bés wala at nit ka ñëw nga xam ne gisoon nga noonu. nu mu mu laajoon rek laaj bi waaw dafa doon laaj rek mooy ah, kon xam kon ni ma waxee ne nit ki nekk ki mu nekk ci àdduna di xool àdduna di jëgg àdduna di lekk ñamu àdduna di mer. mu yëg mbiri àdduna di am mbëg muy mbiri àdduna di fàtte di di di xuloo di waxtaan di am ay problème di ci xalaat yooyu yëpp mbiri àdduna mooy tañ ci ruu gi ruu kon day gën a ràgg di gën a ràgg waxtu lu nit ki gën a xuus ci mbiri àdduna gën a bëgg alal gën a bëgg pop gën a bëgg lekk ak naan roo gi di gën a ràgg di làpp di xiif di sonn ba nga xam ne daanaka dundal gi mu koy dundal muy dox ak a dikk rek la ci am waaye bu tëddee sax du génn day bu nelawee rek day mel ne dee na li koy dundal mooy mu yemale lekkam yemale naanam di boole zikru ak fikru mooy di xalaat ëllëgam di tudd yàlla di jàng alquran di julli ci yonent bu ko defee di woor xam ngeen ne koor day làppal yaram bu ko defee day woyofal deret bu ko defee sëf gi nga xam ne deret ju diis ju tal ji noonu lay sëfe roo gi day wàññiku moo tax koor itam baax bu ko defee ngay boole tudd yàlla bu ngay tudd yàlla di ci boole fikru ndax fikru mooy tax a xam yàlla fikru mooy lan mooy xalaat di xalaat kawtee fi suñu borom def ci àdduna ni mu bindee nit nit li muy aajowoo fanam bi nga gis ñu dee ni ñu nekkee woon ci àdduna nga xam leen nga gis ñu dee tey itam xamuloo sa bis ëllëg la wala gannaaw ëllëg ngay xalaat sa sukuraat di xalaat li nga jëm di xalaat tiraayu bàmmeel ak ni mu yàggee di xalaat buñ dekkee bis penc ba taxawaay bu yàgg ba juróom fukki junni at di xalaat jant bu tàng ba ak xàq ya di xalaat jéggi siraat ak ni siraat mel ni mu mettee ngay xalaat yooyu bu yàggee ci yow roo gi day gën a dund pour yàlla li ngay tudd ak yi fàttaliku boobu ngay fàttaliku yooyu day gën a dundal ruu di ko gën a dundal ba day mujj yi la safoon ci àdduna nam la safe woon di wàññiku feeg yooyaa ngi wàññiku rek ne la wóor ne ruu gi mu ngi yokku mu ngi màgg mu ngi gën a leer dangay ngay dem ba dara duutu la sax ci àdduna bu ko defee ruu gi day dem ba mat ba nga xam ne mën naa dem di dem di dem ba nga xam ne day mel na làmp bu leer di jàll kumpa yépp bu ñu ko yooyu misaal yi ñu ci am kenn mënu ko wax dafa bari léegi kii daal li ci leer moo di ci gàtt mooy bi leer gi yooyu lu ruu gi yooyu koy dundal day dem ba nga xam ne du mel ne su deewee ndax su deewee nga xam ne moom yaram bi moom mu nga fële ruu gi ci boppam moom day daal di xam lépp duutu am kumpa waaye nag mën na dem ba jege loolu ci jege gi ngay gën a jege yàlla ci jaamu yi ngay jaamu ak farlu geeg yooyu ba nga xam ne jikko yu bon yëpp dañ na ci yow da ngay daal di dajee booy boo dajee nit xam biiram bu li nit waxee nga xam li wax dëgg la ci moom wala du dëgg boo jë boo jëlee alal sax dal di xam dagan na ci wala daganul xaraam na wala dagan na da ngay dal di xam yi nga xam ne lépp mujum nit kii aji texe la wala kii aji texee di la nga dal di xam kii siddit gii ko tax a texee di lan la nga dal di xam la nga xam ne moo ko war a mën a saafara nga mën ko koo mën ko caa jaarale mën ko caa digal nga xam ne cheikhu tarbiya day àgg ci xam loolu la mën ko gàttal beneen laaj bi ci topp sëriñ bi ki ko laaj dafa ne mal farqu bayna al muslimi allati lahu cheikh wal muslimi allati laysa lahu cheikh walakinahu yani ittasala mubasaratan bi rasuli alayhi salatu wasalaam maanaam lan mooy teqalee jullit bi nga xam ne am na sëriñ ak jullit bi nga xam ne moom amul sëriñ dafa def direct ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ak lan mooy gis-gisu Muhammadul Xasaali ci wàllu musique waaw waaw bi amul sëriñ ak jullit bi am sëriñ am na ñu bokk lu ñu bokk am na ñu wuute li ñu bokk mooy al amru wan nahyu ijtinaabul manaahi wa imtisaalul awaamir li yàlla ak yonent bi digle yépp ñu nekk ci loolu ñoo ko bokkale li yàlla tere lépp ñu wattu ko amul ci kenn koo xam ne kii am nga mayu génn diggante boobu loolu moom mooy li dajale jullit ñëpp bu ñu dee jullit yu baax sëriñ bi xam ngeen ne suñu borom tabaraka wa taala dafa wóotale jaam ñi sëriñ bi am na yoon wu mu jaar rekk woo xam ne jaar gam ca jaar xamal na ko yu bari kii jóg bëgg jaar te yoon woowa te amul tegtal faw mu laaj tegtal léegi nanu seet ñax gi nga xam ne wala garab gi nga xam ne dafa sax ci kër gi ñu làkk wërale ko di ko suuxat di ko jubbanti ak garab gi nga xam ne dafa sax ci àll ba bu kéwél gi ñëwee lekk bu nag bi ñëwee xóof bu ngelaw li ñëwee daaneel bu daay gi ñëwee tàkk lakk ko ñaari garab yooyu lu ñu wuute mu seet itam ñaari der yi der yi nga xam ne dañ ko wulli ba mu nooy mën ko taxañ def ci poos ak der yi nga xam ne ba ñu feesee dañ koo sànni mu wow ba kamañoo ni ñu wutee léegi sëriñ nii la sëriñ mooy ki lay jiite di la xamal li baax di la wattandikoo loolu bon sëriñ nag niñ ko waxee rek sëriñub jàngale dafa am kooku bu la jàngalee wàccoon naa ak yow li ci def sa coobareel boppa yaa xam dangay ngay jëfe wala dangay ngay bañ a jëfe sëriñ tërbiya mooy ki nga xam ne daf lay jàngal ba nga xam lislaam mu ànd ak yow ci boo bëggee jàdd mu ne la bul defe noonu dina digal na ngay jaamoo ndax gannaaw fooxe kulli zi ali alimun xam-xam du doy te du jeex mukk ki nga xam ne njëkk laa jaar ci jaarin wi nga jariñu ca expérience ba maanaam tajribaam booba moo gën a gaawal yoon wi yow ci sa bopp nga bëgg a fentaat yoon woo xam ne da ngay dem ba nga dañ wax ne bidaayatul nihaayatul faqih bidaayatul faqir ndax limaam ci bopp ni mu waxee ne fiq ñaari xaaj la am na ci xaaj boo xam ne bu nit ñëpp juboon duñ ko soxla woo moo di yëqudaat yi atte bu nit ñëpp juboon fiq bi nga xam ne nag moo lay xamal jaamu mooy wax ma muamalaat yi mooy ibadaat yi moom nit yi luñ jub jub jub jub du ñu ay yeneen yàlla du wàcc ci ñoom ay xatte ñu xamal ko te jaari ñu ci bind bi faaw ñu jàngal leen ko ci bind bi boo ko jaa jàngee ci bind bi bi itam comme ni ma ko waxee ne sëriñ bi nga xam ne dafa lay jàngal bu la jàngalee ba nga xam ne jàngal na la no wàccoo naag yow yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën daf noo jàngal ne gannaaw ñetti nit bu ñu àndee nañu jiital kenn ci ñoom ndax nizam day lo xamni li ci l'islam lu farata la lo xamni mun la mun la ñak julit ñi lépp lu leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warona xamal xamalon na leen ko ba noppi fi daatan jóge bim mu alyawma akmaltu lakum dinak waye teewul ñu wut kenn ko xamni mudi abou bakkar ñu jital ko top ci mom lu mu tere ñu bàyyi ko lu mu digle ñu def ko ba gis nanu sax sidina omar digle yo xamne ci déggam alquran daf ko saxalon niki taaliful qulubi al muallafati qulubuhum bu ñu ni nga xam ne doon nañ ko waxtaane ci gëléem gu réer ak gàtt bu réer ci àll bi ni nga xam ne ci déggu borom xam-xam yi ak ko réer ak li leen yàlla may noonu la ñu demee ba atte yu bari ñu di ko dëppaleeg jamono bi xam ne lii mooy ni nga xam ne ulamaaul usul noonu lañ tëralee fiq li tax masala mu ne li tax ñu tibbe ko nii ba nga xam ne buñ dee ba adduna walbatiku dañuy delluwaat ci illa yi moo nu xamal illa ak maalul ak sabab ak yooyu yépp ba nga xam ne bu nu demee ba ñooñu faw ñuy am di jiite ndax jàng fiq rek ba xam ni nga war a jiite yooyu doyul faw kon mu am ñuy jiite ñoo xam ne am na lu nu xamul yoo xam ne ñoo nu koy xamal am na foo xam ne ñoo nu fay tettee bu fekkee ne loolu ñàkk na faw daa dal di ñëw jullit bu ne dal ne man dal dem ak sa bopp bu ko defee féewaloo teqalikoo wuute bu fekkente nag sëriñ si moom dañoo dañoo jaar yoonu sëriñ nga xam ne dañuy xamal nit ki mbiri diine asraaru diine yonente bi salaa sama dafa dafa xamaloon dafa sàkkoon ki nga xam ne xam na ne ku xam naafiq lañ ba sidna omar daf ko daan laaj maanaam saaba yi kenn ku si dafa am lu luñ la jagleeloon lu la sa borom jagleeloon ba nga xam dañ la koo nangul ba nga xamni ne lii di jàng rek wala nek ak yonent bi rek taxna na ñu xam ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi ñu tibbee sëriñ fi fiñu fi ñu fële tibbee fiñu ñu tibbee ci yonent bi la mooy bi muy jóg di seeti sayyidatuna sayyiduna ali ak sayyidatuna fatima waxtu bi dafa jot ñu dem kon waaw naan leen ndax julli ngeen julli julli leen julli guddi mu ne romb na sayyidatuna Aïcha mu tëdd te waxu ko dara naka noonu ci saxaaba yi kenn ku ci nekk lal daan digale loo xam ne ko sa morom foofu la ñu tibbee wetuk sëriñ Seydina Abdoulaye Abdoulaye ibnu Omar yonente bi sallallahu alayhi wa def na ni'ma rajul law kaanu yusalli bil layli ba ba ko ba mu ko déggee dañatul di julli guddi am na ci yoo xam ne suñu borom euh, yonente bi sallallahu alayhi wa tekkal na leen ay ñaan maanaam sana leen ko te sawu ko ñeneen ñi ñenn ñi mu digal leen lii digalu ko ñi ndax xam gi mu xam rooxi bindee bi ak seeni misaaj ak seeni i bëgg-bëgg ak seen i bañ-bañ ak laaj yi ñu ko doon laaj lu gën ci diine ak lu gën ci jaamu kenn ku ci nekk na mu xamee sa xaal ba digal la lii ñii mu ne leen sàkku xam-xam ñii mu ne leen wesaare xam-xam ñii mu ne leen topp sa waajur ñii mu ne leen nangam xam googu mu xam kenn ku nekk ne ku ci ne am nga sa jàngoro ji bokkul ak sa morom loolu mooy rolu sëriñ gannaaw bi ñu jàngee awaamir yi ak mënaay yi ba noppi ñooñu ñoo leen di tegtal yooyu ñoo leen di jaarale yooyu bu sëriñ bi matee sëriñ day xam sëkk lu mel noonu loolu bu fekkoon ne dugg nañ ci bu waxtu bi jotul woon daanu mën a yu bare bare ci sidna Abubakar ak sidna Omar ak sidna Ousmane ak sidna Ali ñu dem ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo njëkk a ki kam eh, eh, sëriñ bi nga xam ne moom la mooy royaat ba léegi alxasan al basri yi ak fu mu jëlee cheikhuxa boobu ak nangam nit yi mu gisoon ci ahlu badara melowam xamoon te nga xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñu toxale ci moom du lépp saxaaba yi li tax ñu xam lu ñu xamul woon dañuy fekk circonstance yoo xam ne dañuy xam ne lii tax mu am te nun duñ ko bind duñu jot si loolu gën a dégg googu ñu nu gën a dégg diine ndax li ko waral du mënuñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem lu mu wax jot si nan wala mboolem lu mu xam ndax ulama yi dem nañ ba ci ne li war ci yonent bi ci mu xam ne ko mooy alquran rek ak li ci aju mooy tene yi ak digal yi waaye ci des yëpp nekkul lu war ci moom dafay nekk loo xam ne bu gisee ku ko yelloo mu xamal ko ko bu gisee ku ko yellewul du ko xamal mën na ma joxe junni misaal ci yu mel noonu nga xam ne dafay jagleel fii wax ko lii jagleel fii wax ko lii jagleel fii wax ko la loolu la sëriñ bi ndax nee ñu ba mu demee ca leelatul mi'raj ba àgg ci xasiratul qudsi ba nga xamee ne dina suñu borom tabaraka wa taala ñetti xam-xam la ko fa xamal xam-xam boo xam ne war na ci moom mu xamal ko jullit ñëpp te mooy l'islam ak alquran xam-xam boo xam ne araam na mu xamal ko benn mindeef ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam doo nga ko war a xam ak xam-xam boo xam ne daf ko tànnloo bu gisee ku ko yelloo te mu yéene ko ko mu xamal ko ko bu ko gisul mu bàyyi ko سيدنا أبو هريرة نينا jëlal naa leen ci yonent bi ñaari mbuusi xam-xam benn bi jullil naa la bi ci def bu ma ko waxoon ñu dagg sama baat bi Seydina Abdoulaye ibn Abbas nee na allahu li saxalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazalu al-amru baynahunna li taalamu anna ala kulli shay'in qadir bu ma ko firi woon wala maa ngi dagg sama baat bi Seydina Alioune Zeynul Abidina nee na inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay laa yara zaaka zu jahdin fa yaftatina wa qad taqaddama fi hadha abu hasanin ila al-husayn wa awsa qabla al-hasana ya rubba jawhara ilmin law abuhu bihi laqiya lay ma anta mimman ya'budu al-watana wa la istahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha maa yeetu wax naa nan julli leeral boo xam ne yaakaar naa war na sedd xolam sedd xol képp koo xam ne nekk nga fii mu mel ni comme ni mu ko waxee wàll la goo xam ne xëy na su ko jotaay bi maye woon sax gis ngeen ko ci mujj maanaam mën na cee dem ba bët set du jeex waaye rek mu leer nit ñi ne kenn ku nekk ci diine yi islaam ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba suñ joni tey jii ku amul sëriñ amul xanaa kay lam am da koo tudde sëriñ wala mu bañ koo tudde sëriñ mën nañoo waxee ne ko amul tarixa it amul comme ni ko sëriñ Sam waxee ndax même ñi ñu fi dégg ñu naan amuñu sëriñ ay ci ay mouvement islamique lañu ñu nekk wala ay jamaat islamiya boo ca dem benn bu ci nekk am na règlement intérieur am na statut am na ay principe comme ñu sëriñ si am am na it ku ñu teg ca bopp ba ku ñu tuddee amir wala raisul jamaa koo xam ne moom lañuy ñuy déglu ay ndigalam di mooy ay tereem ndax buñ seetee ci jamaa ak salafi yi nga xam ne bokk na ci yi jiitu mu demee ni ixwaanul muslimin muy xam ngeen ne asanul bana mooy seen sëriñ mooy seen guide spirituel bi nga xam ne ci la ñuy dellu bu ñu demee ci jamaa ak tabligh bi gën a siiw nga xam ne ñoo yaatu ba ak ci Sénégal et ak ci réew yu bari danañu fekk ne ñoom itam Pakistan la juddoo Abul Ala al Mawdudi mooy seen sëriñ mooy seen référence ba ci bu ñu demee ci lee nekk Sénégal ñu di ko wax Ibadu Rahman xam ngeen ne arakatul benn badis eh, sëriñ Mouhamed Darami ak sëriñ Moussa Diop bale xam nañ leen Algérie la juddoo ñu ko sos mooy Alaaji Cheikh Touré ñoom muy ay étudiants yu fa nekkoon doon jàng sëriñ Sam yi fa la nekkante yooyu jamono ñoom ñëpp ci arakatu benn badis lañu juddoo la ñuy sosoo ñoom it benn benn badis mooy Sénégal léegi am nañ seen amir. ba ci Sénégal léegi am nañ seen amir buy buy siidiloo xam ngeen ne euh, Oustaz Malick Ndiaye nekkan na ko Oustaz Alioune ak ñeneen ak ñeneen. kon mu mel ni lépp mbooloo mu ngeen fi dégg ñu naa leen amul sëriñ wala ñu naa la ci yonent bi lañ jekk amul. xëy na kay loolu dañ ko tuddee sëriñ dañ ko tuddee wu waaye am nañ loo xam ne ni ñu jàppe nun suñu sëriñ ci lañ leen jàppe seen i digal la ñuy déglu seen i tere la bàyyi am nañ ay principe yi tarixa yi am. kon nag ci bare bari leen bëgg a rek bëgg leen a jëllër bi ci li ngeen nekk waaye ku amul sëriñ amul képp ku nekk ci biir diine islam te amuloo sëriñ comme ni ko sëriñ Tuubaa waxee seytaane kon mooy sa sëriñ tey cosaanul sëriñ sëriñ saam wax na ko alquran wax na ko wa tabi sabila man anaba ilay alquran moo ko wax da ngeen topp yoon ñi nga xam ne ñoo aw sama yoon di def samay diggal di bàyyi samay tere alquran de dellu waxaat na eh, topp yàlla topp yonente bi topp wa ulil amri minkum kon wa ulil amri minkum ba tey sëriñ la wabtaxoo ilay il wasila tey ba tey sëriñ a ngoogu naka noonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam it ñëw ci ni ko suñu saam waxee ne bu ngeen nekkee sax di ñetti nit tey ay julit na ngeen tànn kenn koo xam ne mooy seen jiit ngeen di def ay ndigalam di bàyyi ay teram ndax te loola la barke nekk kon képp koo xamee ne maanaam amuloo sëriñ ku nekk seytaane mooy sa sëriñ ndax wuute nga ak ndigalu yonente bi alayhi salaatu kon nag loolu leer na nañu sëriñ bi leeral na ko kon ñu jàll ci beneen laaj seen pratique génn la sariatul islamiyya mu ne ndax loolu am na wala déet est su fekkee loolu am na ñooñe la sëriñ Tuubaa jublu ci bayit yi mu wax ne am na ñoo xam ne ay mutasawifoon lañ de wala dañoo jàpp ne ay mutasawifoon lañ ba nekk ci pratique bu wuute ak pratique bu diine islam ba noppi jot ni ñoom la ñu nekk lu mën a gën a rëy lu nekk mu ne ndax bu fekkee li ñuy laaj am na ñooñu la ci sëñ bi jublu wala déet ñaareelu laaj bi mu ne ko ne nekk xàllaaj ak ñu laara bi comme da ngeen ko ñu bari ci bindikat yi ak jullit yi ñoo dem ba takk fiir leen jàpp ne du ñu ay jullit wala génn nañ diine islam ngir seen yenn wax yuñ daan wax muy laaj nag ba xam Cheikh Ahmadou Bamba moom lan mooy position ci ñooñu muy allaaj ci ak ci ibnu ak est ci biir kër bi wala déet euh, baax na laaj bi ñu génne moom yaakaar naa ne leer na ndax xam ngeen ne sax alquran Seydina Ousmane bu muy commission am bindoon alquran ba mag mu ne yeneen téere yi ci desoon yëpp tey ci nekk yu ci yonent bi nag nañ ko taal wala ñu suul ko ba ba sax bi Seydina Aliin bind ci loxoom radiallahu taala anhu boo demee Misra ca jàkka euh, jàkka Omar ibnul As fi nga xam ne fële Seydina Xuseynu bopp ba nekk daañu la mën a wan boo neexlee daañu la wan kaamil bi Seydina Aliin bind nañ ko doon binde kenn jàngee ko ndax ndigalal Seydina Ousmane ndax bu mu koy digle moo nekkoon amirul muminin te ñëpp war nañoo topp ndigalam ba ci fiq fuqahaaw yi boo dee jàng jàngee limaam ibnu mas'ud mi nga xam ne ci saxaaba yi la bokkoon ci saxaaba yu mag yi ni muy jàngee alquran ku koy jànge ku topp ci moom sa julli du wér te mu ne alquran la fa ida qudiyat salaat famdu fi l ardi wala mu ne fantasiru fi l ardi xam ne kon njiit moom ci lislaam lu war la lu mun la ñàkk mukk mukk ci baatin ak ci zahir léegi laaj bi bu njëkk bi mooy laaj bi njëkk bi moo di tasawuf ndax am na ñoo xam ne seen tasawuf génn na sayaatul islamiyya ak su fekkee am na ndax ñooñu la ci sëñ bi ci bayit woo wala de ni ko sëñ xaadim waxe léegi dafa am ñuy wax ak tasawuf sunniyu tasawuf sunniyu tasawuf bi nga xam ne ñoom moom la jàpp ne moo dëppoo sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam booba biñ koy wax ñu ngi bàyyi xel ci ñenn nit ñoo xam ne dañoo wax ne ci tasawuf la ñu dugg ci lañ nekk te la ñu tuddee tasawuf du tasawuf li tax moom bu ñu tasawuf rek yem ci duñ tuddee ak tasawafu sunni yu ndax tasawuf bi wér ci nun mooy ba ñoo ñu tuddee ak tasawafu sunni yu bi ci def ñaari xaaj la yoo xam ne sax lislaam ci boppam dàq na séenug nekk ci lislaam ak ñoo xam ne ba tey ay jullit lañ leen di jàppe waaye mu baddaaw na lañu dañu leen di def ñu tabdi maanaam ñoo xam ne dañoo nekk ci bidaa tasawuf bi nga xam ne nag mooy tasawuf bu wér bi boo jàngee masaalikul jinaan sëñ Tuuba joxe na taarif yi nga xam ne mooy yu wér maanaam définition yi tudd ponk moom lay wax ne ama tasawufu fa fardu ayni lada alghazali bijuuni mayni arkaanuhu naarif minha sabca sumtan wa juucan wa ijtinaaba albidca wa tawbatan wa saharan wa cuzla ثم استقامة فنعم الخصلة بل وزاد شيخنا اليداني ثامنا تقوى الإله ظاهرا وباطنا تصوف بابو benn ponk bu ci nekk ci alquran lañ ko tibbe mu ñëwit ci xadis nga xam ne loolu moom doomu aadama yi jëfandikoo nañ ko tasawuf nag ñaari xaaj la dañ ne تصوف دو تيوري ريك براتيك لا ني نيوم اصحاب افعال لا ارباب اقوال لي ميغا خاوي ني دوم ادم يي نون لا نيووتي اي ام زيجه اكي ازواق اكي اجتهاد نون لا نيو غنا دغر لنتي نغم نون لا سين بصيره اوبنتي كان كو نيك داغا ام سا تجربه في كاو ني بوك لو ني جيفي با نوبي نك كان كو ني لا غاي ييب nga bind ko li ngay yëg nag ci la amee ñoo xam ne ñii yëg nañu yëgiinu yàlla yëgiin woo xam ne dem nañ ba àgg foo xam ne lëm na seen xel li ñu yëg ëpp na leen doole ba attanatuñ ko ñu wax lu tax fuqahaaw yi daja seet seen mbir ne ñii li ñu wax ku ko wax yoon rey na la moo di ku ñuy wax alxusayn bin mansour alxallaaj alxallaaj nit ñi séddalikoo nañ ci moom ci ñi koy def takfir ak ñi nga xam dañ koy def tabdiq ak ñi nga xam ne dañ ne majnun la ba ci ahlu tasawuf am na ci ñenn yoo xam ne am nañu sikki sàkka ci wérub tawxiidu xallaaj te xallaaj li wax ne anal xaq maanaam man maay sunu borom tabaraka wa taala li wax ne maa fi wastal jubbati ila allah kenn ñëwul ci biir mbub mee dul sunu borom tabaraka wa taala ak yeneen i baat yu bari yoo xam ne xallaaj wax na ko fuqaha yi nga xam ne arbaabu araab danañu maanaam ci siyaasa politique ci seen diggante xalifa bi am nañu luñ jàppaloon xajaaj ak luñ ko fiire ñu ubbee ñu def fatwa ci ne xallaaj sharia rey na ko bi nga xamee ne xallaaj ne ñu sharia rey na ko bis bi ñu koy rey dafa xëy dal di tàmbalee waxam ci ne jullit ñi amuñu tey itte bu gën a màgg rey ma tàmbalee ree di ree di ree di ree ree ju bari bi nga xam ne ni indi nañ ko ci takku dëj la fekk atte nañu ba condamné ko amoor war ko exécuté maanaam war koo rey bi xalaat ñëwee abul xaaris li nga xam ne moo sës ci moo amee surte surte xalifa bi moo ko njëkk a dóor ci bakkan ba bakkan yàqu bakkan bi dem na biñ ko mu yemuñu ci rey gi dañ koo taal jëri doomam ci dex gi ñuy wax dëj la mooy tiigër bi ñu ko defee dëj la daf daan bëgg am fu mu daan yem at moomu mu bëgg ba ëmb ba ba ba ba ci sharia rey nañ ko ndax li mu wax li mu wax bu ñu ko seetee ci sharia rek reyee ci war moom la ahlu sharia mu fuqahaa yi rey ko ñi nga xam nag nitu basiira lañu cheikh abdul qadir jilani lu wax dafa ne xalaaj dafa fakkatalu te amul ci waxtoom ku mën a téye ci loxoom yëkkati ko boo fekke woon jamonom danaa téye ci loxoom yëkkati ko limaamul xasali noonu la waxee ñaar yooyu ni ñu waxee mooy xalaat si ahmad bamba ndax si ahmad bamba ku ne xam na fa mu teg cheikh abdul qadir jilani ku ne xam na fa mu teg limaamul xasali kon xalaaj dafa bokk si ñi nga xam ne dañuy dem ba mandi mandi ci leer ni ma misaale woon sànq nit ki dana dem ba du xàmmeete boppam ak yàlla mu wax wax joo xam ne suñu borom a ko waroon a wax waaye fuqahaw yi dañoo waroon a dellu ci ne al insaanu imma saaxin wa imma zaahilun fa saaxi tajri alayhi al ahkaamu wa zaahilu laa aqla lahu idan laa tajri alayhi al ahkaamu xallaaj bu fekkonte ne du woon siyaasa duñ ko rey xallaaj li tax ñu rey ko moo tax ñu rey ibnul qasi moo tax ñu rey ibnu sabain moo tax ñu lakk téere ibnu arabi moo tax ñu lakk téere ñu bari ci ahlu tasawuf ndax fa ñuy waxee fuqaha yi dañ fa doon àgg waaye nag kaab li naan alkaamilu man laa yutfi unuuru maarifati noora wariihi ku malaa uyu ñoom weesu nañu martaba boobu ñoom neñu ñu képp koo xam ne wax nga loo xam ne chari chari rey na la ñi la rey duñ ci am bàkkaar ndax chariatu nabi sallallahu alayhi wa sallam dong la ñu saan sàmm moom la ñu aar ñi def la ko waaye yow ma wax loolu te nga xam ne loolu kat fa nga tolloo tax nga wax ko itam dara du la ca fekk waaye ñi la rey bu fekkee dañ laa reyoon ngir agrab ay ay xemmemteef wala ngir politique wala dara ñoom ñoom duñu mucc waaye bu fekkee ne rek dañoo bëgg aar sharia ba nit ñi yem fu ñu war a yem xamal nit ñi li leen war a xamal li kenn dul laal kenn bañ koo laal fekkee ne looloo leen tax a jóg la leen dal lañu la ñu def dara du leen ca fekk ci misaal benn masala bu gàtt ci Andalus xam ngeen mooy Espagne fi mu nekk léegi ak Portugal di ko jëli di moomee benn wàll yi boo xam ne dafa dend ak benn alim ni muy farala amé ci jamono alim bi day am ñuko top gëm ko dégg li muy wax xamné wax yaronte bi sallallahu salaa sallam rek lay jottali ak waxi borom xam-xam yi waliyu bi nitu sun borom la waxoon naa ne waliyu mo tekki xaritu yàlla ku saxal ne di waliyu la saxal nga ne xaritu yàlla la saxal nga ne du dee lu ci meloo gën rafet saxal nga ne itam ku yàlla bëgg la te defal na lu defalul ñeneen ñi waliyu bi di def lépp lu muy bëgg xamal ay ñeneen bu yónnee nit muy yéene diko wax bu àggee ci kër faqih bi mu dàq ko noppiloo ko ne ko bàyyi li ngay wax li mu wax amul wala li mu wax yàllaa ko njëkk a wax nangam la amul leneen lu mu fiy dolli di ko def ba xatal ko ci dëkk ba xam ngeen ne ulama yi ñaare la ñuy gën a faral déglu ndax ñoom la nit ñi gën a xam ndax li ñuy wax day leer wax yonent bi rek la ñuy jottali wali bi benn ñii daañu ko xam ñii duñ ko xam ñii gëm ko ñii weddi ko bi nga xamee ne nag ñooñ xam ngeen ne limaam Ahmad ibnu Hanbal taxoon na alxaarisul muhaasibi xalifa bi tere ko ba mu bàyyi jàngale bi bàyyi waare bi ndax ne day réeral nit ñi te moom ci boppam bu mu bëggee xam alxaarisul muhaasibi li muy wax dafa sant benn kenn ci ay taalibe maanaam ñi ko gëm ñi ànd ak moom di ci xam-xam mu invité muhaasibi ci këram mu nëbb imaam ahmad ibnu hambal mu làq foo xam ne dana dégg li muhaasibi di wax te du ko gis bi muhaasibi di wax di waare limaam ahmad ibnu hambal xolam dem na ba nga xam ne dafa jooy ba xam ba ñu di ko upp ba mu ximriku waaye bi mu xiqee bi mu delloo ci këram ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom te bëgg a dem ci al almuhaasib bi dafa leen ne li ma gis daal mooy bu leen ànd ak moom bu leen ànd ak moom lu mu ci jublu mooy amatu naasi bi dafa am fu ñu war a yem am na xam-xam yoo xam ne mooy yelloo ak ñoom nañu topp chéri rek ñi nga xam ne nag mooy fiq wala mooy xam-xamu baatin dafa am ay nit dal di nag gis ne moom bu fekkee ne muhaasibee ngi si moom Ahmadu ibn Hanbal mi nga xam ne wax yàlla ak yonent bi lay leeral nit ñi dootuñu ko déglu dañuy dem toppi muhaasibi mu daal di dem ci xalifa bi ne ko tereel muhaasibi muhaasibi ñu daal di koy tere jàngileetul waareetul gis ngeen noonu. noonu mooy ba tey diggante li xew ci gaañoo ñu may nettali bi nga xamee ne ci lëndulus waa jooju mu di wàllu bi xat na ba di génn lëndulus di dem kenn ci taalibe yi mu àndal ne ko yow yaa ngi sonal sa bopp mënuloo ñaan suñu borom mu rey. alim bii rek jotul la xatal moo waaye coono bëgg a togg bëgg a génn lan di dem ci dëkk yoo xam ne da nga fay tumuraanke yi mu ne ko bu ma ko ñaanalee lu bon suñu borom ne lu dëggule ci moom nga xam ne dëggal bi doo nga tax muy wax waaye bu ma ba ma xoolee xolam seet ko gisoon ne dara ci njistal wala añaan wala yéene ma lu bon wala dara tax kon bu ma ñaanee suñu borom mu daal di koy rey fi saasi waaye nag bu ma fi mu ne bu ma ko ñaanalee suñu borom du ko nangu ndax day aar sunna yonent bi ak say sharia nga gis ne kon ñi nga xam ne dañuy aar sharia ñi ngi ci dëgg gu wér gu taxaw moom la ñuy tuddee ashariatul mutahara alxaqiqatul munawara ñi ci nekk charte la ci bala ñu ciy dugg ni ko sëñ tuba waxe ci xaqal bu kaaw minha tabaxuru fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati min qabli riyadati id irtiyadu ma al irshadi qablahuma min jalibati gururi ma shaqawati bokk na ci charte dugg ci tasawuf nga xam sharia jëfe ko ba mu mat xam-xam bu leer bu wér ndax nga jéem a dugg ci yoonu riyaaba ci tasawuf te fekk xamuloo xam-xamu siree xamuloo xam-xamu xaqiqa bokk na ci yii xëcc ak waru akuk texee di nga xam ne kon sunu gaañoo yi ñuy wax muy xallaaj muy ibnu qasi muy ibnu sabain muy sehrawardi ñooyu ñu rey ñëpp kenn ku ci nekk ak ñeneen ñu dul ñoom xamoon nga sharia ba mu daj nga xam sharia charte la ci nga xam xaqiqa charte la ci nga dugg ci yoonu tasawuf kon ñooñu bokkuñoo ñi ñu tuddee tasawufu xayru sunni wala tasawufu ar raj'i wala tasawufu al al al ni ko waxee al salbi bokkuñu ñi nga xam ne xamuñu dëgg dëgg luy tasawuf ñoom mën nañ leen caa boole waaye du loolu ñi nga xam ne nag ñoo amee tasawufu salbi bi nga xam ne mooy tasawufu xayru sunni yi ñeneen la ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañoo taxaw taxal seen seen tasawuf ci bidaa ñooñu xaw ñooñu la ñu def tabdiya ñooñu la ñu def bu ngeen gisee ñu ngi tuddee ahlul bida'i ci l'islam buñ ci génnee ahlul sunnati chiiyoone yi ci la mu'tazila yi ci la ñu xawaarij yi ci la ñu naka noonu raawan di yuune yi ñu dul jeex lañu waaye ñooñu bul delloo ci seen tawxid ca tawxid ja la leen lislaam di duñ leen def takfir ndax képp kuy julli di jublu penku rek kenn sañu daa def takfir waaye nag tabbiix dafa am maanaam nekk yi nitu bi daal la fi nitu bi daa li ci sharia santaane bu kenn toogaalee moom bu kenn jëflanteeg moom yenn ci jëf yi waaye daañu leen jàppe ci julit ñi buñ dee dañu leen julé dañu leen sang dañu leen sang dañu leen suuli ci sëgi julit ñi dañu jéganal seen bammel danañ mat séré itam waye nak kenn du leen dañ leen tudde ahlul bida ño xamné dañ leen di ber amna yu bari yo xamné buñ ci ànd ak ñoom ñooñu nak bu fekkente ñom amna ci ñom ño xamné dañoo nekk mutasawif mu mutasawif woni liko tambalé ci al-hasan al basri ba jaar ci sayyidina abu hanifa ba jige ci yu agsi ci al alxaarisu muhasibi nga xamne junay di talib bi ba ci junay di ba sëriñ saqati nga xamne moy jarbatu al muhasibi léew ji al junay di ba ba ñuy ci ñu mujj ñoom ñëpp buñu seetee ñi nga ci xamne seeni seen i seen ñëw na ci salaas yi nga xam ne benn mu ñëw ci salsalatul qadriya wala mu ñëw ci salsala boo xam ne bi jaarul ci qadriya moo xam ci tijaan yi wala dabaax yi wala rafaa yi wala di nga mu bokk ci beneen salsala amu ci kenn koo xam ne bokk nga ci ñoo xam ne jaar nañ ci ahlu tasawuf ci tasawuf bi nga xam ne du tasawufu sunni yi du tasawufu sunni yi même ñooñu ñu rey ci tasawufu sunni yi la ñu nekkoon fekk na nag lii am na ci ñoom fa ñuy waxee ñee duñ ko xam benn ñu dem ba àgg ci foo xam ne la ñuy wax duñ ko tayeti ni nga xam ne noonu la xalaaj waxee noonu la ibnu ibnu qasir dafa mel ne ibnu arabi muy di ibnu arabi buñ gisee ku mel ne ibnu taymiya di ko dal di ko dal di ko soqi di ko yàq lu nekk mooy li ñu waxoon ci diggante wali bi ak aalim bi rek ñoom aalim yi ñoom dañu bëgg lu leer lu sell lu set loo xam ne ñëpp dana ko mën a dégg nu wàcc ci amatu mu wàcc leen seen i wàccuwaay ñi nga xam ne bokkuñ ci amatu naas ñeneen ñu exceptionnel la ñu wàcc leen seen wàccuwaay bu ngeen gudd day doon ay kilo yu gudd ne ñooñu ñuy tudd muy xalaaj seede si nga ne moom la ko limaam Abdul Xaadir nga xam ne di seedeel yàqul ci li nga xam ne Ibnu Taymiya ak ibnu nous euh, nous, jawzi ibnu jawzi ak Euh, ibnu aqil loolu ñu dal ci koom yëpp taxul ñu nekk ci suñ taw tasawuf boo xam ne du tasawuf suñu bokk taxul ñu bokk ci ahlul yi ndax buñ delloo ci tawxid dañu gis ne tawxid bi amatu naasi bi amee bi ulama yu amee tawxid boobu la ñu amee da fekk nag dañuy wax loo xam ne ci seen zawq bopp lañ koy waxee rek seen tajriba te loolu ulama yu duñ ko xam loolu lañ leen di diingate waaye lu mu gën a gàtt <laughs> eh, doon na eh, laaj ndax ñoom ñaar ñooñu seen tur ci téere sëriñ bi wala ak silsilatul qaadiriya defe naa Muhyiddin leen ko. kon mu mel ni kon sëñ bi laaj bi leer na dafa mel ni leeral nañu ne ñooñee li ñu doon wax dafa mel ni ki nga xam ne dafa màndi xam ngeen ni naan katu sàngara bi martaar bi màndee li muy wax kenn du ko ko jàppee même ci lislaam ndax teyu ko ki màndi ci leeri yàlla it li muy wax du ko tey kon kon kenn ab àtte amu ko kon sëriñ bi am na beneen laaj boo xam ne kii dafa wax ne. dafa am benn tubaab boo xam ne dafa wëlërante ak moom mu di ko dimbale xeeti ndimbal sant yi mu saa yu jullee mu ñaanal ko waaw waaw ñu koy dimbale waaye daa bëgg saa yu jullee mu ñaanal ko moom jullit bi muy laaj nag en tant que jullit lan la war a mën a ñaanal koo xam ne du ab jullit kooku mooy bu njëkk bi beneen laaj bi ci def mu ne moom bi nga xamee ne mi ngi signé passeport am dafa signé turu yàlla muy allahu la def muy signature ba léegi nag bi mu demee ba am loolu mu ne est-ce que man nay continuer di signé turu allahu woowu wala déedéet ki nekk si Morana mu ko waxee de euh, muy ndax kay ñaanal wala ki am xarit tubaab de xarit القرآن يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دينكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا من يتولون فأولئك الصالحون gaa ñi nga xam ne dañu génne woon yonente bi salaa sallam màkka génne ko saaba yi bi nga xamee ne bari dana gudd dana gudd nan gàttal ne alxuraan nee na yéefar bi nga génnewu sa kër toxtoxalu la mën ngaa jëflante mu moom jëfi diggante doomu adama ak moroomam ñaan am na lu dagana ñaanal yéefar ak lu ko daganu la ñaanal mën nga koo ñaanal fan wu gudd mën nga koo ñaanal wér-gi-yaram fekk na sax fan wu gudd wi ak wér-gi-yaram wi gënul ci moom ndax na faram gën a guddee mooy ay moyam di gën a bari na mu gën a amee ak wér-gi-yaram ak muccit gën a mën a moy waaye nag gannaaw mi ngi lay jëriñ te ab jullit nga mën nga koo ñaanal yooyu mën nga koo ñaanal tuub dugg ci lislaam loolu mooy ñaan gi gën sax bu fekkee ndax nit ki séeg rooxam gi nooyam gi mu ngi dem ak a dikk texe wéyegul ci moom texe wéyegul ci moom ñakk texe wéyegul ci moom bu fekkee nag yaa ngi koy ñaanal ñaan lu am doole la te suñu boroom gannaaw sopp na ku jëriñ mbindeef yi ku bari njëriñ di jëriñ mbindeef yi moo xam doomu aadama ngay jëriñ wala ab xaj bu mar wala weñ wu mar wala lépp lu suñ boroom bind nga di ko jëriñ di ko xeetali suñu borom sopp na kooku ba du ko lakk ëllëg kon nag kooku nga xam ne mu ngi defal jullit bi lu baax donte yàlla taxul waaye ne woon naa dama ko tàmbaloon suñu borom dafa am ñetti xeeti cofeel yu mu sopp gii cofeel am ñu mu ko jagleel gii cofeel am ñeneen ñu mu ko jagleel ñu ñu ma ñu àggul ca daraja yi ñu njëkk ña gii cofeel mu jagleel ko lépp lu mu bind mooy nit ki lépp lu defar soxla ne ko suñu borom bu soxlawul woon lii maanaam bu ko bëggul woon du ko bind namm gi mu namm mu am mu di nammeel ak bëgg loolu am ba mu bind ko tax na mu araamal tooñ ci yéefar ak jullite ku mu doon araamal it lor dara ci lu dul yoonu yàlla lu mel ne jihaar ak yooyu suñ borom ba ci yéefar bi dafa am ay xisa yu bari yoo xam ne pour mën na koo leeral waaye dafay gudd dafay gudd diggante xaaruuna ak Muusa ak kii yu bari waaye ngir neel sun borom tabaraka wa taala bëgg gu mat gi nga xamne bëgg na ko lépp lu mu bëgg ba tax mu santane maandu ba tax ëllëg ci sibir dana atte jamni mo xam so doona julit di gën ci julit di kii di yéefar bi yées ci yéefar yi nga togn ko yit bu yomal xiyamé daañu ko atte ba nga xamne ni sëñ tuba waxe ne wa yaqul qisaasu bayna jamma wa bayna qarna ali adlin samma nga xar mi nga xam sax dafa saxoon béjjën xar mi saxul béjjën xar mu sax béjjën ñu mbëk ko bu yomal xiyamé dañu leen taxawal saxal ki amul woon béjjën ay béjjën ki amoon ay béjjën yu dindi ay béjjënam ne ko mbëkk ko nam la mbëkkee woon mu mbëkk ko nam ko mbëkkee woon ñu soog leen di jëri ñuy ngelaw dugg googu nga xam ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu reyee Seydina Hamza radiallahu taala anhu te mu mer mer goo xam ne dafa ne bu ma yàlla mayee kàttan ci ñoom rey gi ñu rey Hamza danaa rey fukk ci ñoom suñu borom ne ko fa wa in aaqabtum fa aaqibu muslima aqabtum bihi wala in sabartum lahu xayrun bu ngeen bu leen tooñee ngeen di fayu fayu leen rek lu toll na lañ leen tooñaan waaye ñu reyal la kenn nga bëgg a rey fukk ak ni sayyidina Hamza amee daraja nga xam ne mooy sayyidu sayyidu shuhada yi waaye taxul yàlla daganal loolu Suhayl ibn Amr mi nga xam ne dafa mënoon a wax lool daan taxaw nit ñi wër ko muy wax yonent bi lu mel ne xeme nit ñi bi nga xamee ne Sidna Omar nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàppal sahiirul mu'min nga sempi ñaari bëñu kawam yooyu le bu ko defee di taxaw di xutba di la di la di la ŋàññ ak di yàq lislaam mu ne ko yi bu ma ko méttitale yàlla méttital ma nag ak lu ma nekk nekk yeneen loolu xamal ne ko ne suñu borom lu mu bind rek bëgg na la ci bëgg googu bëgg googu nag du tax a texe du tax a am dara mooy bëgg gu njëkk gi bëgg ñaareel gi mooy ñu mu bëgg ba du xëy leen ci ngëm gëm loo yàlla bëggum ñetteel gi mooy bëggum amoon ci azal ci doomu aadama yi nga xam ne moom moom la tànn mu di yonente yi mu di xutbul xawsi yi mu di siddiqoona yi mu di suhadaawo yi bëgg yooyu ku ci am lu toll ne pepp zarra lu toll ne atom pepp ba gën a tuuti rek texe gu dappetoo ngay am te képp ku am sa ngërëm suñu borom dana ko texeel dana ko may texeel ku la defal dara suñu borom dana ci bég te dana dana dana fay kooka fay gu ñu sant na tubaab bi kon nu mu gën a gàttee gudd na sax ba noppi tubaab bi moom ni mu gën a gàttee rek nit ki mën na koo ñaanal ak njub mën na koo ñaanal mu tuub mën na koo ñaanal fan wu gudd mën na signature tur yàlla moom lu mag la ndax loo xam ne li boo ko waccee ci sobe dana tegtal ne murtat na dañu laa daal di war a def ni ñuy def ku murtat te mooy rey boo ko sànnee ci tur ci sobe comme tur yàlla gi moo kaamilu alxuraan foo koy def na ko tey boo seetee fiq bi dañoo wax ne sax nit ki amee gàllaaj wala mu amee jaaro boo xam ne tur yàllaa ngi ci buy dugg ci duus na ko dindi teg bañ koo duggaale lu dul nga xam ne dañ koo ëw maanaam muur nañ ko ba du feeñ nga xam ne air bu salté boobuy kii du ko laal ndax liñ ko muur kon bu fekkee ne nit ki wóolu ne ne euh, passeport bi mu signé nii moom ci moom lay dox te du nekk ci loxo yéefar mu di ko mën a sànni ci sobe wala yooyu mën na koo def bu ko defee mën na ko continuer signature nag daanaka moom benn signature mën a am nit ki nu mu xasee ba signé lay continuer na delloo ci xelam ci ne turu yàlla moom def ko ci sobe moom lu rëy rëy la te lu baaxul la lu gënul la daal mu yi ci nekk yëpp mënuñu ko feewal eh, kon li ngeen ko xamee comme que mi ngi bëgg guddi te bi am na waxtaan mu war a tëje muy ab dénkaane kon am laaj bu ñëw xaw a yàgg <laughs> waaw <laughs> kon nag comme que toll na kon mooy laaj bi nga xam ne kon sëñ bi kon kon sëñ bi kon ko sonn na eh, ñaareel laaj la benn bi mooy li ñu ngeen joxoon ndigal ñu tontu ko ma ne benn bi mooy bi ngeen joxoon ndigal ñu tontu ko beneen bi ci des it boo noppee nga tontu ko mooy eh, laaj bi ci fiqul islaam yi la aju mbokk mi daf doon laaj ni lan mooy àttee lislaam wala xew-xew la boo xam ne bu mu gis dinu ko nett bi ak di laaj lan moo ca nekk àtte lislaam mu di ko xam ne dafa fekk doomam ju tollu ci ñaar fukki at doomam ju jigéen mu may ko góor goo xam ne am na juróom ñaar fukki at te ndaw sa moom lu jiitu ñu di ko maye wane leen bëggul góor gi yilimaan ji itam ji ko maye xam na ne bëggut ah, ñu may ko ko léegi bi may gi amee nag ci anam googu kon ndaw sa continué na di mooy yàlla ndax ki mu bëggu léegi nag kii laaj xam nga dafay laaj mooy yàlla googu bakkaar ba est-ce que wi nga xam ne moo ko may ko bëggoon moo koy gàddu wala déet kon laaj bi danañu ko tontu waaye su fekkee ne am na ci lenn njuumte lu ci am sëriñ bi dana wéral njuumte loola dañuy jëkk xam ne moo di ni eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam aaye na ci ay ahadis yu bari baay bi may doomam kenn lu dul def ko laaj xalaatam moo xam doom ji ku sëyi woon ba dellu si la wala ku mës a sëy même yëmut ci loolu mais yonent bi wax nanu yan màndarga mooy wane bu fekkee ne xale bu sëyeegul la ne nangu na wala nanguwul ñaareel bi am na beneen addis boo xam ne addis bu wér la saayul Buxaari yu ak muslim yu andi nañ ko ci koo xam ne dafa mayan doomam koo xam ne bëgg ko doom ja ñëw ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko te eh, ne ko man sama bàyyi damaa may koo xam ne bëgguma ko te mënumaa continuer ak moom te yaa fi nekkal diini islam ma ñëw di laaj lan mooy pexe ba mu ñëwee yonte bi alayhi salaatu wasalaam tas sëy ba fasaasa woo jur wa yedd ko ne ko gannaaw bu ma waxee ba noppi te maa ngi ci kaw suuf nan ngeen di wuute ak li wax kon loolu wane na ne jaaduwul ci ab julit bu gëm yàlla muy may doomam koo xamee ne xam na ne bëgg ko mu des nag gannaaw bu ko mayee ba noppi nag bàkkaar bi ndax way jur wi moo koy jël wala ilimaan gi wala ndaw si rek ma ne bàkkaar bi ñoom ñett ñëpp kenn ku nekk am nga ci ab jël fu kenn fu nekk dañ leen wax bañ ci sukkandikoo ba wax loolu wala fa ci borom xam-xam yi sukkandiko bax loolu waju yi mom liko ko ci may ak cër koku leer na gannaaw boo xam ne ali sallallahu alayhi wasallam wasalaam def leen bi mu may ko kon may na yonente bi alayhi salaatu wasalaam te yalla dafa ne allah wa ar rasul kon ku digal ndigal yonte bi alayhi salaatu def nga njuumte kon amna bakar ci moy gi moy yonente bi ba moy goge mu ko moy yubbe sabab moy gi doomam moy gannaaw bi waaye ilimaan ji itam yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ne man raa minkum munkaran fal yugayiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa salika adhaku iman dafa wax ne képp ci yéen koo xam ne gis nga loo xam ne lu jaaduwul la bu dee luñ mën a dindi ci loxo ak kàttan nañ ko ci dindi su fekkee ne lu làmmiñ luñ lu làmmiñ di dindi itam nga aaye ko ci aaye yoon wu leer ama su fekkee ne mënoo koo dindi ci sa loxo wala sa kàttan mënoo koo dindi ci saw làmmiñ na nga ko dindi ci sa xol te ni nga dindee ci sa xol mooy na ko ñaawlu te jàpp ca sa bopp bul ca dugg kon nag gannaaw boo xamee ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa aaye ne bu leen mayee jënd jigéen du dul dëgg diisoo ak moom ba xam d'accord na ca may ga wala kon kay yilimaan ji su gisee bàyyi bu bëgg xëtt ndigalu rasulullah loolu di maye doomam joo xam ne doom ja bëggut la ko lislaam sant mooy mu aaye bàyyi ba ne ko bul ko ko may su ko aayee mëntatee mu may ko ko nag moom mu jàpp boppam bañ a maye du yam ci bañ a maye sax waaye na dagg bu mu kóllëre ga jaar digganteem ak moom muy naqarlu gam koy naqarlu kon nag su deful loolu lépp lu may participer ca maye ga te xam ne doom ji bëggul xët na ndigal yàlla xët ndigal yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme am na bàkkaar en tant amaa nag xale bi ci boppam gannaaw boo xam ne mooy mu kàllafum jëmm la moo xam ne ab judit la bu jigéen yàlla sant ko tere ko kon bu demee ba mesure yàlla tere ko ak mooy yàlla kon dëgg la bàyyam kat tooñ na ko ci may ko kum ko bëggut ilimaan ji tooñ na ko may ko kum bëggut waaye nag loola du loo xamee kat luy war ne kat suñ ko tooñee rek moom daa war a tooñ yàlla maanaa du caagee rek moom day daal di ne kon kat njagam tooñ nañ ma kat lu ma neex laay def naa mooy yàlla ngir jàpp ne bu moyee yàlla ñaar ñi ko tooñ ñooy gàddu bag wala tasir waasiratun wisra uxraa bakkaar la boo xam ne moo ko defal boppam kon am na ca bakkaar boppam boo xam ne sunu borom subhaanahu bu état islamique amoon gannaaw bu mu sàngewoo def ko dañ koy rey bu amutit na jàppe boppam néew buy dund kon bakkaar bi ñoom ñett ñëpp ñoo ko bokk mu ne ni kon wàll googu wàll gu yaatu goo xam ne xëy na comme ni ko sëriñ bi waxee ci lu aju ci diggante maye ak passé ak la ci aju lépp ci ay masala l'islam jox na ko yitte joo xam ne mën nañoo xalaat ne sax joxu ko lenn ci atte yi jaamu yàlla ci ni ko leerale ci alquran ak sunna waaye malheureusement li ëpp ci jullit yi réere nañ ko réere goo xam ne ak ñàkk ko yitte doo yitte goo xam ne tax na mu jur lu bare bari ndax maye ci li salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nun waa daara Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñoo leen di dikkewaat tey jii waxtaan woo xam ne mu ngi bàyyi ko ci boroom xam-xam bu mag ñu di ko wax Serigne Sam Mbaye ñu fekk ko ci diggante yu xat waaye teewul mu nangul ñu waxtaan wi waxtaan wi nag mu ngi jëm ci ñetti laaj bi ci jëkk moo di sëriñ bu mag bi nga xam ne noonu la tëralee dund euh, yoonu ak ni nga xam ne noonu la ko noonu la ca doxee moom ci jëmmi boppam ñaareel bi mi ngi jëm ci di yoonu murit njariñ li nga xam ne moom la indi jëmale ko ci képp koo xam ne doomu aadama nga te nekk ci kaw suuf ñetteel bi mu ngi jëm ci ñaari rakkaay yi nga xam ne bii moom la julli woon ca bureau gouverneur ca Ndar te ñu di ko màggalal téeméeri at yi ñetti laaj daal moom lañ doon laaj sëñ Sam bëgg mu tontu ñu bismillah rahmaan rahim man am solo la lu jëm ci tontu rek lo ci xamne jamono bi may na ko xataay bi bi ah, nga xamne ne moo di dund bamba ci walu li ñi wax tasawuf wàll wax soufisme moom lañ koy wax nekk lo am solo tambale nak ci suñu juddoo ak ñi ko ñëk jangal yépp ak yëpp waxtaan nañ ko ay yoon soxla ci bu ci dellu la nga noo xam rek ne maanaam xat bu njëkk bi ñuy wax taxsin ni ki dajale xam-xam bu sëkk ci wàllu diine ba li nga war a xam lépp nga xam ko ba ko defee ba noppi dafa sàkkoo géeju itam ci xam-xam yi lislaam yépp moo di jàng ci téere yi ni ñuy jàngale ba li ñuy wax dajale li ñuy jàng fii mu wër réew mi seet jëmm yi nga xam ne ñu ràññiku lañu ci wetu xam-xamu zahir ak xam mbiri wird ak mbiri si karturu yàlla loolu taxoon mu dajale lu bari nekk nit ku yéeme ci li ñuy wax culture maanaam saqafa bu kawe mu teg ci beneen jikko beneen qualité melin woo xam ne wu am solo la ci nit mu di ak njàmbaar njàmbaar ak sikk wu mat sëkk ak dogu ak takku loolu lépp nag ko laloon won ci tambali bëgg ci mujj modi ngëm bu deugër boo xamne dara mënu ko yëngal lu toj montagne yi mënu ko yëngal ak li wax choc modi ciofel sop sun borom sop bu tax lepp far ci xolam ba sopp dara mënatu la am ci xolam lu yalla mu nekk kon itam nit ku ràññiku ci lu feeñ ci lu ñuy gis rekk ci moom ci nit ñi mu boole ci ittewoo nag mbiru jullit ñi di seet lépp luy wéral seen diine lépp lu leen di tax a xam seeni warugar lépp lu tax ñu farlu wattandiku lépp lu ñu war a wattandiku téere yu bari yi mu taalif bu ci nekk dafa seet ne taalif bi daal war na ndax benn mësoon nañ cee taalif bu yàgg waaye téere yooyu nit ñi wan nañ ko gannaaw ndax dafay téere yu gudd indi yoo xam ne aaju ko ba tax nit ñi ko gannaaw mu xam ne mooy li ñu war a xam dëgg ci bu nekk moo tax mu taalifoon téere koo xam ne gis na ne liñ ci taalif doy ko ndax moom daawul taalif ngir wane xam-xam wala ngir leen ndax daan dimbali nit ñi bëggoon ñëpp xam seen diine te itteewoo ko kon duñ ko xam ne ba mu mattalee boppam ba mu mottali ko ba mat matal boppam ci jaasi ba pare ak ci baatin dafay matal képp ku ko topp xam ne itam ne xam-xam kat wasiila la du raaya maanaam moyen la waaye du xam-xam du li nga xam ne fa lañ ki war a àgg fa xam-xam day jumtuwaay boo xam ne daf lay dimbali ca la ngay wuti la ngay wuti nag mooy lan mooy ragal yàlla topp ko xam ko ci xol bu set boo xam ne yàlla du ko du sa bokk ak lenn ànd ak bëgg ko bëgg gu tax doo mën a teqali ko moom di ko xalaat di ko jaamu di def lépp loo xam ne da nga yaakaar ne dana la may ngërëmam boole ci takku googu moo xam ak dogu gi ah yàlla nag boo ko xasee ba mos dafa neex ba doy waar mboolem luy xeetu bànneex bànneexu bët bànneexu xel bànneexu xol bànneexu yaram ñëpp lay boole boo ko xasee xam nag daf lay jommal ku jommi ci yàlla nag dootoo jommi ci lenn dara laa jommal boo ko defee yow mi jommi yàlla dootoo gis àdduna doo gis dara doo gis daraja doo gis bànneex doo am bëgg-bëgg benn budul yàlla xam day mel ni yow nekkatoo fi keneen a fi nekk koo xam ne yàlla kese la ni ko xadis di junjee وتخ شيخ بامبلي وحيث ما تخف الهك الاحد يخفك من خوفكه كل احد وقت هو رجل سبرم دك دك رجل لب لدول يالا دف لي رجل واي بو رجل لن لدول يالا سن برم بايلا اك سبب اك لنغ رجل دا نيك سي سوات نيكو بوب اك سي خي بوب نكو نوني سو بوب يالا دك دوتو بوب لنين داخ كوكو مچ مو صاف لا تشاف كو خامل لنين دوتو صاف nit kooku nga xam ne nag xam na boromam te jublu ko di ko jaamu yépp ko yëg goo xam ne day mel ne day jàndoog moom li ñuy wax complexe walla ñeetaane wala réccu dootu am place ci sa xol doo yëgati lenn ci sa kanam lu dul yàlla lu lay ëpp doole ragal wala loo am loo bëgg wala lu lay féete fenn loolu bokk na ci jàngale Cheikh Ahmadou Bamba xam le ne nit li ci am solo mooy inna akramakum indallahi atqakum li ci am solo moo di ragal yàlla gi rekk ak xam yàlla gi du ci melow nit ki wala ci juddoom wala ci am amam wala ci chance am ci lenn kon moo tax pour complexe boobu ak yeete boobu mu xam le ci ne kon ngëneel du càggi ni ñañ jiitu rek ñoo gën ñu mujj diw mel na noo xam ne keneen ku mel ni moom dootu ñëwati gannaawam lu dul Muhammad rasulullah sallallahu alayhi nga xam ne suñu borom dootu yónni beneen yonent wala nit ki couleuram tax na kenn mënu koo jot ci xam wala ci jaamu yàlla wala ci ragal tax mu ne laysa yujibu sawaadul jismi safahatal fata wa su al fahmi ñuulu deru nit du waral manque xelam wala manque ak déggam naka noonu du waral man ci njàmbaaram wala ci yeewuteem wala farloom wala lenn ñi jiitu ñi daan leen warmaal ndax ñoo xotti yoon wi xamal na ko ba nu mën cee jaar ñoo bind téere yi waaye nag bu jàpp ne keneen mënatu la ñëw ba tal na ñoom wala nga ëpp leen ba mel na ñoom wala nga raw leen moo tax mu ne wala tuxassis fadla rabbin qad ala bi fi taqabbulin faqat fataja ala bul jagleel ngëneelal suñu borom bi nga xam ne ku mag la ñii yàgg ñu jiitu ñi rek ancien rek ci moderne yi loolu moo tax mu formé ay combattant ay guerrier nit ñoo xam ne dañuy xeex bu xeexu zahir bi yor gànnaay di xeex ak noonu yi daan wax loolu formé ay yarkat yoo xam ne ñooy façonné nit ñi melal leen na gën formé ay nit ñoo xam ne ñooy guide spirituel yi gën a éclairé bu nekkoon kon missionnaire boo xam ne bi mu fi ñëwee ba bi mu fi jógee liggéey liggéeyal yàlla rek la fi nekkee ci wet gu nekk sellal nit ñi ci ji koy rëy dindi ko ci ñoom murit dëgg boo gis moo lay gën a woyof dindi kañaan ci seen xol dindi bañante bañ jiw ngir dangeen di xëccoo dara mu jël ko wala daf la féete kaw ci nangam wala daf la tooñ wala yooyu yëpp luy tardeel nit la luy dox diggante nit ki ak boromam la naka noonu nay nay ak ragal ñàkk daf koy dindi ci xol yi nga xam ne kii nga xam ne jaamu na yàlla ba xam boromam yooyu yëpp daf koy sori bëgg àddina xemam dara wala ragal dara yooyu yëpp daf koy dindi nga xam ne kon ni mu jàppandalee ci seen xol yëkkati seen alal ju leen néew def ko ci yoonu yàlla ak nañ ko ca defee nga xam ne yàlla rek lañ ci jublu te yàlla tax ndax bu dul woon yàlla du ñu jublu loola ba di leen jaral ñàkk seen alal liggéey bu rëy la boo xam ne bu mën a xeet nit ñi la xanoonu ragal ko la ŋàññ sopp ku lay tagg wala ku lay yëkkati yooyu yëpp ay gal gal la ci nit ki yoo xam ne day daf koy tardeel dox diggante ak yàlla yooyu yëpp bu dañee ànd nag jëf ju sax ngir àllaaxira jëf ji ngay jëf lépp ngir àllaaxira amal li duniyaaka ka annaka laa tanul abada واعmal li axiratika ka annaka tamuutu gadan kenn ci xokkumaaw yi moo ko wax ñenn ñi daañu ko askan ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan xadis la na nga jëfal sa adduna ba mel ne ku dul dee mukk jëfal sa àllaaxira ba mel ne ëllëg ngay dee ni nga xam ne boo xam bu la wóoral ne ëllëg ngay dee te nga gëm yàlla gëm àllaaxira xam ne sa jëf rek moo lay wallu ci bàmmeel ak taxawaay bis penc ba moo lay yóbbu àjjana ni ngay farloo ci jëf kon na nga dëkke noonu demee noonu boo di jëfal sa adduna it bu jëf ngir sa njëriñal bop yow kenn na nga jëf lo xamne da nga bëgg mu jëriñ aduna bëgg bu bu fi joggé faatu dem àllaaxira nit ñi di ci jëriñu njëriñ la jëra fekk ci comme bo doon dund ba faw mo man di ñak am la tu ba abada nit dañu al-harakatu baraka yëngu barke la moo tax sëñ Tuubaa jàngale jëf di jëriñ ba nga nek nit ko xamne dañ lay gaddu di la wéyalé ngay wéy ci ñeneen kooku barkeem lu néew lay doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom saxaaba yi dañoo tukki woon tukki bu sori bi nga xam ne ñu ngi ci am waa ji farlu joo xam ne jaamu yàlla rek la doon def boole wu ca leneen bi mu dikkee ñu di ko nettali yonent bi mu ne leen ana kooko daan fegal ay aajoom kooko daan dimbali ñu ne ko ñun ñëpp kenn ci ndaara ko mu ne leen yéen ñëpp a ko gën xam ne kon suñu borom bi mu bindee àdduna yamul mu ràpp daf bëgg bi mu joxee nit ñi kàttan ak xel ak ay loxo ak i tànk bëgg ñu jëf li àdduna laaj waaye nag ñu jëf ko bàyyi xel ci ëllëg jëf ko ngir yàlla itam ngir bu ñuy jëriñ seen bopp ak bu ñuy jëriñ keneen it jëriñ loolu ngir na yàlla tax sëñ Tuba dundal valeur yi nga xam ne ama am solo la te nit ñi woyofaloon ko doyadal ko ba fàtte ko ni mu def ci alquran ak bi mu dikkee ni mu ko fekk waxtaan nañ ko ay yoon nekkul loo xam ne soxla na ñu di ci tardé bu doon nit ko xam ne dafa bokk ci néew néewi jamono yi nga xam ne jamono day ñëw nit ñi nga xam ne dañuy ñëw si jamono lu néew leet leet rek mu di moom kéemaan ci kéemaan suñu borom ni mu ko wax ne bàyyi li kulli man lahu wilaaya kaw ni rabbil alamina aaya moo ko waxal boppam bu mu seetee lépp daal daan gis ne moom royukaay la woon bu mag royukaay boo xam ne day àggale nit ki fa gën a sori ci baax day defar nit ki biir ak dëkk addinaam ak alaxiraam ci biir ak ci biti ci àdduna ak ci alaxira nga xam ne du yëg lenn lu ko manqué du yëg lenn lu koy metti fenn wala muy rëccu lenn wala muy naqarlu lenn loolu mooy nit ku mag buñ ba dégg ne al insanul kaamil mooy nit ku nga xam ne transcendé na maanaam féete na ko yooyu yëpp da nga xam ne amul dara loo xam ne teewam dana ko dëkkloo wala am ñàkk ko dana ko naqari wala mu di ko jàqloo wala mu di ko féete fenn ci wàllu xolam kon ku ko xamoon ni mu jëriñoo ak ni mu yaree woon ni mu dajeel noonu la bindee bàyyi fi lépp mu daan jëf yare ay nit ñoo xam ne dafa bëggoon ñu toog fii ñoom it di yare ba faw ko defee day mujj toog yëpp am yar boobu la ndax yàlla kenn la waaye yoon yi si jëm nañu mu ngi toll ne nooy bindee fii kenn ku nekk ak sa méthode kenn ku nekk ak sa expérience Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ni nga xam ne ci ñunu xamagun ci xutbul xaw yu mujj yu fés yi nga xam ne su borom woote loolu ne leen ba sant leen ko méthode dam wuute naag méthode yooyu yëpp ni nga xam ne noonu la xutbul xaw si bi fi bàyyee wird muy àggali bàyyee na ko fi wird ba noppi am yeneen méthode yoo xam ne leneen la fekk nit ki na ko xam te appliqué ko waaye nag ah, jamono doy na waar wala fi tam rek da ngay waaru farlu bu sax jëkkanteeg sa dig digu faatu dig kenn xamul fu mu toll mën na jege waaye li gën a takku mooy nga fas ko muy jege ngay njëkkanteeg moom def yi la war lépp bu ëllëgee doo rek lépp loo xam ne bëgg loo dee fekk la ca ngay fexe ba boo koy defit na tuuti boo ko mun la bañ a def لا ربما حينها الموت ياتي بغتة وربما يكون ذا شواغل محرمة دا دي نيو تبت تجور دي بيت قال مبري دا نفك دا نفرن دي فك كو خمني برومي سخلا لا يو خمني دخلنا دي بنتي مياه موني كو تيري مدي تفك سخلا مياه دي دي مطل تنس سخلا يو دخلنا دي بنتي مياه بني سيتي تم امباكتو بريد اسمو مرامي وانو خمني سيان ربما مو خطي dafa am lu ñu tubaab dafa am loo xam ne dafa rafet bay xëcc sa xol di xëcc sa xalaat nga di ko xalaat di ko xemem bëgg ca dugg ba dugg ca nga xam ne day xëcc nit ñu bari ndax rafetaayam ndax wóor wóoraayam dëggoom ak yombaayam ak gaawaayam gi muy gaaw a jox nit ki li mu soxla ak li muy wut bu fekkee dugg nga nag da nga gis ne li ngay jëkk a gis moom ittewoo gi mu ittewoo yar nit ñi te yar kat lépp lu baax ngi ci yar lépp lu bon ngi ci ñàkk yar nit ki libre lu ko neex def fu ko neex dem fu ko neex waxal fu ko neex àndal fu ko neex yenn fu ko neex xoneen yàqu-yàqu bu réy boobu ndax nit dafa gàtt mën nga dugg ci yenn détail yépp seytaane ngi ci moom ci biiram malaakaa ngi ci biiram gaynde ngi ci biiram unda ngi ci biiram tilla ngi ci biiram jaani ñàngoor a ngi ci biiram mbaam xuuxa ngi ci biiram xaju ngóon buy bëddee ngi ci biiram lépp lu mu dimbalee ci cosaan yooyu rek day daal di fekk loola mel na loola rek yar nag mooy tax mu mucc ci yooyu yëpp moo taxoon Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu farlu woon ci yar boo weddee loolu léegi ak iman bi am maanaam abandon maanaam démission bi nga xam ne moom la parents yi démissionné ak ñeneen yeneen ci dafay nga jaar rangoñ yu tàng sotti ko ci sa bët yi ndax am naqar ci ñi xale yi mel benn nga yërëm leen wala nga mere leen boo gàttee xel mere leen ndax ni ñuy defee boo amee xel nga yërëm leen ndax daa loo xam ne lii dina leen dana leen dimbali gis nga ko amuñu kersa duñu rus duñu ragal duñu warmaal dara fi ñu war a sujjootee lañuy saw dara jaru ko eh, xam ne na ñu aaraay ak kilifa yi defatuñu dara bàyyi nañu xale yi nekk ñoom seen itay bopp rek dana indil parents seen bopp ak xale yi ëllëg gàcce xale yi lu doye di la te ku doye bu gisee lu ko xaw a yéem wala lu ko féete kaw wala lu mu ragal rek day dal di imité day dal di roy loola te yi muy gis ci jamono ji di ko rey day tànn ya ñaar day tànn du roy sax même yéefar yi nga xam ne ñu civilisé lañ ñu sell lañ sax def leen fay wàcc yéefar yi ñu gën a suufe ci yéefar yi seenu meleen di tegtale doye di xel ak soofe ak ñàkk maanaa ñooña la ñuy roy góor ak jigéen loolu moo taxoon cheikh ahmed bamba radiallahu taala anhu farlu woon ci jar woote jëme ci jar ba bind téere waxoon naa ne lépp lu mu gis ne nit ñi aajo nañ ko rek bind bu gën a yar génération yi mu dajal ak génération yi ñëw yëpp léegi nag bu amul ko yar day sol yére ñàkk kersa daal di rocciku ci buumu xel ak buumu diine dara dutu ko yeew dutu am dara dutu diggante nag dara bu ëllëgee mu dajeeg li koy leer ci lu wane yamu xiyam ci lu wane dee ku nekk gis la la neex ngay def te àdduna ne ma ne da tax sax àdduna neex àdduna wi ci nekk yëpp lay waaree dara diine nag dëgg dëgg nit ki am diine diine sax ci xolam yi ni ko sëñ Tuubaa xam ne mooy sopp mboolem nga ñi ko xadis bu waxee mel ne ñi képp koo xam ne ku sopp yàlla danga sopp jaalam ñi loo bëgg rek bëgg la ca aju wati assurance la muy am kon ku bëgg suñu borom tabaraka taala bëgg jaamam yi ngir moom dafa bëgg jaam yi nekk ngir moom doo dëkkal kenn fenn doone diw safara la jëm xamuloo ca dara ëllëg la te ëllëg yàlla ko xam xamuloo lu muy mujjee yow sa bopp itam bu rafet jot nga dëkkal sa bopp fenn àjjana wala keneen xamuloo looy mujjee xam la ne jàngale na war naa mbindeef yépp rawatina nag mag ñi maanaam mag ci maanaa ak mag ci at yëpp daf am ñi kenn na jëflante ñëpp ak teggin bi lu gën a rafet te lu nekk ngi ci doomu aadama yi xaritu yàlla ngi ci nekk ngi ak noonu am na teey ñu xool sax borom kanamu borom xam-xam bu jëfe xam-xamam jaamu yàlla la sopp ko sopp yàlla la suñ bi xamle ngëneel yi aju ci xel ngëneel yi aju ci xol xam leen melo yi yàlla tagg xam leen lii tax nit ki ruuxam rëy nafsiyam rëy am maanaa lool borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna allaha tabaraka wa taala yuhibbu maali lumuri wa yakrahu safsafaha yamuru wa isafa safaha suñu borom dafa bëgg jëf yu rëy yi ak xalaat yu rëy yi ak melo yu rëy yi ak jikko yu rëy yi daal di sib يخيب ينيك صلى ينيك ما نهي إن خمي جم الفن يقول حقيا المريد للقادر الباقي المريد مزهد عن كل مريد في الأسلاء معلم نتي خاتلي كده مريد فأنا مريد أب مريد أب مريد أنا مريد ما يكون خمي يلا ما يكون صف ما يكون ير يلا ما يلي يوت بدون في الله تا يوت يلا يلا ما يكون يلا إن شاء الله مريد ما يكون سكرني dara sëfu ko du sonn ci lu baax du jub ngir lenn lu baax amul yéene amul dara dafa fetteerlu ne mu wërta lu ko neex def lu ko neex wax lu ko neex dem lu ko neex jëfandikoo mërirandoo moom mooy jéemu la xam ci li mu nekk dara jéemu la seet dara bu ñu rëg rëgee rek jëm fii mu rëg rëgee ànd ak ñoom bu ñu ànd ak ñoom li muy jëf du ca am lenn loolu nag sëñ bi wax ne aw bindam bi muy bind يقول حطي المريد بالقادر الباقي المريد نانا سما بند بي دانا وام مريد بي مريد بي اسمو مريد بي اسمو مريد بي مريد بي لن وام با تي سن بروم تبارك وتعالى موم لي خامي موم ييب تي دي سي بي بوك تا لوم نم رك زحزح كل المريض ويسرد képp kuy bi maa xom fak ko mute ila sma lami ki ma xamal ki nga xam ne man jàngal naa ko ba mu génne sama école marit boobu dafa suñu borom dafa ko koy soril du jaxasoo moom du ko bëgg marit bi daf koy ragal du jaxasoo moom ndax meloom bu mu amee ak yi muy digle ak yi muy tere ak xolam attanul bàyyi ko ndax xolam dafa entaché maanaam dafa tilim ak salte bàkkaar ak bëgg lu koy lor ba nga xam ne bu jubee ki nga xam ne mooy nit ki jub tey jubal moom bu naru la jub daf koy ragal xam ko nag yàlla dëgg ba dara jege ko la mooy jege yàlla jege koo xam ne mooy ñu ma ko waxee sànq lenn looy yëpp lu mën a def jeexital ci leen ndax daf ko dàq jàngee téere tawxiid boobu sëñ Tuubaa bind nañ koy waxati jàng naa ko ba tey xam leen ne tawxiid nangu ne taasir amul amul dara luy jeexital suñ borom rek moo am aada ji muy jëf leen teg nit ñi nit ki bu ñu daggee baatam rek yàlla rey ko su xiifee su lekkee rek yàlla suural ko su maree su naanee yàlla mandil ko dox mi màndalu yàllaay màndal ñam bi daf reggalu nit ki yàlla li ko dal muy tawat doon tax mu dee loolu réew ko yàlla waaye nag ci àdduna lu ñu dund ci suuf si nga xam ne dafay matériel suñu borom bind ko teg lii matériel ci koom takk ay yoon takk sabab lu nekk mu sabab da koy sababal ngir ñu mën a tëral sharia parce que su fekkoonte ne suñu borom sàkkul benn kiiraay sa digg ak moom mooy def li ngay jëf sa loxo mooy yëkkati dal te fekk yow yëkkati ko boo dóoree kenn kenn du leen àtte kenn tribunal du leen àtte ndax teyu ko defu ko yàllaa ko def léegi ci dëng dem di def li ñu tere muy naan sàngara wala muy lekk mbaam wala muy def lu ko neex boo ko waxee mu ne la yàllaa ko def man jëfuma ko loolu moo tax suñu borom sàkk kiiraay sàkk sabab yi teggin yi nit ki nag mooy jaare ci sabab yi li nga bëgg na nga jaar ci sabab ba def ko loolu mooy teggin ci sa diggante ak sa ba nga xam ne kon euh, bi ngay jëf jaar nga ca teggin ya suñ borom nag toll la foofa jëfandikoo tawxiid bi nag mooy nga jëfandikoo teggin yooyu waaye mu leer la ne rek yàllaay jëf amul dara lu mën a jeexital maanaam lu mën a influer ci dara amul lépp rek yàlla moo làq nag foofu ci gannaaw yéen a xiyam la kàttan googu di feeñ lépp feeñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne an naasu niyaamun fa ida maatu tabahu nit ñi dañuy nelaw waaye bu ñu deexee yeewu loolu wane na ne nit ñi lu bari ump na leen léegi lu bari nëbbu na ci ñoom lu bari ump xamuñu ko te bu keroogee ba kiiraay yooyu dañ lépp feeñ ñu jànloo dëgg dëgg yi nga xam ne mooy li li réel te du dañ te sax ñu nga jànloo loolaa bubaa nit ku nekk da nga am seede waaye soxla woo seede ni ko alquran waxe yow ci sa bopp yaay sa seede sa bopp da ngay jàntlu jëf ji nga jëfoon ba nga koy jëf ak na nga ko jëfe woon ak fa nga ko jëfe waxtu yi dana la seede béréb bi dana la seede waaye seede yooyu yëpp teewul yow ci sa bopp ni ko alquran waxe yow ci sa bopp doy nga seede xisaab sa bopp ànd ak nag xam bi xam ne moom yàlla moom xam na ko gën koo xam béréb di ko seede gën koo xam waxtu bi ko seede gën la ko xam yow mi ko doon jëf loolu yëpp ngir saxal lay bi ci bu fekkee ne loolu xam ko daanu bàyyi bu ñuy jëf ak bu ñuy jeex na ñetteelu laaj bi moo di ci ñaari rakka nga xam ne ñu ngi koy célébrer di ko def te yu sëñ Tuba julli woon foofu sëñ Tuba fi mu julli ci réew mi bare na béréb yu ju yu bari dinañ wax ne ñu mandargaal ko wala ñu ñàkk ko mandargaal yu ñu xam ñëpp mandargaal nañ ko waaye lan moo tax nag ñaar rakka yooyu moom ñu di ko célébrer def ci loo xam ne defuñu ko ci yi ci def dafa am marza li ñuy wax marza maanaam jëf béréb bi ñu ko jëfee dana ko jox beneen valeur waxtu wi ñu ko jëfee itam dana ko jox beneen valeur saxaaba yi seen jëf yi li tax kenn mënu leen a jot ci jëf dañu jëfoon ci jamono boo xam ne jamono bu spécial du dootul répété mooy temps bi fi yonent bi nekkee sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu taxawal l'islam fekk l'islam ñëw fi woon dara ñëw fi woon lu yàlla nangu ñu jaamoo ko ca kon jamono yooyu jox na seen jëf yooyu valeur bu tax kenn mun jëf ba jot leen ci àdduna si ñuy ñëwaat naka noonu béréb itam sëriñ bi julli li mu julli ci ñennati béréb yoo xam ne kenn mës faa julli ci ni koy nettalee te xëy na mën na am ba bésaa yàlla mën na dogal kenn dootu fa julli dana jox julli kon moom muy zarf zaman muy zarf makaan bu ci nekk dana jox jëf valeur wala mu wàññi valeur bu fekkente ne julli ci boppam day lu gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi ñi ko ñu waxee ne ak salaatu azamul ibadaati julli moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne li nekk dana ko jaamu borom mu dellu seet sallallahu taala wa sallam li mu wax ci julli li muy wax naan topploo nañ ci seen àdduna ji ñett yëf seen àdduna ji la wax waxul ci adduna yéefar yi wala adduna yi nit ñi daj adduna rek amatu naa seen adduna yi yéen saxaaba yi ba tey ñu kon adduna bu sellal mu ni sopp na ci ñett benn bi ak tayib mooy pot ko lañ wala parfum di ko ngeen xóotalee seen xalaat ngeen gis na di ko lu ñu tànn ci biir tànnit la tan li ca gën a neex liggéeyee ko noo xam ne dafay tax muy xet bu neex xet bu neex bokk ci teranga bokk ci lu ñu tànn tànnaat ko comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko tànne ci biir ay tànneef muy sopp lu ñu tànn ci biir ay tànneef loo xam ni dañ koo extraire maanaam dañ koo ni ma ko waxee rek dañ koo tànne ci biir tànneef loo xam ne lii ci adduna bi la ko nit ciy jëfe waaye sallallahu alayhi wa sallam ci yeneen gisiin yoo xam ne nit ko amuñu ko ba tax ko xam ne mu sopp xam ne adduna yi gisee rek la waaye day jàngale bi la femme euh, soxna boo seetee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañ indi meññet bu bees mu ci garab teg ko ci jërëm wala ci kanamam naan maanaam luy soog a jógee ci suñ borom ñu ko jëf xam nañ ne lépp lu am suñu borom ko jëf waaye am na yoo xam ne jëfi nit ñi daf ci dugg meññet moomu nag garab gi bu ko nit ki jëmbatee it di ko arrose maanaam di ko suuxat itam foofu la ci yem suñ borom a koy màggal ba tuur tuural ko ba génne meññet ni nga xam ne jëfi jaam bi lennam raxu ci noonu nga xam ne jeexit jooju nga xam ne day fàttali wan day teewal ci xelu nit ki ak ci xolam bind bi suñ borom ji bind ndax li mu dal di ñëw directement loolu moo ko soppee naka noonu itam ci affaire misaal maanaam affaire femme borom daf ci bind mbindeef bind ci roox muy sam kéemaan koo xam ne day wane tawxid koo xam ne aarifuuna billaahi yi rek ñoo koy xam gannaaw yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ne kon noonu muy teewloo màggut suñu borom ak xereñam ak bindam ci ñaar yooyu paase yépp xelu nit ki ak ci xolam bind bi suñu borom di bind ndax li mu dal di ñëw directement noonu mu ko soppee naka noonu itam ci affaire nisaa bi maanaam affaire femme suñu borom daf ci bind mbindeef bind ci muy seen kéemaan koo xam ne day wane tawxid koo xam ne aarifoona billaahi yi rek ñoo ko xam gannaaw yonent yi yonent bi salaa sallam bi mu waxee ñaar yooyu bu ko ñetteel mu ne ma juxilat qurratu ayni fi salaati waaye lii sama bànneex tëgg li ma sopp tëgg li ma gën a tëgg ci lépp mooy julli nga xam ne kon noonu muy teewloo màggu suñu borom ak xerañam ak bindam ci ñaar yooyu passé yépp ak ci sellal ak rafetal bind tànn lu ci gën féetale ko fam ko bëgg a féetale ngir la tax ci julli la rawee ndax julli ni muy boolee nit ki ak boromam amul benn jaamu yàlla bu koy boole boromam ba tax sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki waxtu mu gën a jege boromam ci dund mooy waxtu mu këppee jëm di sujjóot kon julli noonu la demee bu fekkee ne jullee ngi màgge noonu ñu seet li ñu waxoon ne jëf béréb ak jamono dana ko jox valeur dana ko yokk valeur nga xam ne xëy na bu doon ci beneen jamono ak beneen béréb du أقصصه صلى الله عليه وسلم في خري بدر بدا خميني نيت يعني سي كنا مانام يفر نيت كنا جولي كو يعني يلان عليه الصلاه والسلام دم دمي تي مار نيو فاتلون نيك سي دي نيان سون بروم ابو بكر نيك فا سعد بن معاذ جاسم taxaw ci bunt bi di wër ngir bañ ci yéfer yi bett ko julli la fa doon def wax ci su jotee ñaan suñu borom rek def ali nabi talib radhiyallahu taala anhu neena ay yoon day bay ko ci xare ba ñëw di set yoon ci sallallahu ndax yéfer yi sa tax luñu ba ci mom bu ñe fekk mu nekk ci su sujjóot di ñaan ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum qayum la saxawoon tax ñu ne yaa xay yaa qayum tour suñu borom mu doy kéemaan la ku gaaw ci wuyu xam nga ñu dem dana ndax hadis yi nga xam ne taxal na ne al ismu al azim al azam ci ñetti saar yi saar ñetti saar yi bu ci nekk ak xayu xayum mu nga ca noonu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam suñu borom xamal na ko wa zaidukum lahu ihda taifatayn annaha lakum wa tawaddun anna ghayra ذات الشوكة تكون لكم xamoon na ne suñu borom benn dana ko may bu xaree dana gañe xare boobu wala bu xarewul lu dul dajee njëgg ma maanaam caravane bi nga xam ne moo jubee Syrie jëm Makka te alal yu bari ya nekk ca te ñoom seen alal yi ñu leen tux tuxaloon ba génne leen Makka ñu wacc ko fa yépp nekk fa mu di seen ak ñu di ko dogale ci suñ borom xamal na ko woon ne benn ngeen dajee caravane bi moom la ca nekk wala bu ngeen xaree da ngeen gañ ci xare bi dajewuñu caravane ba armée bi la ñu dajal war a xeex ak ñoom kon suñu borom xam dig na ko ne ko ba tey da ngeen gañe xare bi waaye suñu borom dafa demee noo xam ne sañ-sañam ak man-manam xam xam na ne waxam du dañ mukk waaye na gën a xamee yàlla rek gën a a ragal ko teg ko fa nga ko war a teg noonu itam bu seetee circonstance yu doy waar yooyu nga xam ne sallallahu alayhi wa mu ngi wax suñu borom naan ko kuréel bii di saxaaba yi di xare ci Badar waxtu wu ñu alko waxtu wu leen yéefar yi jekkoo ba rey leen kenn dootu la jaamu yow suñu borom ci kaw suuf si mu di kon situation bu doy diggante bu doy waar bu rëj bu rëju Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ci royam yonent ko ak bari ñu ko donn ci bi muy julli ñaari rakka yooyu itam nekk ci situation bu dangereux ni nga xam ne ne yonent bi sax li ko itteeloon du jëmmam waaye diine ndax bu kuréel boobu alkoo kenn dootu jaamu yàlla te jaamu yàlla googu moo ko itteel sëriñ Tuubaa bi nga xamee ne mu ngi mu ngi wax ne wajal masiriya za jawfal fara lil wara misal maxaari ne ñaan na suñu borom ngir tukkeem boobu di faju aajo mbindeef yëpp kenn ku ci nekk ca la cay sa aajo la nga xam ne moom nga yelloo ci mu faju mu xam ne ni ni ko sëriñ Moussa Ka waxee ci Zaw Sakoor mu ne budul ko ne dem bi wolof nasaraani te kon billaahi ñëpp dem niiraan nga xam ne moom mu ngi taxaw taxawaay bu demee noonu taxawaayu fekk li bindee fii ba duñu nasaraanu duñu dem safar ngir dox boobu nga xam ne mu ngi koy bëgg a dox te bu ko doxee ba ñëw aajo ñëpp faju lislaam gi taxaw mu niroog lool kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu tolloon ba muy julli di ñaan di wax suñu borom ya xayu yaa qayum yaa xayu yaa qayum ak di teewlu ne ci ragalam yàlla ak wóoloo di koom ngir bëgg lislaam ak xam kattanu yéefar yi ak ni ñu baree bu kuréel bi alkoo keneen dootu la jaamu sëriñ Tuuba di julli moom it ñaari rakka yooyu di ñaan su borom yoon wi nga xam ne lim ko jubloo mooy xet li mbindeef yi yoon wi lëm ci wuti mu am ko dellu ak jàmm muy njëriñal bindeef yëpp nga gis ne kon ñaari rakka yooyu def ko ci circonstance maanaam ci diggante yu doy waar comme ñi yonante bi nga xamee ne yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci yowmu badrin ba mu nekkee ca arish ba mu ngi julli ñaar rakka ay rakka ci jamono yu doy waar moom it ngir xeet li bindeef yi ci mu ngi julli ngir xeet li bindeef yi في هو يحي يقيم يحي يقيم ذر لو ان دي دخل مو ادي دي في فاجو كي تم ذر دمن بي بدك دي فلك ادي دي بني دي كل كل سرمدا وجعل المسير يذا جوف الفال ورا مثل المحارين سنتبا مدي دي انت دي على سنبرو نحن نك ci li muy ñaan li gën a rëy te mooy li gën a rëy ci dundam te mooy jëm ci géej gi dellu si la amee lépp li mu aaj faaje faaje aaje mbindee fii li mu amee ngërëmal yàlla li mu ko jagleele muy xaadimu rasul mu di ko xàkku ci jamono yi nga xam ne ci la gën a jege boroomam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sujjóot kon li muy sujjóot sujjóotu lu dul ngir ngir moom bindee fii moom yëkkati na léppam maanaam kulliyatahu ni mu ko waxee tabaraka taala lahu taala moom suñu borom léppam la yëkkati jox suñu borom léppam ciram yëpp la ci karam yaramam lépp lu mu yilif lépp mu moom lu aju ci moom yëkkati ko delloowaat suñu borom tabaraka taala ngir sant ko ak ngir xëri ci moom ngir bëgg ko ba gisatul dara bëggatul dara ci kanam yàlla boobu fàttali kon day waar goo xam ne diggante yooyu nit ñu rëy toll nañ fa fàttaliku bindee fii xalaat yi seen bopp li xalaat bindee fii kon ñoom ñaan ñëpp moom sallallahu taala wa sallam ñu gën ci mbindeef alayhi salaatu wasalaam ak xaadiman dund ci lislaam itteel leen itteel gu ak tey gu àgg fof jamono yi gën a raj gën a tiis ñu xalaat bindee fi ñu génn leen ci mbindeef yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defal innama ana rahmatun muhdaatun man dina len lu yeen ni ci borom yëkëti ñepp ñepp ñepp ñepp lay seen def lay seen ngërëm yërmande kon ñepp lay seen yermande ak ñi dul ñepp luy baaxi luy malaika di lay yermande yërmande ñu ci ñepp di ñu ko soppante bu won ko gën ñu def ñu dugg ci taxaw ci ñu defal kon ñi nga xamne dañu مفضل جولي بابو لكي برم بابو مفضل كي برم دفع مو أنخلو نسيان يين يرزك يدفع مجر جمي الله فوفو بنت سينا بناو توحيد جيبا خمنا مولو غلام بور خم جمو خم برامو جاك جمو جاك احتياطاتي xam ne ndigal la ak xam yàlla la xamal nañ ko ne dina dem demoon lu dul ngir liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu àggee ndar la way asiru boobu nañu woo sëñ Alaaji Aman Njaay maa bee man ko kasida gi ak lim ci wax ne ko yow laay def seede danaa dem am li may wut dellu fekkaat la ci ndar moo ko ci ba mu xam mu wóor ko ne day dem dellu si te day am lu mu doon wuti te kon aajo bi dafa faj teewul mu wëññi wëlbatikuwaat suñu borom di ko ndax lépp luñ la may ay sew sew nekk na ci mbiram ak jëf yoo xam ne mën na am leneen li ca def loo xam ne bu ñëwee am na lu manqué bari ñaan gi ak saxoo ñaan gi xam yàlla rek la ngir bu ñëwee mat sukk la mu doon barkeel sew sew yëpp ñu remplir ko ba dara du def tax dana bashir kulliyatahu habihi sun borom na nga bëggal léppi yonent bi ci man mu ko wax rek ne ak dundam mbëggum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem nag mu ngi dem ànd ak roox yi mu ngi dem ànd ak roox yi ànd ak xoli ulama wala amilone yi ak wàllu yi ak roox yi saxaaba yi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam النواحي جنود مجندة حديث لا روحي أي أي كرل لين yoo xam ne dañ leen a séddale def leen ay kuréel bu ngeen mu jàgg maa taas naat lépp ñu ci xamante xeetanteeg moromam day ànd bu buy jógee mu jóg ndax wilaay sax ci boppam dañ ne dafa mel ne jëmm rek kenn ku ci nekk ci ab cër nga ca wilaay bi bu matee nag jëmm jëpp lay làmb mooy ko xalaat bu ko defee gépp may ak gépp yoon ak bépp tur yàlla ak bépp xam yàlla ak mat bu ne ci kenn ci wàllu yi da nga boole lépp lépp noonu nga xam ne askanonte gi wooyu askanonte tax na benn jógee ci mat yi mat yi dañu ci def ànd di ko gunge yan yi ñuy wax boo ne loolu wax na eh, nett nañu ci jëli ci Abu Hamid radiyallahu taala dafa gis ca benn petax ak benn baaxaan ñu sësaloo di jonjoo amu ci kenn kuy sori moroomam mu daal ne ñaar ñii de askanoonte nekk na seen diggante maanaam am na rapport am na lu leen boole lu ñu niroo daal wala lu ñu bokkale daal di yëkkati loxoom ñoom ñaar ñu dox kenn ku ci nekk di soox ñu xam ne kon soox googu moo leen boole naka noonu almuhim bu ko waxee li wax yi dina wax ne xasaali ci sangi ak kilifa yi ñi xam ilmul munasaba ci la bokk dafa am jataay yu bari ak xóotaay boo xam ne duñ ca mën a dugg ndax béréb bi laaju ko li ci gàtt ci lam gën a gàtte te dana mën a leer moo di xol waxtu woo xamee ne set na wecc ba sell borom dootu mandi ci alquran dootu mandi itam ci julli yootu fekk nit nit ki ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg googu mu koy bëgg bu bëgg di matee daf koy xëcc moom di ko taf ci moom ruuxam ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ni mu waxee ne bi muy dem wax na ko ci asiru googu te booba demagul mi ngi ndar wax na ne bi muy dem mu ngi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi naka noonu nga xam ne waxtu woo xam ne ne xol sell na ba set waxtu nit ki xam boroomam day xër ci ñaan loo tax ñi takkoo di ñaan di ñaan di ñaan rek takkoo ko te duñ bàyyi mukk loolu moo ko waral bi nga xam ne moom mi ngi daataan mi ngi daataan génn këram ko ba xamal ko ne bul ragal benn lor loolu xam ne ne amul ci sikki sàkk xam am la rek xam yàlla bi mu xam yàlla ak ñaan yàlla ñu toroxlu ci kanamam ci moom yooyu yëpp tax na mu toll di sàkk itam yeneen i sañ ak ñaan ak leneen mu dolli ko ca ren ndax sànni wi dal bu dee benn bu ñaar dikkee ñett dikk mu gën a dal day gën a dal dafa bi sallallahu alayhi wasallam moo doon meloom gannaaw ba nga xamee ne suñu borom bël na ko ni ma ko waxee woon léegi kenn ci kuréel yooyu moo tax sallallahu alayhi wasallam ne ak xaali والاكتساب سنتي ومن ضعف أن حال لا يضعف عن سنتي تقفو ندير وير كوشي باي يالا سما بوب موي سما ملو ما يالا بيندي مون مكو باجا ديف واي سبب موي سما سنة موي يوني ما جارتي بو فكنتني با ديغا سما ملو وو مانام وكيلو وير سندير ييب سي يالا منو لوكوي بول ساغان موك بول دايدي موك با منو لو topp sama sunna mooy sabab lu mooy jaar jaar yi sun tuba jaar jaar jaar yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci kon ñu julee ñaar rakkaay ba noppi fas yéene wax nag dem ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy royukaay bu mag ba mooy royukaay bu for ba nga xam ne lu wuteeg moom rek suñu borom dugg ca dara lépp loo xam ne roy nañ ko ca jëf ànd ak sunnat yi seen borom di ñëw kon nag bëgg gi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak roy bi ñu koy roy fonk bi ñu koy fonk te fa léppam jox ko léppam mu demee ba gis suñu borom suñu borom xamal ko nag yoon yi mu war a jaar su mooy yoon yi gën a set moo di jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne dallani allahu ala muhammadin wa qaadani muhammadin bi sama ba mu jógee tàmbalee jaar yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko roy ba ci rakka yooyu ba ci dem bi ak li mu wax bu mu ne dallani allahu ala muhammadin wa qaadani muhammadin lissamadi dafa waxoon ne dallani allahu ala xayril wara wa qaadani xayril wara lijil wara suñu borom daf naa tegtal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gën jiw yëpp kooku jàpp sama loxo kon def naa sama ànd ci nit ki demuk boppam ci yàlla li ko gën a wóor mooy yàlla dina ko wax jàpp na kon moom xam ne du juum du fàtte ma nga ci kër dëgg ga li ñu nëbboon ci moom bi mu nekkee ci at lépp ñu feeñal ko jox ko raat bi ma gaa yi mu ràngoo ak darajaam ak xam-xam matam ak ni ko suñu borom ak ñu ko ñu ko rusul mu ba àggale ci suñu borom wóolu la bu ma tax ñu dikkee liggéeyam ba jóge dara liggéeyam nag لم تكن سنة أن يعلم كتن جسلي ما تبقى تبقى جسلي تبقى بمو ويا نجاوة تبقى موي خاتمة المطاس معنى موي دمج بمو أجي درى من تقوى ويس من تقوى ويس ويدلني الله على الله بلا تغرر وأمر تقبلا سنبرم موما تكن سنبرم موما تكن بسن تلو دل ورونة بمو تجوم مكتب am lenn loo xam ne def naa ko ci njuumte wala ci fàtte wala ci jàll bila taxarud wa umri te suma dund gépp suñu borom nangu na ko bu di jaam ak ñi ma joxe suñu borom sama lépp nangu na sama lépp kon bu muy dem te ànd ak xoli way texe yépp ak ruuxi aarifoona billahi moo tax mu ne nasirim al xiyaaru lillahi bi nabi wa maa li li xayri tànneef yi te mooy saxaaba yi gannaaw yonent yi ñoo gën ci mbindeef yi ñoom laa àndaloon ak yonent bi sallallahu taala wa sallam ànd gi muy ànd ak malaayika gi muy ànd ak yonent ku xamul ku xew xam leen mbir bu xaw kon ko bañ a nangu waaye ba tey li ma waxoon ne saatul miidaani laa yuxfiiha ibaa namlatin sulukan fiiha lef mu yaatu mi nga xam ne ci la fas yi daw bu mellantaanu dañee moom du ci jaarit non ñi am gis dañ ko gis ni ka di waxee ci jësal safu bu doon la yor ba moom la ñuy wax ne di dellu si gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ñun ñu xamul bu ñu yoree taalif yi ñu doon ci ci ci imkaan tanwir wax nag te imkaan ay fi di wax wala xam ne lu mën a nekk waaye nag nit ki bu fekkente ne génn na ci dikk ne man gis naa jinne ñii duñ ko gëm ñii ñoo koy gëm ki ko gëm mooy ki ko xam ki ko xam dëgg xam ni ci dëgg la te dëggul ko ñu xam nag غير حملية مثل جديد أنا أتحل غير حملية جنة أمن تفيدون ولا جنة أنا أتحل غير حملية نعو الأمو جنة كفن كنا نعو أمو جنة كجمل من نت منك وجسنا دكوا دكوا جم فن بتاعي وار جسنا ملاك جسنا يا نبي صلى الله عليه وسلم متصل بجوار بجوار بجوار وين بتاعي كده جسمه كده جم يندي أمسك كده لا bu fekkente ne nag loolu ñu waxoon ci ñaari rakkaay yi ni mu amee solo ñi nga xam ne dañ koy màggal ñu ngi def lu ndax dëgg-dëgg bokk na ci jëf yi gën ci jëf yi sëñ bi ni mu waxee gannaaw julli bu fekkente ne julli me lu mu doon wala yeneen jëf lu mu doon itam meloo def caa am solo ndax moom wax na li gën ci xam-xam wax na li gën ci jëf wax na li yées ci moy wax na li gën ci sikkar tur yàlla kon matal na lépp neena xam-xam yi bi ci gën moy tawhid gannaaw tawhid tafsir quran hadith bu ci gën gannaaw yoy yep nak li lay tax xam deug deug diine xam diine en général waxul rek fiq rek waye tawhid fiq tasawuf moy tax xam deug deug diine xam diine boko defé lépp dugg na ci biir gannaaw lolu nak yi la jumtuwaay yi la koy tax xam li gën ci jëf moy jëf jo xamne dafa bari ay njëriñ di jëriñ nit ñi ni ki xam-xam di jàngale di yeete ak jëf joo xam ne day sel setal xol te mooy jëf ji nga xam ne da nga koo takkoo naka noonu itam jëf nga xam ne tiis na ci sa xol nga jëf ko rek ngir yàlla ak li muy naqari sa xol lépp bokk na ci ëpp tuyaaba ni mu ko misaale waaye li gën li yées ci mooy mooy mooy ku lay fàttaloo yàlla mooy kuy wowal xol li gën ci sikkar pour yàlla mooy alquran alquran nag jàng ko euh, euh, traduire nañu lu bari ci Ihya mm, Ulumuddin ci li ci aju ci alquran euh, mën nañ koo am teggin yi ak liy tax na la alquran di jëriñu am nañ ko ak li Sëñ Tuubaa fonk alquran bu may waxee ne ca tàmbali ba ne dafa doon dundal valeur yi nga xam ne ñu sàggane woon nañ ko yëpp mu def euh, doomu aadama bi daal ak fu mën a nekk na ko yàlla rek itteel te it nag bu mu jàppe diineem lu woyof euh, jiital addinaam na ko jéem a xam na jéem a xam li koy jëriñ jéem a xam li koy wàññi fu mu toll it nay jéem a dolliku nay seet ñi muy àndal nay seet ñi muy waxal nay seet fi muy dem te nay fàttaliku ëllëg ndax fàtte kat boo ko defee rek loola fàtte la te ëllëg loo moo ëpp doole tey ku yàlla fàtte ëllëg nag te yàlla moom bu fàtte waaye day jëfalante yow jëfi kuy fàtte bu ëllëgee da nga jaaxle adduna yi day naxe adduna géej la day labal nit nit ki war nañu delloo seen xel te boole seen bopp rawatina jullit ñi dañuy settantal fenn yàlla bi mu ko joxee nit def nga ba mu di ko jëriñoo alxuraan ne fi zalika la ayati luma la qawmin yaqiluuna qawmin yatafakkaruuna wa qawmin yuminuuna ak yëpp kon borom xel yi lay waxal xel am solo du lépp nag ndax am na fu mu yem foo xam ne wax yu rek moo ko mottali place wax yu rek bu nu jaawale bu nu fab xel teg ko place wax yu bu nu fab wax yu teg ko place xel kon wax yu bari bu ñu ko dee àttee suñu xel daanu mooy diine ndax يسمي سيدنا أبو بكر دفن فإن دينا مبني على النقل لا على مناسبة العقل دينا مي سوسو كي تخل يعني دوني أنا دوني أنا يرن تبين أنا واي دون لو حمد الرمو يجيب تسا خل رك لجا قلي موي دينا بنان الله لي تخجوم دينا بوكل خل كيسك بران خل رك كون يالا دو يرن يرن كون نيب كنك بيلو سخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاجي نيب لاجي إلا نجين وكو فك يالا دوغل مني كتي خط خط آه، أبا نطيد بري بري نت سمخل سيد سيد سمخل ci kaw ak yàkkamti gi fekkoon dafa yeneen jamono ji yeneen jamono la mën naa cee wax tuuti lu wuuteeg lii wala ma waxee neneen waaye nag eh, yàlla na yàlla may dund ak fan gudd ak wér gi yaram ba li ñu a def yëpp ñu def ko insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ndax ku jamono warit su koo mën a waxtaane ci ay minutes waaye dañ ciy mus tuuti muy ni ko xamee di sëriñ mbay di doomi sang bi Cheikh Ahmadou Sakhir Mbaye radiallahu taala an di ku xam ci Sénégal ci ay liggéeyam ci biir lislaam ak lënkaloo bu mu lënkaloo xadimu rasul kenn umpale wu ko ci képp koo xam ne yaa ngi gëstu ci biir yoonu murid wala ngay gëstu ci lislaamu Sénégal yàlla nag tabee nanu jëmm ji ci mille neuf cent vingt-neuf ci ñaari waajur yu tedd ñu jaarale ko fa ñu baax daan jaarale seen doom te mooy dugal ko ci biir daara yi ñu daan baaxoo dugg daara ji mu jëkk dugg moo di daara Cheikh Ahmed Safir ci kopp yi mu tàmbalee ci téere yàlla bi di alquranul karim ba yàlla jox ko ci xiiwal mu mokkal ko ànd ak mboolem lay topp ca mokkal alquran ci wàllu tajwid ak wàllu bind ak yëpp mu génne ci daara jooju laxas mi doomi soxna yépp daan def bu seen sidditu ndono xam-xam masaa yëkkatiku ñu fab seen àlli wa dugal ko ci biiru der ko yenu jaar ko waajur ya daan jaar seeti ñi nga xam ne nii ñooña la waajur ya daan seeti ñu dem ndar dugg foofa di jàng xam-xam ñaari xam-xam yépp xam-xamu arab ak bu français ba foofu ci ndar amee certificat ci français gannaaw ba loolu ko doon taal ci xam-xam fayul ba soññu na ko mu dem ci réew mu ñuy wax Tunis dugg ci benn université bu ñu wooyee jaami ab saytuun nekk fa ab biir ba jot fa diplôme ba ñu war a jot ca biir université boobee mu dellu si waat ci biir réew mi ndar nekk surveillant général ci lycée fédéral ba foofa la amee brevet bu France ak premier bagal ñu nommé ko comme bi mu nekk di jàngale tubaab di jàng di am mag deuxième partie bu bagal mu soog a dugg nag université bu Dakar ci faculté lettres teewul nag jamono boobu yi muy dem université Québec ma nga nekk jàng di jàngale ci lycée Blaise Diagne mu nekk nag ci biir université Dakar boobu di am ci ñaari licence bu arabe ak bu français ñu name ko directeur bu franco arabe ba dañul di jéggi ay jéegoom jëm ci xam-xam ba mu amee li ñuy wax doctorat ci tasawuful islami ci biir université boobu mu nekkoon di bu Dakar ñu nommé ko comme professeur ci kulliyatu maanaam faculté lycée Malick Sall loolu ci gàttal ay liggéey la yu nga xam ne nii sunu conférence bii di Serigne Sambacké Serigne Sambay jot na ko jéggi ci biir dundam ci biir Sénégal li ñuy teel dolli ci rek mooy sant ko cant bu wér ci effort yu mag yi mu def ngir teewe fi sunu conférence bi réeréwu leen ci fan yi rek mu ngi woon Paris di def benn conférence conférence boobu waroon nañu koo téye ba la onze ci weer wi waaye mu xëccu ak coono yu mag lool ba jéem a teewe rek sunu conférence bi loola moo tagg yitteem yooyu mu nekkan ci pay ña mu àndaloon anu ña nga fa waaye sàmmoonte ak kàddoom bëgg lu mu wax def ko feeg yàlla koy dogal loolu moo waral mu doon yitte ju rëy jooju kon loolu lu ñu ko war a sante la ñuy eh, iya, iya, iya, seedeel ko mbooloo mi xam ni sëriñ tuuba jaral na ko lu nekk mbooloo muri jaral na ko lu nekk fa wa anna wa anil islam xayral jasa kon nag ñu diglu ko ci teey ak teggeeral bu ñu noppee itam euh, li ñuy wax débat yi nu fexe ba sàmmoonteeg li mu laaj mooy nu fexe ba gàttal ndax jamono bi xat na te it nu fexe ba bu nu génn siise bi nga xam ne nii dana nu ko jox nu bañ koo génn ci biir débat yi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 لبارك الليل في السماء إذا جدي jadi إذا الله أبينا مثلك الوقت عن الإسلام وقتان واجبان saxat mu toll lu mu jubal ak jub mooy waral saxat àdduna ak bu àllaaxira ndax mu daje fi ñun ñëpp ak képp ku bëgg te mën nga ñëw sujet bi nga xam ne moom la tànn ñu mu mu di teggin ak mel di sàdd di war a waxtaan mu di lu am am solo ndax baat bi njëkk di teggin Kita informal يدخل الجنة أجر عسى يعمل قبل كل من بغير الميراث اتباع فإنه يحرم فوزا وانتصارا li nga xamee ne am na ci murid yi mbooloo mu ko ñaan mu bindal leen loo xam ne dana leen leeral yoonu teggin bañ mën cee jaar mu dal ne bañ ko defee ma dal di jóg ànd ak gaawam ngir li ma xam koo xam ne sàkk nga dara ci àdduna ci àllaaxira te tàkkwin waa amul ak teggin suñ borom dana la xam ak texe ak jëriñi ca la ngay sàkku nee na waxu fi daareen xayru kanzi wa xayru maxtaz bihi du soo xam ne bépp mi def ku dund rek tey julli rek ngay liir ngay mag ak loo mën a doon ak la mën a fekk war na la ba ci bu fekkoon sax am nga ñaari mbubb nga xam ne aaju lool mel na nga jaay ko jënd ko def ci muuru koor nit it mën na ñu jox ko muuru koor ay muuru koor mu tibb ca génne muuru koor loolu itam mën na ko ndax wa fii aydan law jarat alaaya bi sabina alfa bil ilahi lahadi kanat ujurul qawmi laaxirin fi ujurul qawmi lawalina sadaqa bu mu doon mën na zakat itam mën na ko kon nit ki loolu bu génne ko fi mu toll ci ceeb la gën a rafete ndax sopp nañu ñu ne alquran lan tanaalu birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna du ngeen am mukk li gën lu dul ngeen seet la gën ci yéen la ngeen gën a fonk la ngeen sopp ngeen génne ko joxe ngir yàlla kon bu fekkee ne nit ki danay dundee dugub di dundee ceeb mu génne ko ci ceeb moo gën te moo ëpp tuyaaba itam ndax ñu koy fay su sañoon ñu fay ko fayu la gën te mooy fayu ceeb yi nga xam ne yëpp mën nañ nañu dundee yëpp nag fukk yooyu ci xajale ak yeneen yi ci génnul mën nañ caa génne muuru koor ba ci xaalis sax nit ki mën na koo génne jox ko ndax liñ ci jublu rek li toox ne xorran musliman fil yow mi ngir kenn bañ ba doo mën a julli ji di toppatoo loo añee wala loo fajee soxla ndax bu fekkee ne génn nañ ko teel la koo jox mu da nga xam xel sa xel dal na da nga am loo jàpp nga mën a dem julli ji mën a toppatoo yi ci des top mooy Moustapha Mbaye mu ne dafa dafa dégg ñu ne ci guddi lay xadar benn waxtu boo ci nekk wu ñuy nangu ñaan mu ne ndax loolu am na wala ci waxtu yépp la ñu laaj bi jëkk bi bu ñaareel bi mu ne dafa dégg ay nit ñu wax ne eh, jàng alquran bu jëriñ dara ñu dee lu dul seen jëf laylatul qadar guddi gépp la ñu santaane julli ci guddi gépp la ñu santaane ñaan ci guddi gépp la ñu nangoo ñaan am na ci nag ni mu amee ci ajjuma seen saa soo xam ne ni ñu nëbbee laylatul qadar ci biir weer wi la ñu nëbbee saa soosu ci biir guddi laylatul qadar saa soosu am na ñuy wax sax ne géej gi sax ndoxam dana neex dootu wex bu bu saa soosu ak see waaye xam nga ne secret bu suñu borom na mu na mu la feeñal kenn mënu koo feeñal ndax mën na neex ci béréb yoo xam ne ci biir géej kenn nekk fa ba di ko mos béréb yooyu nit ki nekk bu fekkee ne daf koo bëgg ci xelam ak farloom rek bëgg koo xam te du yàlla ak ko xamal la nëbb ko ko mënula fexe ba xam ko saa soosu mën na gudd mën na gàtt saa soosu moom loo ci ñaan moom dogu nañ ci ne moom faw mu am waaye guddi gépp nag mooy moom la barke bi nekk guddi gépp inna anzalnaahu fii laylatin mubarakatin guddi gu ñu barkeel gi guddi gépp la ñu barkeel ndax ci la alquran wàcc guddi gépp la ñu barkeel ñaareel bi alquran ku ko jàngal nit duko ko dara borom alluwa yu gatt yi ñokoy wax an wax yalla aduna li ñew ci aduna alquran ci gëna a foor moo gën foor kaaba gi gëna a foor jullit ñi gën a foor malaayika yeeg yenante yi gëna a lepp lépp arasikus ndax melo la ci melo suñu borom yi te borom ak dara am ak lenn alquran ci yene ji la aju bu yang ne koy ndax jaam bi bu fekkee ne mu ngi jaamu ngir boppam di wut tuyaabaam xamul daañu ko nangu xamul duñ ko nangu waaye ni nga xamee ne boo dee ñaanal nit nit ki mu ñaanal bopp ni ko keneen ñaanal ko gën a amee solo noonu la itam jëf ju baax joo xam ne da nga koo jëf ba noppi yéene yool ba keneen mu ëpp solo alquran jàng ko nga xam li muy tekkee nga ñàkk koo xam lépp moo gën ci jaamu yàlla doomu aadama bi sañ na waxuma la li mu jàng alxuraan waaye li mu julli ak li mu mas a jaamu yàlla lépp li ci dul farata mu mu may ko nit loolu doomu aadama mën na ko mu may ko nit alxuraan nag boo ko dee jàng ngir yàlla nga xam ne tuyaaba ji xaraf wu nekk ñeent fukki junni yiw nga yéeneel ko diw moo xam da nga koo def sarax ndax ku ñuy sarax la da nga koo defal addiya ndax ku ñuy jox addiya la sa mbokkum jullit la moo xam ne rek daf fii jóge nga di ko ñaanal la dana ca jot amul sikki sàkk ci ne dana jot yool ba ñi nga xam nag ñooy wax ne alquran ki ko jàng ki jàngalee jëriñ dañoo yemale alquran ak waxi mbindeef ndax dégg naa ko naan toujours ma di ko nettali koo xam ne day nirale alquran ak code de la mu ne ni nga xamee ne code de la lim lay digal ak lim lay tere boo ko ormaalee yéy doo def accident alxuraan itam noonu lim lay digal ak lim lay tere boo ko bàyyee da nga texe boo ko bàyyiwul nga lakk ni nga xamee ne code de la route boobu lim lay digal ni mu la mën a jëriñe boo ko defee boo ko baxaloon naan wala nga takk ko du la jëriñ dara du la tee def accident boo deful li mu wax ñu ne alxuraan itam boo ko naanee muy saafara wala nga takk ko du la jëriñ dara dégg ngeen loolu kenn mas na dégg wax ju gën a ñaaw jooju wax ju fa gën a dellu gannaaw ju fa gën di gàtt xel walla gëma di yàlla gëma di yàlla la ndax ñàkk xam yàlla la li ñu wax ne saa du taxaw mukk te am ku nekk ci kaw suuf ku gëm yàlla tekkiwul ne toujours ma di ko wax tekkiwul ne nit ñi dañuy dem ba bàyyi lislaam waaye dañuy dem ba ngëm yi wàññi yu bari dootuñu ko gëm dañuy dem ba dootuñu gëm wilaaya dem ba dootuñu gëm saraf dem ba dootuñu gëm barke alquran dem ba dootuñu gëm karaama du dem ba yooyu ci la ñuy tàmbalee di weddi di weddi ba àgg ci nii naar yi mel nga xam ne lépp luy barke dañ koy weddi lépp luy wilaaya dañ koy weddi lépp loo xam ne li du lu xel nangu rek dañ koy dindi mel ni tubaab yi rek nga xam ne seen raison rek la ñuy wéyee maanaam xalaat rek bu ko defee boo leen ne yàlla bu ko neexoon ci kattanam aduna bépp mën na koo dugal ci bën bënu pusa ñu ne la loolu mënul nekk kon al imaanu bil xay bi amatul nit ñi nag dañuy wéy ci loolu di wéy ci loolu ba nga xam ne rek ngëm gi l'islam trouvé fii des di këpp këppal di julli di woor waaye ngëm ga dëgg fa mu waroon a àgg sori na ko noonu la ñuy demee ba dootuñu gëm bu keroogee nag dañu àgg si ñu ëpp ëpp buntu tuub ba ku tuubati dootuñu la jéggal bu keroogee nag loolaay wéy ba ba saa di taxaw jaam yi nag gis nañ ne seenu ngëm mu ngi wàññi ko ndax fii mu nekk boo demee ci réew yu naar yi tubaab yi nax nañ leen ba dañuy bëgg lépp loo xam ne dañuy jaakaar ne bu ko tubaab bi déggee di leen ree ne dof ngeen rek ñu dindi ko ci lislaam te xamuñu ne bu ñu leen toppee dañuy dem ba weddi lépp ci lislaam ndax diine moom fa mu fa mu tàmbalee rek la tàmbalee teg xel mooy al imaanu bil xaybi gëm kumpa jëmm joo xam ne nit la ne yow ne la jibril day ñëw fii nu toogoon léegi jibril ñëw ba wax na ma nangam te yow gisuloo jibril dégguloo jibril nga ne ko jibril ñëw na ma nga jóge ci yàlla wax na ma nangam kooku el imaanu bil xay bi rek ko mën a may nit ngëm nag wërsëg la wu yàlla joxe daf koy séddale ko ci nekk ak lëm la yéene rek waaye ñàkk a xalaat ëllëg day woyefal ngëm ñàkk jëf di ko sellal day woyefal ngëm nuur ci àdduna day woyefal ngëm toppandoo ku gëmul yàlla day woyefal ngëm po mu bari day woyefal ngëm topp bànneex mëpp day woyofal ngëm dem ba loo gis itam bëgg koo àttee sa xel day dindi ngëm foofu nag la gaa ñooñu toll moo tax ñuy wax yooyu waaye alquran moom barke am alquran wala wan na su wala wan na quranan suyirat bihi jibalu aw qutti'at bihi lardu aw kullima bihi almawta alquran law anzalna hada alqurana ala jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyatillah xanaa ku nekk jàng na ko alquran lu mu mënul amul kattanu alquran barkeem sax xajul ci aduna nga jangal ko sa bop boppam ñu jangal la ko ñooyam kep xana kon ku saraxel nit ku de du ko jariñ dara xana kon ku taxaw di julle nit ku de du ko jariñ dara kon lutax tax ñuy jullee néew yi lutax tax ñuy jéggalul neew yi xana bo de julli sax bo de taaya bo agsee ci taaya da nga ñaanal julli ñepp ñaanal sa bop kon gannaaw nit mënu la jëriñ maamam dara kon loolu lepp ay caaxaan la sax lu wuñu kon da nga wax la yonente bi lim fi indi am na ci yoo xam amul njëriñ ci bari amul njëriñ alquran ñu bëgg ko ñu bañ ko mu neex leen mu naqari leen dana jëriñ ci koy jàng di jëriñ ci ñu koy jàngal waaw bu ko seetee ulama yi yépp wax nañ ko ñépp d'accord nañ ci te am la beneen benn jigéen la mu ne bi ba am fukki at juróom la commencé di gis règle waaye nag daawul fay gis yooyu mu daan dog bi ba am ñaar fukki fan nag la commencé di fay nga laaj ba xam ne dinañ ko jéggal loolu nga xam ne faatoon na ko fekkoon waaw mu commencé di ñaar ñaar fukki ñaar fukki ak mu commencé di fay loolu mu passé woon bis yi ko bis yi nga xam ne faatoon na ko muy laaj ndax ba xam dañ ko jéggal di ko faatoon wala déedéet waaye tam fay ko bu fekkee réere woon na bis yi nga xam ne daana faatoon na ko maanaam xamul yàlla la bisa waaw waaw boo gisee ñuy wax tuub innama tawbatu lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubu min qaribin fa ulaika yatubu llahu alayhim wa kana llahu aliman hakiman وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك حبطت أعمالهم tuub mooy nit ki def dara dem ba rëcc ko xam ne baaxul mu rëcc ko fasatu ko yéenee def mu tuub ñetti charte yooyu sart bu njëkk bi mooy na ko réccu ñaareel bi na si yéene du ko defati mukk ñetteel bi na ci dabaatal lu mu man koor ak julli lu ñuy laaj ëllëg la julli nag lañuy ñuy njëkk a laaj ci mboolem jëf yépp kon bépp genn julli goo bàyyi rek war nga koo fay boo xasee ne xas nga bàyyi ko nag ba noppi nga tuub bàyyi gi ko bàyyee woon fay ko jeex na yàq ko bàyyiwul woon a yem sallallahu alayhi bi nga xamee ne omar ibn as dafa tupsi. si ci atum juróom benel ma jóge màkka moom moo ko sayidna xaalid ibn walid ñoo tuubandoo bi mu ñëwee ne yonante bi sallallahu alayhi wasallam de dama bëgg a tuub maa ngi tuub si waaye def moo ma jàqloo mu ne ko gàddaay day far li ko jiitu tuub day far li ko jiitu jihaar day far li ko jiitu kon tuub day far le ko jiitu ñàkk julli gëmu ñàkkoon julli bu demee ba tuub te matal sart tuub matal sart tuub yi mooy ñett yi may wax dañ ko koy jéggal rëccu na ko fas na yéene dootu bañ julli mukk lim ci mën ci dabaatal dabaatal bi mooy fay fay gi nag xam na ñaata at ndax nee na ca soo ko matalee fukk mm-hmm. moom waaw Moussa alayhi salaatu wasalaam nag bi mu nee mag am na ci yoon teel a sooy fekk mu jóge Misra ci dañ koy yaay pour ñu néegu ko pour ñu néegu ko waaye yéen xam nga ni maasum la ci li jiitu nu boogi ak bu nu boogi ñëwee Moussa alayhi salaatu wasalaam ba mu fekkee ñaari doomu yoon teel a xis boobu ñëwee ci alxuraan sax loolu di ci jaar ndax kenn ci ñoom ñaar moo ko moo proposé bàyyam Suwaybu mu may ko Moussa léegi nag ki nga xam ne moo moo maye soxna wala soxna si bopp bi xam ne boo maye nangam ñu fay ki nga xam ne mooy kilifa bi nag moom it bu ne nangam yonte yàlla sooy bu nag dal di wax yonte yàlla Moussa على أن إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجر لي ثمانية هجين. كم فوق وقال لي بدك نفس ثمانية هجين. li ci def moom bu ko neexee def bu ko neexee bu ko neexee bu bàyyi maanaam bu ko defee rek dama si bëgg neex waaye boo boo ma am ana soqaale ko bëgg maa ko bëgg maa ñu ne fukk la ngir muy kiif ci yow waaye waaye ma xam dugal daal boo mënee demal boo mënul bàyyi dugal ci sikk dugal daal tuusal la ci boo ma xamalee daal juróom ñetti at may na la ko su nga xam ne juróom ñetti at kon jeex na la nga xam kon jeex na bu Moussa nag su boppam bëggee nag lu neex soxna ndax yenent la te nekkoon na ci këram gina ko lu baax mu seet boppam xam ne mu xasati boppam bu ko si wàññi dara bu defee mu neex waay bi bu fekkee ne nag defu ko bi xam moom mënu ko soo moom téléphone ndax waa Urga su xaalee te dafa ne ko ala antaaj yi sama yaa jógee kon Moussa euh, juróom-ñetti at ñoom sart na kon ci ñu may ko doom ji ñaari at yi moom Moussa bil xiyaar mooy tànn li nga ci sopp kooku li ñuy wax taarib la taarib mooy gaaral loo xam ne bëgg nga ko waaye mën nga koo imposé nit ki bu la ko mayee si boppam alhamdulilah mu gën yaa neex waaye bu la ko may dara la ko ci sopp tey kan euh, obligé wu na ci leneen ñu ngi si jublu rek daal génn kër gi daal dañu ko sàmmalee nee naa la ko boo ci tegee ñaari at itam alhamdulilah ndax man amatuma sàmmay mag laa ñu ne sax am na wax ne daaw woon gis li ñu wax gumba loolu itam tey euh, yi waxante na ci ba tey am na ñoo xam ne boole nañ ci sart ñu boole euh, di gumba waaye loolu daal wóorul ndax indi nañu yàq ko ba waaye wax ko ba xam nañ ne affaire gumba loolu ñu wax من يرجع للسبيل فقال سيري سيري وإن لم أكون ضعيفا من أي ضريرا يرجع لا تعيد من باول جيت ñu ko wax ak bëgg ñu ko ci lu wéré wéré wéré waaye comme su sama sama bu bëggam nekkoon na ku ku wéy ko gis itam ba nga xam ne itam mag la ba bu mag la trop amul ko ko sàmmal bu ko mu sàmmalee ba ko wax noonu rek la ko gaaral daf ko gaaral daal loo xam ne bu la nee rek bu la nee rek bu la nee bàyyi. waaw seetlu daal mooy juróom-ñetti at yi. ah boo ma si tegalee juróom-ñetti at baax na ñaari at baax na waaye kon itam boo ko demee. waaw waaw bu ko defee mën ko wax la la koy may. waaw ko ko. waaw. ma nga koy laaj. ma nga koy laaj. nee na fonto bi nga xam ne wala boog waxtaan yi nga xam ne dañ ko doon waxtaan ci gis kon te mu amal ñu tey diggante administration bi fa nekkoon mu ne loolu lan moo ci doon position suñ tubaab maanaam ban position la ko taxawoo waxu loolu ñu waxtaanee ci lan lañ doon masala hadis saati ci muritan wa bañ ulama yi ahli tasawuf maalu moo ko ci cheikh na ahmad al hadim ci dalik loolu la bind wala dina ci nga xam waaye nag am na xam ne ne amul bu yoo xam ne dundal nañ ko si di ko ci laaj te mooy loolu dafa am ak xëy na mu dimbale. mu ne dañ doon waxtaan ci inna laa maana. waaw waaw waaw waaw dañ doon waxtaan. waaw mu ne ci la ñuy lor daal maanaam pour que nga xam ne suñ tubaab. waaw waaw. maa ji seen borom di wax ci alquran. waaye maa ngi ko mën a di wax salaatu illaa wala wala xam si illaa wala wala dañu daal wala xam illaa wa maahum. inna laa maa sabi inna laa maa wax maa. ba toog ñoom tamit suñu wax ci lu bari. ñoom itamit wax ci. wax ci. ñun ñëpp ñëpp kenn ku am na wax bu nga xamee ne nag euh, Ibnu Hanbal ak bu fekkoon werante nañ ci kii indi wax Cheikh Ahmed Tidiane kii indi wax Ibnu Ahmed Tidiane waaye nga xam ne moom mooy wax li wax ak li la nangam kii ne ko li wax ak li wax Cheikh Ahmed Tidiane ko wax sëñ bi mu toll fii wax bi nga xamee ne bind nañu sëñ bi sëñ bi ci boppam bi mu tàmbalee euh, tontu aji bind ji xaraf yi bu ñu tàmbalee bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam dox na ba ak moom ne ko kazali sanu si sujaan yi wuute wuñu ñeneen a wuute waaye ñoom wuute wuñu kon ñoom kenn ku ci nekk da ngaa wàcc nit ñi seen wàcc waaye maanaam la ko seen xam-xam yam ñi nga doon wax rek fa nga wax dañ ko bàyyi toog sone suñ borom ne mu àndal dund fi wax la ci tawxid wax la ci diis li ma ko waxtaliko ku xamul jëmmi suñ borom ga la mu mën doo xam nekkin la mu nekkee mbindee fi الاحداث وقت تاخد مثلا خطر واخد من الوضع وفي الوضع الى المحل كمهم نعم وقت تاخد خطر الان فهذا يقول لك واحدين يتخ برم خم خم يحارسون يدق دق يتخ من الرجل سريع القرآن رجل كم خوش تتاخد تواحد من الوضع وحسن لك ايام يتكي بطولة تتكرا جسم يتكي يباخد جبل تتكي أقدار ينفصل في الله nga xam ne moo gën a garaaw moo gën a gën a baaxee ne moom moo gën a garaawoo jëf ndax jëf mën nañ ko balee waaye tawxiid moom lu doy doy waar a bu fekkee ne nit ki parce que xam teew na ci kanam mu xool ne moom kat ni mu fi mu teewoon suñu borom suñu borom ta foofa te tooñ na te def na lu garaaw blasphème la bu bu bu réeréy suñu borom ma nekk la dangay daal mu ngi toll yàgg bi xam ko jokkoo rek bu ko bu fekkee ne na njort su ñaaw njort boobu mu ñaaw njort ci boppam suñu borom toll ko foofee li mu xalaatee woon ne du mucc suñu borom féete ko fa du mucc loolu moo waral danse bu mag boobu mu sëñ ci baa teg ne wax ci tawxiid ko si ci yoo xamul day indi nit bu ñaaw day nit ki sax mbënd nit ki position sëñ Tuubaa moo doon position yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bi nga xamee ne ni ñu ko bindalee bi mu tàmbalee di bind yonente bi sallallahu ne ba ko ko moom jëm ci waare mu daal di ñëw ko wala mën nañ indi leneen yàlla di def seen a dégg nga wax ak nit ñi loo xam ne sa wax nga doon bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ñoom ñett wuute wuñu lan la sëñ Tuubaa noonu leen ubbee ñu xam ne wax jaa ngi nii xamuñu ne suñu borom mel xamuñu jëmmam ji nam mel kon mënuñoo xam nam nekk ak mbindeef yi te ñooñu ñu tuddee itam li ñu wax lu dëgg la waaye bu caa jëri secret ba lañ leen wax bu caa jëri loola rek a am ndax li leer li dajale wax ci li ko jeexal mooy ne ku xamul jëmm suñu borom ja nam mel ak nam demee mën nga xam nag ànd ak nit ñi loolu mooy li dëgg li gàxal wax dafa ñu di waay. nee na sant bay leen xaj yi ci wàllu sabab ak ci wàllu sax. waaye yëpp maanaam ci ban ci ñoom. moo moo ëpp li ba lay may bu fekkee ne dangay may ngir yokk mbokk wala ngir lislaam yàlla rek tax doole tax la am tax te mën na lim ay njëriñam dana yokk fan mu waxee yokk fan da ngeen laaj ne xanaa al qada wal qadar maanaam bu suñu borom noppi woon na ci am nit ki kon nañ koy yokkee ma leeral ne suñu borom gannaaw jamono bu ko ëmb amul jamono li teew ak li ñëwagul ak la paase ñëwoon ci moom kon gis na ne waa ji fii dana fi waroon na fee dee bu bu saxee woon waaye sax na mu xam ne du dee foofu mu dikk xam ne bu dikkee ba fii bu saxee wala yi di ko ñaan du def dara lu yàq fanam mu xam ne foofu la war a dee nekk na fi nga xam ne kon bu saxee woon dee fii waaye gannaaw suñu borom moom lépp teew na fi moom xam na ne kon dana sax moom kon sax see yokku xam nga mu xam ne nit kii kat nangam waral na ko dal jàng alquran wàcce kaamil rek mën a moo ko mën a tegal suñu borom xam na ndax dina wàcce kaamil moo la du wàcce kaamil boo ci wul kaamil bi moom foofa lay la ko loolay dalee bu ko wàccee rek loola du ko dal suñu borom xam na ko ba noppi xam gi ko xam ba mu jeex ba mu ne loo am ba noppi ba mu ne suñu borom noppi na xam nañ ne waaw léegi nag sax danaa dana yokk fan dana dund bee ba ñaaw ba nga keroog ci la nit ba nga xam ne fekk na jant bi ba yow nit ñi xet benn sax ba mu set kon nangami boo yu ñaaw boo ngeen yoo ne yu ñaaw la sax dana dana wétti nit ki ci bàmmeelam ndax nit ki ci bàmmeelam dana wétti wéetaay ne ndax roo bu génnee ci jëmm ji ne ñaar du ko seet fu mu koy gisee te ñàkkal gi bi mu koy ñàkkal ci ak coono yi muy sonn ak naqar woowu muy am ndax ñàkkal ci loolu mooy mbugal mi njëkk mooy mbugal mi njëkk naqar woowu sarax dana ko dana ko dindi dana ko wéet li wéet boobu muy wéet dem mu ba nga xam ne euh, bokk na ci mbugal yu a metti sarax dana ko bokk taxaw na taxawaayu rek moom it mu ne addiya nag moo ëpp doole ki ñu jox addiya ci firma kon ki ñu jox addiya ni mu gënee ci ñuy sax rek noonu la addiya bi ëpp doole presque ndax addiya bi sax bi yaa ngi def nit koo xam ne dañ koy dimbali ngir xaatu rek ngir yàlla ki nga xam ne nag li la koy dugal yëkkati jox ko li koy jox ba nga wax sa wax ne ko ay yoon ne ki ñu jox addiya bi fu mu dugal addiya bi fa la xolu fu ko jox addiya bi di nekk ndax bu fekkee ne daf koo def ci mbir wootu àddina xolu ki joxe addi addi bi ci àdduna rek lay nekk fekkee daf ko def ci yàlla xolu ki joxe addi bi ci yàlla rek lay nekk fekkee daf koy bindee kaamil alxuraan kenn joxe addi ci alxuraan rek la xel nekk ba nga xam ne kon kii jox addi moom mën na xett li nit ki ki ko jox addi ci loolu boole euh, euh, tuyaaba bi nga xam ne moom la am ci bu saraxee woon lii daañu ko ful téeméer yoon bu ko joxee addi ba noppi ki mu koy ki muy jox addi bu fekkee ne ku addi dëgg la waxuma ne mu ngir doon diw dafa mën xam nga li ma wax waaye bu fekkee ne maanaam koo xam ne mooy sëñ bi sëñ bi ci boppam nga xam ne moo koy joxe àddiyam moom mën na <laughs> xam ni dégg nga ci àddiya bi nga ko jox mën na cee daal na di sotti jël bunti safara yëpp na di socc leen dindil tam ci su bàmmeel mën na la ci yooyu yëpp yàlla na ko ndax suñu borom euh, kooku sax day buntu boo xam ne buñ ci duggee dana waaye ni yàlla maye na suñu borom dafa maye de na lu Euh, waa ju baax mën naa gis ci la nga xamante ni suñu taalibe mu bind ko ci ci fekk na maanaam mu soppi ko maanaam far ko bind ko feneen mu ne ndax loolu mën naa ne loolu tam lu baax la wax nañ waaw mu ngi jigéen doy ko sofi loolu ci fekk léegi fekk seetal ko waaw na dem bi Cheikh Mouhamed Diop Dara mais sëñ bi wax ne ñi nga xam ne dañuy aju ci man ñëpp dañu aju woon ci man dem safara loolu kay leer na bu ñu aju ma woon ci man dem safara. li ma ngi sàcc. kon li ma war a. maanaam wuute bi nga xam ne moo amoon ci saxaaba yi. lu dama ne diggante ànd yi ak Muawiya mm-hmm. maanaam euh, mm-hmm. seen diggante. Mm-hmm. maanaam ñu bari ci jullit yi. dañ koy ñaawlu. maanaam di am koo xam ne moom lañ ciy faral wala koo xam ne moom lañ ciy. gën a mënta di toppatoo ka ca des. mu nekkee Sëriñ Tuubaa wax nañu ñëpp. l'islam moo leen taxoon a jox xëy na seytaane moo dox seen diggante waaye l'islam moo leen taxoon a jox ba lu ñuy wax ci ñoom lay doon lu rafet. Nak may la ndax wërta jël maanaam ci jamono ji ñu taw ak ñi fi nit dina ñak ñu waxtaan ba yu bari yu am mu ne loolu daal lañ sàkku ak ci daal leer war na ndax ñu war parce que dañ nga xam ne mu arrixoon ñooy exagéré di ci dëgg ci yonent yi ko waa Israël ñoo koy nekk la yooyu dafa dugg ci yu bari ndax am na ñu tuub ñoo ko wane woon ak tuub te tuub bi xam ngeen ne am na ñu daan sëf ay xadis naan yonent bee ko wax xam ne yón na de sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom xamaloon na ma leen ci xabir bi ma ñëw di leen ko wax mu fàttaloo ma ko loolu dafa wane rek waruñu koo xamal nit ñëpp waaye tekkiwul na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamu ko yonent xam ko yonent bi xam na ko xam na lu ko wees sax bari na jaam ñoo xam ne sax amuñu asaka asaka asaka yi daraja yonente bi salaa sama te xam bu leen ko xam ñëwee ñu yëg ko buñ deewoon sax bu ñëwee ñu yëg ko buñ buñ deewoon sax bu ñëwee ñu xam ne guddi gi mooy laylatul qadr laylatul qadr nag bi nga xamee ne suñu borom nee na wàcce na alquran ci guddi googu mu réel mbirum laylatul qadr ba ne wa maa adraaka maa laylatul qadr yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xam nga laylatul qadr ni mu toll laylatul qadr xayru min shahrin xayru min shahrin yow di sababu nuzul bi ulamaa yi am nañ ci ay wax am na ñoo xam ne nee ñu moo wax bi gën ci biir banu Israël ñenn ñu ne Shamsun la ñu ne Shamoon la tuddoon junni weer yoo xam ne lu ngi koy dund amee kàttanam bu dundal guddi yëpp ci julli ak tudd yàlla bu bëccëgee mu dem di xare ci yoonu yàlla ngir di tuubloo ñi réer mu amee junni weer jóge fi biñ ko nettalee saxaaba yi ñeel ñee ko ñee boo xam ne tax na ñu fàtte seen bopp fàtte liñ amoon wala boog bu ca déwén saa bu tawatee xanaa nga ji waaye ki ko xas ba dundal te dundaloo ko moom dundaloo ko yow raw na la raween boo xam ne doo ko jotati lu dul lu fekkee te at yoo xam ne yow dundal nga ko te moom dundalu ko ah su xamoon nag ëllëg na mu mel doo xeeb dara lépp luñ melam mën na maye lu mat benn garaam ci tuyaaba dana la jaral sa bakkan bi dana la jaral nelaw dana la jaral noflaay dana la jaral waxtaan ndax bu keroogee jaam bu gënoon a farlu da nga xeeb sa jëf bu keroogee jaam bu gënoon a farlu fii ci àdduna dana xeeb jëfam nee ñu ki dem àjjana day ki texe sax ci bàmmeelam te demagul àjjana buñ ko ne woon ñëwal delloo adduna dana ko bañ ni ci juddu ñu ne ko ñëwal nekkaat lees dellu ci sa biiru yaay ndax xéwal nga gis kooku nag li koy jaral loolu lépp wocc ko fa dellu siwaat adduna ngir jëf rek a tax ngir dabaatal jëf yoo xam ne bi bu delloo mu jëriñ ko jëriñ yoo xam ne loolu lant lay doon muy sa alal joo yëkkati mu xam na nga ko sarax miskin wala nga jox ko waaye yàlla wala nga def ko ci jàkka wala nga xetlee ko aji lot wala ko jaaxle ku mu doon ndax diine yuminuna bil xaybi gannaaw gëm kumpa wa yuqimuna salaat ak taxawal julli matal ko umma rafaqra mun faqo naa ci tegu li nga xam ne yàlla wër ko gën la nga ko nga yëkkati ci xol bu sàll ngir jëm yàlla def ko ci yoonu yàlla ak nañ ko ca defee rek yooyu yëpp lu ci nekk tuyaaba mënees koo xiyaas ndax ngëm moom dafay àgg foo xam ne ci ngëm mu ànd ak xam nit ki buy nelaw sax ñu di ko bindal tuyaaba buy nelaw sax ay cëram di tudd yàlla cëram yëpp du lamiñam rek waaye cëram yëpp ba ci deratam ay yaxamam léppam day tudd yàlla kooku iman gi sax moo koy maye ndax iman mooy indi xol bu leer te xol bu leer mooy indi al ilmu ladiniya daal ilmu ladiniya mooy xam-xam bi nga xam ne lañu bind ca lawxu mahfuz sa xol dafa leer leer goo xam ne dafa mel ne seetu jàkkaarloo moom nga xam ne boo xoolee seetu bi di ca gis lale nga xam ne dafa jàkkaarloo moom kon iman moom moo jiit lépp mooy sàkku lépp al iman nag bi la xay bu ñetti daraja la ñu wax la rek nga gëm nangu amatul sikki sàkka mooy imanul ajaay si nit nit nga xam ne dégg ñu ne rek lislaam mooy diine dëgg ji yonent bu di muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa yoon yónni moo indi alquran ku def lii bàyyi lii bu keroogee nga dem àjjana mu dégg loolu rek gëm ko dogu ci amatul lenn lu mu ci xalaat ndax nii la muy war a nekke walla lu muy demee dafa gëm rek ne loolu moom gëm naa ko rek ba mu wóor ko ne wóoru na ko wóoru goo xam ne ni mu xamee ne mu ngi dund fii mu toog mu ngi fi asamaan ko tiim noonu la ko gëmee foofu mooy daraja ji nga xam ne mooy daraja imaanul ajaayib bi daraja jooju bu dëgëree dana àgg ci fanqal borom safara ak mépp mbugal mépp xeetu mbugal jëmm ji nga xam ne gëme na ko noonu am nag ay tegtal yu leer ci kaw xolam bu leer ba nga xam ne mooy yakaadu zaytuha yuddi walaw lam tamsashu naaru li nga xamee ne xol boobu noonu la nangoo xëcce leerug yàlla bu mel ne essence boobu nga sotti ci aset nga koset almit jëme ca balay àgg ca ndoxum essence ba mu tàkk ndax vapeur yi jóg mooy alawti ko safara woowu naka noonu la xol bi nga xam ne du set ba àgg ci dayug set noonu lay alawti ko leer yàlla yi noonu la borom di xame yàlla ngëm googu mooy ngëm gi nga xam ne mooy gaawal jiggi siraat bu borom du ko ne nga xam ne julli ñaar rakka moo koy gën a jafe jéggi siraat julli ñaar rakka itam moo koy gën a tiis taxawaayu bis penc ba nga xam ne juróom fukki junni at ci taxawaay gëm li nga xam ne nag moo mel ne jant bi te gëm yooyu yëpp ay martaba la yoo xam ne nit ki ci jëfam la koy jéggee mën na dem baag ca dayo gëm ba gën a kawe mooy jant ngëm googu muy jëm mooy dayot ngëm nga xam nit ki àgg na ci yaqin dëgg mooy xaqul yaqin xaqul yaqin nag mooy ngëm gi nga xam ne da nga mel ne yaa ngi jàlloog li nga gëm moo taxoon Seydina Ali radiallahu taala anhu karam laaw ci ne bu ñëwoon ëllëg la saa di taxaw it du tax ma sama ngëm dolli ko dara du tax it sama jëf dolli ko dara xam ne kon kooku àgg na ca dayob gëm ak dayob farlu mooy ngëm gi nga xam ne daal mënatu la dolliku dara mënatu caa dolliku boo jàlle woon ak suñu borom tabaraka wa taala it du dolliku mukk kooku mooy day ngëm martabe ngëm yooyu yëpp nag jëf ak sellal ak bëgg lu baax rek moo cay àggale nit ki bu guddee fan yàlla dimbali ko gannaaw amul ngeen naa ay laaj te waxtaan yi man fàtte woon naa ko sax ci takk saan suuf rek xale yi ñëw waxati ma ko xam ko li ma dogee it ma xaw a tawat ba xam ne defoon naa ne sax du ma mën a ñëw waaye bu fekkee am ñaan yenn laaj ñu tontu ci te dellu léegi fekk nag lu mu tuut tuut baax na ndax nit ki lépp lu koy fàttali ëllëgam lu mu tuut tuut rek am na njëriñ mu tuut tuut am na njëriñ ndax day dàq li ñuy wax noor noor mooy al inhimaak noor mooy fàtte ëllëg fàtte traayu bàmmeel fàtte dekki di wéy ci sa dund rek ni bàyyi na yi dunde di toppatoo say soxla ak say mbiri bopp yi fi àdduna rek fàtte lépp moo xol nag ñu ko faral di waxee rek muy mel ne mbubb mooy sol di ko jaaree fu nekk léeg-léeg mu tilim bu tilimee dañ koy war a fóot mu setaat fóot bi mooy dellu ci yàlla ziare ay bàmmeel toog ci jàkka jàng alquran tudd yàlla ndax yooyu yëpp ay gànnaar yoo xam ne ñooy dàq seytaane ñoom la julit bi di xeexe seytaane ndax seytaane foo toogee féex defuloo dara rek mu ñëw ni muy ñëwee dana woo wala woo ay nit ñëw toog di waxtaan ak waxtaanu àdduna wala mu xéer la yow ci nga dox ba fekk ay nit nga toog di waxtaan ñoom waxtaanu àdduna ba jamono bu bari wéy te li ngeen di waxtaane lépp àdduna la amu ci dara lu lay fàttali yàlla nga jóge fa dem ci beneen béréb itam lu mel noonu ne fa boo si jógee nag dem ci say soxla di leen di ko toppatoo bu ko defee noor ak ngoog noor mooy doo dellu si mukk amoon nag benn jaamu jaamu yàlla bu doy waar boo xam ne muy bëgg a faatu nga xam ne senn saa su gën a gàtt moo ko defee ñu ne ko ban jaamu yàlla nga gën a xemmem ñu may la ko nga def ko ndax mu gën laa jëriñ ëllëg mu ne ñu waar ma menn matal rek ma dégg ko donte bu ma ko mën a jëfee mu ma gën a ndax tuyaaba di nga xam ne moom la ndax bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna al malaikata la tadaw ajnihataha li taalibil ilmi dan bi ma yasnau kuy sàkku xam-xam moo xam da ngaa jëm ci béréb boo xam ne da fa laaj lu la lentoon ñu wax la ko wala da nga fa dégg lu ñuy waare wala lu ñuy wax lu jëm ci ëllëg malaayika yi daañu bég ci yow ba ni nga xamee ne bu nit sañsee nga naan ko nga lal sa sa kii sa mbubb wala sa morso naan ko dama lay lalal noonu la la malaayika yi defal seeni laaf lañ lay lalal yow mi nga xam ne yaa ngi dox jëm ci béréb boo xam ne dangay ngay sàkku xam-xam moo xam da ngaa jëm ci béréb ba wala da ngaa toog fi nga toog di ko sàkkoo ak noo ko mën a sàkkoo moo xam nu masala ma mën a demee kon lu am a am solo la gannaaw nit ki nga xam ne day wut lu mu xam ne itam jën ya ca géej ga sax dañu koy ñaanal di ko balul yàlla kon ba tey bëgg a dolli ko ci xam-xam am na njëriñ yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan wax ne bu amee benn bis bu mën a ma fekkee te du ma ca dolli ko xam-xam bis boobu yàlla bu ma ko fekkee noonu nag nga xam ne kon alquran dafa ne innama yaxsha allah min ibadihi al ulamaau suñ boroom moo nee na ñi koy ragal ñi koy ragal dëgg ci jaamam yi mooy boroom xam-xam yi maanaam mooy ñi ko xam xam yàlla nag mën na ñàkk jóge ci lu dul xol bu leer rek mën na koo maye xol bu leer boo xam ne bii dafa set nit ki bëgg yàlla mën na koo may mu xam yàlla wala fii dañ kon nit ki xale bi kër gi la ci kër gi lay dund ak ci jàng bi ak ci mbedd bi kër gi wax nañ ko ba tàyyi bu fekkente ne yaay ji baay ji mag yi jubuñu xale bi du mën a jub lu tax bay ci selewu tànk nga koy tàmbalee fekkee ne baay ji ci boppam yar na yaay ji xale yi ñu njëkk a juddu ñu yar leen donte ñu ci bii nga wax day ku juddu yoon woowu ngay topp ci li gën a bari ci jamono yi lu ko mën a def rek jamono ji di yar bi di gën a yomb di gën a yomb di gën a yomb fekkente ne kër gi ñu yàqoo fi nekk xale bi tàmbalee yàqu bu demee ca lekkoon ba ñu jamono ji yàqoo jàngalekat yi itam leçon bi rek lañu lay wax duñ la yee ci leneen tey ki lay jàngal boo ko seetee bu génnee nañu yeerewul leneen kon lim lay wax boo waxoon lu baax it da nga naan ci kat jàngale bi rek tax mu wax ma ni waaye du mu ñuy jëfe ndax moom jëfewu ko nga jógee ci dikk ci mbedd mi xale yi yàqu rek nga fi fekk da yàqu ba faaw. bu fekkente ne nag fànn fu ci nekk boo fa tolloo ñu ñu yaroon ne yow rek ñoom ngay dajeel ñu warmaal mag ñi képp ku la mag nga warmaal ko ragal ko nangul ko may ko yar ak teggin booy def lu dul noonu ba séen ko dal di cay génn donte mën loo ko bàyyi nga nëbb nëbb loolale ba mu ra ba mu weesu waaye buñu demee ba nga xam ne xale bi li muy def lu mu jekk di jekk ni bu séenee magit daf koy wan ne man kenn sëfuma sama yoon loolu la xale bu yàqu di bàkkoo bu fekkee nag xale yi yàqu dañoo bàyyi ñoom ñëpp ñu daje ki nga xam ne mooy jéem a respecté yooyu moromam yi dañ ko ci ñaawal bu ko defee bu woyofee bopp dal di génn ca loola mu nekkoon fekk si leen defe ne lii mooy lu baax fekk mbon moom bu dajale woon matale adduna bépp ba ñëpp bon du tax bon la mu daan wàññi nit ak lu bon la mu ko lu métti la mu ko daan indil bi tax dara wàññi ko ca moom day tax la mu waroon am ci baax gi dañ koy ful dañ koy yokk ndax dafa baaxe ci diggante bu jafee baaxe loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon saaba yi li ngeen di jëf ba mucc buñ ko xaajoon fukki xaaj danañ dem ba jamono boo xam ne ku des benn xaaj boobu rek da nga mucc ndax jëf ci lu baax jub ci day gën a jafe bu nekk yar li ci li njëkk a dem ci xel yi ñu bari mooy dóor dóor bokk na ci xeeti yarin waaye dóor dafa am fuy tax nga àgg ci wa tubaab yi nga xam ne xamuñu lislaam te ñoom seeni baax ak seeni aada yi ñuy wéyee lu wutee moom rek ñu bëgg a xas loolu la dañu bëgg ñaawal ku dóor jigéen wala xalel ñi ndax ñàkk xam lislaam lislaam dafa yaatu xam nit ñëpp mu mel naka hôpital boo xam ne garab bu tawat di nekk ni fi ñoom nag tawat yi ñu xamoon rek lañu jàpp ne moo am kon garab yooyu ku indi beneen garab dañ lay contre fekk na nag xamuñu ne am na yeneen garab loolu mooy lan nit ñi dañoo wuti ay jikko li ma waxe woon tànk am na yenn ci doomu aadama yoo xam ne fokk mun loolu dañ bañ a dóor muy xaleel bu xam ne xaleel wala ci dañ naan xaleel xamul yàlla waaye xam na yar xale bu tuuti boo xam ne li koy wax di ubbi boppam du dégg du ko dégg waaye nag lii muy def boo yëkkatee yar nekk boo ko defee rek ma dóor la du ko def kooku mu ngi tollu ci ak yaram duma duma yi itam xeetu duma moo am ndax yaay kat bu fab yar di dóor ci kaw ñu di ko dégg mu yuuxu coow li bari ku nekk yëpp ne diw ma ngay dóor doomam wala ma ngay dóor taalibe ku mën a yar du def loolu ki mën a yar du bari coow ndax loolu day yàq boppu xalel boo ko faralee def xalel di ko dóor muy yokk ci kaw day mujj dóor yi dootu ko xas boo ko dee saaga di ko xas di wax ci kaw di ko weer day mujj yooyu dootu ko xas xalel da koy woo ba mu toog yow déglu lii mën a bu baax bu fekkee ne weesu ñu koy dóore mooy xale bi xamul dara yonente bi sallallahu taala wa sallam bi mu bokkee Seydina Abdullah ibnu Abbas ak ñeneen mu nekk xale bu ndaw ma tuddul dal jàng fu mu gis lu mu bëgg rek ci ndab li dal di fab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nekkal ci sa kanam te mooy tàmbali nga ne bismillah te bul boole ñaar di fab benn mu daal di tàmbali loolu ba ba ba nekk mag di ko nettali naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis ba mu ne maa booy nekk ne bismillah te di sa kanam da ngay yéexam talu ba tey bàyyi ko mu duggee sama xol dafa teew mel ne waxtu ne daf mel ne mi ma koy soogaa wax xam ne kon yar ak fu ci fu xale bi toll rek ak na yar ba war a doxe xale bi nga xam ne léegi boo ko waxee mu xam dangay mu teew nga xool ko jàpp sa ñaari bët na ko déglu lii ma lay wax ko defee dana dugg bu baax ci moom lii ma lay wax dig ko bu baax dama lay xamal ni lan nangam ji bu ko defati mukk mukk mukk boo ko defee kat da am lu la naqari maa ngi lay seet nag foo toll dana yëg ne fu mu toll lu muy bëgg a def dana mel ne dafa yëg ne yaa ngi teew da mel ne dafa yëg ne yaa ngi teew bu nekkee foo xam nekkul ma sax dana jàpp ne yaa ngi ci béréb di ko yër ba li nga ko doon tere bu ko defee rek nga agsi duma ko ba nga xam ne weesu na foofu nga di ko xamal nag li nga koy tere lu muy wàññee ak li nga koy digal li muy jëriñ di ko xamal nag léegi gannaaw boo ko waxee dana xam ñi ma lay tere nga ànd ak ñoom li ko waral lii la boo àndee ñoom da ngay mel ni gis nga diw gis nga naankat bi xale yi doon sànni xeer démb di ko xëpp suuf gis nga ko xam nga lu ko waral lu ko yóbbee ba muy xale kenn yaru ko kenn néewu ko jaaral fii kenn néewu ko bàyyi lii gis nga diw mii nekk ca kaso ba xam ne dafa sàcc wala dafa rey nit wala def dafa def nangam bu muy xale kenn du ko wax dara kenn du ko xamal lu baax kenn du ko xamal lu bon moo waral gis nga mu ngi nii torax ca kaso ba lay mu ngi nii dañ koy jiital muy dem koré alkaati yi jiital ko nga diw nangam di ko wan li nga koy tere lépp résultat yi nga koy indil bi nga xam ne weesu na ku xamul dara ba nga xam ne yar rek la xam di ko ubbi ci loolu di ko wan yàqu-yàqu yi nga xam ne moo tax jamono ji mel nii mu mel lépp jamono ji ni mu mel sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko lépp waxoon na ko amul dara loo xam ne lii ñëw na te waxu ko woon sopp soppi koy Mm-hmm.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 ñu leen nuyu leen sant di bëgg ci yéen di leen ndokkeel ci taxawaay bi te bi nga xam ne suñu borom rek ko waral lu def lépp lu mu jëf la mu jëf ngir yàlla moo ci gën mooy li ci gën a am solo bépp jaam boo xam ne yëg gi nga yëg sa teddu borom ak kattanam ak mën-mënam ak yërmandeem ak xéewalam ci yow ak ci li la wër li la tiim loolu tax seq benn jéego jëm ko foo jëm foo xam ne yaakaar nga ne da nga fa dolli koo dolli ko góor bu rëccu la ak àllaaxira sallallahu alayhi wa sallam dafa ne mboolem daje jullit ñi daje te fàttali wuñ fa yàlla julli fuñ ci yonent ca daje ba ak perte lay doon ba nga xamee ne jaam bi mu ngi waaj jóge ci kër gi di dañ lépp lu fi nekk di dañ jaam bi waaj fas yéene jóge ñu di ko wan fépp fu mu jaaroon ak lépp lu mu defoon ak lépp lu mu fasoon ci xolam bërëb yooyu bokk ci li gën a woyof si nun defe ne amul solo mooy bërëb bu ñu ko daje ko bu jóge fa ku nekk dem fàggoo ñu ko yàlla dolli ko wun fa ci lenn bërëb yooyu dana bokk ci gar suñ gën a metti xam ne doomu aadama bi ko jooy dana ko naqarlu dana ko rëy xam ne dañuy jóge xam ne lépp bu sonne woon ba am ko fi dana ñaq bu jiitu bis booba jur bu yàgg nit ki dana ko tëdd ci bàmmeelam waaye boobu mu tëdd ci bàmmeelam mën na neex mën na naqari mu ngi neex ci ku matul woon a fàtte fàttali ko ci def sa xel mu ngi naqari ci ku ko fàtte rek dafay lu mu jublu mu am di wéy ba waxtu ko àppale namul muy kër goo xam ne day ràpp dara dootu fi nekk feet dig ba ñëw loolu tax mu sant jaam yi nañu liggéey àdduna bi ngir namm ci àllaaxira liggéey bi ñuy liggéey adduna yéene ji rek ci am solo boo dee tabaxal sa bopp kër nga yéene dëkk ci di ci jaamu yàlla bu fi jógee keneen ku ci dëkk keneen ku dox ba agsi fi lu fi nekk ci xéewal ku ci xéewlu ci ndox mu muy naan ba ci ker mu taxaw wala lal bu muy toog nga yéene mu di jaamu yàlla mu doon ak jaamu yàlla saxaaba yi noonu lañ defoon dañoo liggéey woon àdduna ngir am àllaaxira ba tax ñu xeexoon ñu tàmbalee màkka ba ci sunu géej gi ñu tuddee océan atlantique xeex ngir dugali ñi ci lislaam xam ne xamuñu ko te ñàkk foo xam gi daf leen di lor xam itam ne ñuy dox diggante nit ñi ak diine bañ ñu tuub yéefari màkka yi ñu ngi jàpp ci loxo yi nit ñu di leen xëcc ci jëme safara ñu bañ loolu am suñ borom sant leen ñu xare ñu dale foofu moom Espagne moom lu bari ci Italie moom lu bari ci France walbatiku dikk bu moom Afrique du Nord walbatiku jublu penku ba ci réew yi nga xam ne yëpp lislaam àgg na fa bari ci ñoo xam ne amoon nañu ay millions yu millions def ko ci yàlla rek toog rek di xaar yàlla doyloo yàlla def ko muy seen alal di seen wërsëg di seen am am di seen lépp lu ñu noonu lañu war a nekk ci àdduna bu ko defee bu ñu ci lenn waxtu mu ñu deewee bañ koo fàtte nag ci la tàmbalee bañ a fàtte gi tam li koy waral mooy fàttaliku gu bari fàttaliku gu bari gi lu mel ni bërëb yi ñu toog te lu ñu fi tax a toog du dara lu dul ngir yàlla ak yonent bi ak fu nu yaakaaree lu baax buñ fi jógee dégg fi loo xam ne lu toll ne bën bënu pusa ci fàttaliku yàlla ci yëg kàttanam ci fàttaliku ëllëg jóge na ci jataay bi dugg ci suñu xol daanu ko gërëm waxtu wu ñuy génn àdduna daanu ko gërëm waxtu bu nekkee suñu bàmmeel daanu ko gërëm waxtu wu ñu dekkee jëm ca bis penc ba ñun nag jaam lu gàtt lay nekk ci àdduna lu gàtt a gàtt waxuma aljana ku fa dem wala safaan ba xamne do fa jóge bu mukk waye bar sax rek da moy diggante fi nit ki fiñ ko défé ci bammel ba fa ñuy dékké kenn xamul ñaata jinné at la suñu borom rek boko xam tabaraka wa taala ndax leen la taati ko illa baqtasam sa bu taxaw day bett nit ñi rek amul benn mangar bu nu xamal ne ëllëg la saa di taxaw wala tey ci ngoon la saa di taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee dana fekk nit ñi wàcce piis diko ko duñu agalé gis ko tabax mbalkan bay raax du agalé ñu ëf bufte bi ci digënté bi xam ngeen ne wax nañ ko ba tàyyi ci ay waxtaan li tax deewu bett ñu bari rabal ragal ko ñu dul xam fu mu fekk sa xol tollu fa te yaxsha yamutul maru ala ma asha alayhi wa yaxshura ala ma asha alayhi ala ma mata alayhi nit melo wu mu dee buy dekki ci melo woowa lay dekkee réew mi nekk nag di Sénégal suñu borom def fi lu mu deful fu bari ci réew yi jullit ñi boo fi jógee réewum jullit moo dem am ci réew yi naar yi ci réew yi dañ làkkat li ngay gis ci jàkk ci Sénégal doo ko di suti benn ak lii daje ci mbooloo ci jàkka ju nekk ci senegaal doo ko gis ci beneen réew ngëm gi ñu gëm ba képp ku ñu yaakaar ne am nga yàlla ñu xër ci yow attan laa jox seen lépp ngir jëmmi yàlla boo génnee Sénégal bala nga koo gisati daanaka doo ko gis te nag ah ñi fi nekk ñu du leen tuddee ay sëriñ maanaam ñi fi nekkoon ci jamono yi weesu tënk nit ñi ci lislaam ba leneen lu fi ñëwit woote leneen lu mu doon lu dul lislaam duñu la wuyu murid yi boo leen wooyee ci lu dul si ahmadou bamba duñu la faale tijaan yi boo leen wooyee jëme ci alaaji malik abdoulahi ñasak ñu ci topp duñ la wuyu xaadir yi boo leen wooyee jëme ci lu dul si abdou qadir jilaani cheikh sadibu ak ña ci des duñu la wuyu loolu nag nit yàlla yi la ko suñu borom def ci ñoom ndax dañ ne wa inda zikri salihina tanzilu rahmatu gannaaw buñ leen dee waxtaan rek yërmande yàlla day wàcc suñu borom moo def loolu ci ñoom boo seetee kattanu barke gi ñu donne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gi ne ci ñoom moo tax nit ñi gëm leen te tey ñu ko bépp xol bu war a texe xol boo xam ne borom war na texe dana la gëmloo waaye yàlla boo ko weddee bu fekkee ne sëriñ bi mat na sëriñ nga ziar ko waxtaan ak moom boo seetloo sa bopp boo fa jógee da xam ne am na lu soppiku ci yow dañu ne sëriñ bu mat sëriñ boo ko ziaraa ba jóge fa ñeent fukki guddi daañu la ko baal ñu yëkkati xalim ak bàkkaar duñu la ko bindal lu koy waral tooyal gi mu tooyal sa ci yàlla mu des ci yow sëriñ bu mat sëriñ boo ko ziyaara ba jóge fa ñeen fukki guddi daañu la ko baal ñu yëkkati xalim ak bàkkaar duñu la ko bindal lu koy waral tooyal gi mu tooyal sa ci yàlla mu des ci yow nga di ko fàttali ko balay wowati nga gisaat ko wala nga gis ku mel ni moom loolu bokkul ak baatin bi ndax sëriñ ñetti xeet la cheikhu taalim شيخ التربية أب شيخ الترقية آه، شيخ عبد بامبا رضي الله تعالى عنه وانا كنت حكم حكمة الشيخ لذا خمنا لك مويسين بق تي لالا لين أسلف في مام شيخ أحمد الكبير بق جن كلال بق جن كلال وايه mën naa tàmbalee ne leen ci du ku ñuy waxtaane ci mbooloo suñu borom dafa bind awliyaa yi ñu mel na toolu jardin boo xam ne fleur yu bare ca nekk bu nekk ak couleur am yii day vert te àgg ci dayob rafet yi xonq te àgg ci dayob rafet yi bleu te àgg ci dayob rafet yi weex te àgg ci dayob rafet booy si njëkk a gis rafetaayam léem sa xol couleur ba mu amee nga jàpp ne ni couleur bu melatul noonu rek rafetul fekk na du noonu muy wax léegi mu di alhaji mbay ak Cheikh Lo laalal nañ leen tuuti ci moom loolu yaakaar naa ne war na leen doy <laughs> bu leen doy sax dara doy leen ci waaye benn nit boo ko mënul a seede am na yoo xam ne boo koy wax ci moom da ngay gêné te mënuma koo seede waaye yaakaar naa ne ñi waxtaan ak mag ñi ko daan gis ñëpp jëli nañ ci moom lu doy a dégg ndax sëriñ liñ koy doyee sëriñ liñ koy doyee moo di ruuguy wat traayu bàmmeel bis penc ba mu ne yu bari borom bàyyi na ñu fàttee fàggul seen ñoon sukuraat su metti man borom fàttali na ma ba ma ko taali bu bu ci man buñ lay yor ci bàmmeel maa lay awu li ñu mën a wax nag bariwul li ñu mën a wax bariwul naa ni ma demee ak sama borom mu mel ne mu bët demee ak baakaande ba bët ak la cay génne loolu da xam ngeen ne daanaka kenn mënul ne benn la waaye sorewuñu wa du ma àgg nag sori am na ñu fi ñëw ñoo xam ne ci lislaam dañoo am ay lënt yu ñu yaakaar ku leen ko leeralal buñ ko laajee bu ma ko yàlla xamalee waaye ñoom it ma laal ci ak lëf parce que it li ngeen di laajit waxtu ngeen laajee laaj ci li ngeen bëgg bu dee loo xam ne ah, am naa jàpp ndik mën ca tontu danaa ca tontu waaye xam ngeen ne suñu borom day nëbb na lu bari nëbb na lu bari feeñal tuuti lim feeñal ci tuuti lépp tëbbati nit ñi fees na seen xol waaye tuuti la ci yàlla ndax tuuti yàlla moo xaj ci jaamam waaye tuuti waaye yàlla moo xaj ci ci taalibeem yi kon nag ñu laaj bu fekkee ne am na ấy chắc vô hầm rồi bạn có thể lại kia đấy chứ được không السلام عليكم سيدي ñoom siyaare tey am laa ko waxee ni sa bagage mooy dafa am benn bi ñu siyaare sama bàyyi sukuraat bu fexewul la ca rek gën am na ñoo xam ne jógee ku am na ñoo xam ne seenu texe boo gisee sax ñuy wax mbir mu ramm daañu ci dikk lan mooy ramm ak ku mel nan ay ramm ak na ramm di demee texe ci boppam mooy lan texe na muy toll ndax nit ñi seeni wërsëg ci texe na mu ëppantee ndax texe am na ñoo xam ne daañu leen limaale ci way texe ñi te bala ñuy texe daañu wees sukuraat su metti trayu bàmmeel bu tiis te yàgg dekki suturlu woo dekki suturlu woo mooy nit ñi ni ñuy dekkee mu ngi mel ni boroom am am yeeg way ñàkk ñi ñu waaj jëm ci benn béréb bu ñëpp di daje ñi sol mbubb ak tubéy ak dàll ak maxanaak lépp lu ñu woon ñi am mbubb rek ak tubéy amuñu dàll ñi amuñu mbaxana ñi amuñu tubéy mbubb rek lañ am ñi amuñu menn mbubb tubéy rek lañ am ak sous-vêtement ñi tubéy rek ñii dañoo ngemb ñi xaawu fàllay dong seen ndigg moo leen di wër ñii dara du leen wër ba bëy yeeg xar yeeg nag yi topp ñoom di leen ree noonu nga xam ne noonu la nit ñi ëpplante ni ñu rawante ci bi ñuy dekki noonu la ñu gën a mettilante ci sukuraat noonu lañ gën a seddalante ci sukuraat naka noonu ci traayu bàmmeel nu ko waxee ci dekk gi naka noonu taxawaayu bis ci ba sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne dañuy xuus ci seen ñaq bu keroogee ba ba mun ak ci seen tuñ ñi seen ñak tollu seen digg loolu lépp di kéemaane yàlla yoo xam ne bu keroogee la koy feeñal ndax suñu borom tabaraka wa taala meram ci li ñu mën a tudde mer ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxe bis booba lay doon ndax bis booba dana mer ba yonente yi ko gënoon na jege yépp yi gënoon a xej ci moom yépp kenn ci moom ci ñoom du ñemee dem di ko wax nga ram mu jaam yi ndax taxawaay bi metti na tàngaay bi metti na ak jaaxle gi tañcal tañcaloo bi metti na kenn du ko ñemee moom boobu mooy gis mer um suñu borom merum suñu borom moom mu nag tabaraka wa taala ci ci texewul mi ngi koy tàmbalee ci bu tàmbalee di génn ba baaraami tànk yi njëkk a commencé sedd mu yéeg yéeg jëm si ci putu nit ki ba muy génn diggante boobu wax nañ ko ci waxtaan yu bare bare bare bare te suñu borom tabaraka ko taala dong moo xam li nga xam ne mooy dox liy xew ci diggante boobu ma ni ndax mën na gaawee ci nit ñi ne benn minute yàgg ci boroom ne junni ak mën na yàgg ci boroom ne weer gaawee ci nit ñi ne ku ñu fetal nga daanu bi ngay daanu rek nga sedd ndax kumpa la ndax suñu borom tabaraka taala day dindi jamono moo bindoon jamono li ñuy wax distance maanaam espace ak temps daf koo bindaale ci àdduna bi ملائكة لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائلنا وبل بنتي سوف جامونو أبيرك جامونو دنج كوي لالي بدوتو أم نين كو لالي وان تبي يونن تبي صلى الله عليه وسلم دي ريان جوغي مكة جار البيت المقدس yéeg ci asamaani ba dem xasratul quds ci genn guddi wala maa wuyan ni am nañ kumpa ba ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante Makka ak eh, Quds jëmmam la waaye diggante Quds ak fii ba nga xamee ne ci la dajee suñu borom tabaraka wa taala ruuxam rek a demoon wala gént la te yooyu yëpp dañoo sàggane fàtte ne maanam li ñuy wax ko de distance ñu ko ci ci wolof maanaam muy jamono ak béréb yëpp dañ ko dindi dañ koo taxañ mu mel ne noonu la jege waaye teewul nag kenn ku ci nekk muy moom muy alburaax muy jibril fa nga war a yem mënutoo ko weesu ndax sa kàttan àggu fa boo ko weesoo lakk da ngay seey ci leer yi noonu la suñu borom tabaraka wa taala di lallee jamono yi ak ak yàggaay ci ruux guy génn digganteem ak boroom noonu la koy guddale itam bu fekkente ne aji texee di la ruu gi fi muy tàmbalee génn ci baaraami tànk yi ba ba muy agsi ci putu nit ki mën na am ci yëgub nit ki junni ak mën na ci gudd yëgub nit ki gaawe ne xef yi nu bët bu fekkent ne jaam bi du jóge na ci loolu ñu tudde sukuraat li tax sukuraat gën metti ruu ak yaram seen rapport day soppiku waxtaane nañ ko ba tey ci biir dundum nit ki juróomi yoon xam ngeen ne nit ki bi mu nekkee li la ko arab di wax dañuy wax fœtus maanaam euh, mu ngi ci biiru ndeyam te formé gul bu baax yëgul ci adduna bi dara ndax ruu gi rapport bi mu am ak yaram nga xatewul noonu ba mu mën a yëg li ko war du ci xam dara du ci yëg dara du dégg dara du gis dara xam yëgul xiif yëgul mar xamul dara waxtu woo xamee ne juddi rapport boobu changé mu yëg li ko wër lépp di dégg di gis boo ko dompee mu yëg ko bu xiifee wala mu mar xam ko buy nelaw rapport bi dellu changé muy leneen du yëgati li ko wër waaye mu ngi dund mu ngi noyyi bu demee ba ci sukuraat nag beneen rapport mooy am diggante roo ak yaram roo ci boppam gannaaw yaram kenn du ko mbugal mukk tuludul ci moom moom roo ci biir yaram rek lañ koy mbugale moo xam yaram bi mu doon dundee ci adduna la wala weneen yaram bu mu mën a doon bala ñu koy mbugale rek dugal ko ci yaram yomal xiyam bu fekkente ne itam bi nit ñuy dekki bi ñu daataan dekki seen yaram def na suuf ba raaf ba da nga xam ne kenn mënatula xam fu ñu ne woon bu roo ñëwee euh, philosophie li leen jaaxal ba ñu dem ba weddi xasrul yi maanaam dundaat loolu dafay gudd wax kii mën naa am waxtaan naa ko ci béréb yu bari waaye bi nga xamee ne rapport ruu ak yaram mu ngi soppiku nag soppiku goo xam ne demeewul na nam daan soppiku benn yoon bu gaaw ànd ak nit ki du ko yëg léegi bu fekkente ne rapport baa ngi ñëw diggante ruu bi nga xam ne day tàggoog yaram wi te dootu dellu si ba yemal xiyaam ak yaram bi nga xam ne day tëddi ca bàmmeel ba xam ne nit ki li mu gënoon a bëgg lépp mi ngi ko fi bàyyi mu mel ne nit koo xam ne béréb bu mu miin mësul xam benn béréb ci àdduna lu dul bii ñu bëgg ko fee jëlee di ko yóbbu fu mu xamul foo xam ne ay naqar rek fa nekk ak tiis te mu umpalee foofa naqar benn ngoog ñaareelu naqar yi mu di ñi mu xamoon ak ñi mu yërëmoon ak ñi mu daan dimbali ñi ko daan dimbali lépp mu di leen fi bàyyi ruugi bëgg a tàggu ñooñu ñëpp moom ci boppam talatul dara xamul loolu waaye ruu gi moom gannaaw foo jaamu woon yàlla ruu gi dana ko seede te mu ngi yëpp bi ngay jaamu mi ngi koy xam te day marqué ci moom muy génn itam àdduna béréb yi nga xam ne miinoon na ko yëpp day dem di leen tàggu te tàggu googu mu leen di tàggu day doon ci aji dee ji métit woo xam ne kenn xamul nu mu toll karaw bu doon ci yaram ak pepp wu ci yaram ak pepp deret ak pepp yàpp bu doon ci yaramam day yëpp métit xam ne woow a dong bu newoon ci nit ki danay yëg loo xam ne mosu koo yëg dañ ko bindee ba boobu ruugi nag buy dañ fu muy weesu foofu danay yëg métit wu ëpp fi mu jëm ba ba muy agsi waxtu woo xamee ne agsi ne fi ñu koy roccee nag mu génn ndax dégg ngeen ñuy nettali ba tàyyi malaayika bi nga xam ne bu ñuy rocc ruu gi ci ku texe wala ku texee di melaw wu ñuy dikkaale ak nañ koy bise wax nañ ci introduction masalikul jinaan bi métitu dee noonu sidna omar bi nga koy laaj ci abdul ahbar ak hadis yi nga xam ne rot na ci yépp waa ji nga xam ne texe na yooyu yépp day doon lu neex ci moom mel ne ki nga xam ne dafa gëmmen dëgg dëgg gëj a nelaw ñu ne nañ ko bàyyi mu nelaw foofu mu nekkee diggante nelaw ak ak yeewu gi noonu muy neex ci moom bëgg a nelaw noonu mu bëggee nelaw bëgg ko ko bàyyi mu nelaw noonu lay bëggee roo gi génn àdduna ji nga xam ne mooy àdduna yi tiis ji ndax ruu gi day jàndoog li ci kanamam lépp bu fekkee ne aji texe la day jàndoog la ca kanamam lépp ci texe te dañ koy nëbb lépp luy met bàmmeel bi bu ko ruu gi xool day mel ne ko kër yi gën a rafet ci àdduna mu yàkkam cee dem nit ki noonu bu fekkee ne aji texe la noonu lay yëgee loolu mbëg moomu muy àndal ci texe ga gën a mat noonu lay demee mu li tax ruu gi fi nga xam ne ne nit ki julli woon na fi béréb yi mu julli woon yëpp bu fekkee ne ko jox julli xaqam la béréb yooyu lay fàttaliku te bànneex bi nga xam ne mooy jóge ci rukkoo yi mu daan rukkoo ak sujjóot yi mu daan sujjóot mooy yokk xéewal gi fi nga xam ne nag texewul yooyu yëpp ay musiba lay balbatiku doon ci moom ki nga xam nag mooy sabab texe gi texe ci mbindeef boo xam ne dafa dund ci àdduna ba di ci génne ak texeem ni ma waxee ne mu ngi tàmbalee ci bu ñu tàmbalee rocci roo suñu borom sàkk na jëmm yoo xam ne ndax suñu borom bu mu bindee jaam yi dafa leen a wóotale ne penkook soowu ku nekk xam na ne dañu ne jullit ñi gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar moo ci gën gannaawam Umar gannaawam Ousmane gannaawam Ali mu ne day suñu borom ci li muy defee lu ko soob yonente bi sama daf daan wax ni inni la ajidu nafas rahmaani min jaanibil yaman mel na ci misaal ci wolof bu ñu ko doon wax ne mel na suñu borom xetam ak may xeeñ ci wet gi fekk booba ka fa nekkoon bokkul sax ci saaba yi mu di uwaytul xaran yi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon yi ni leen ku ko ci na ko ñaan loo ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko nangu mbindeef yooyu nga xam ne lu ñu ñaan suñu borom dana ko nangu day am ba bañuy ba bañuy ëpp bunti tuub bis bu ñu ubbee nag bunt tuub la dootul am waaye feek ñu ngi ub bunti tuub mbindeef yooyu day am mooy ñi mbindeef yi nga xam ne dañuy sabab texe ndax sidna Omar ak sidna Ali ñoo gis Uwaysul Qarani bi ñu ko gisee di ko ñaanloo mu ne leen ku jóge ca Muhammad ibn Abdullahi di ñaanloo kenn te mu ne leen bañ ko ne yonent bi kat mo wax ne ko la gis na la ñaan loon ndax lo ñaan yàlla def ko mu ne leen waaw waye Muhammad day yéen gis leen ci mom lu dul takk ndoram ñu ne ko ah ba abou bakkar sax mu ne leen ba abou bakkar sax tak ndoram do nga la gis waxtaan nañ ko ay yooni yooni yoon ñu ne ko waaw yow ndax gis nga al alxaqiqatul muhammadiyya moon ne suñu borom muril na ma juróom-ñaar fukki jinni ki raay def benn bu ma ci jégué won lak ni karaw di lak ci safara gaañoo ñu nak nga xamne duñu ay yonent duñu ay shuhada te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom bind na gaa ñoo xam ne du ñu ay yonent du ñu ay shahid te yonent yi ak shahid yi dañ leen di ñee yomal xiyaam nañu am na gaa ñi bokk te kumpale ña ca bokk duñ ko wax sañ ñu ko wax jaam ñooñu mën nañoo faggul ab jullit ak pexe goo xam ne gu dappetoo lay doon gaa yàlla yi ñi ko ci wax ñi leen xam xam ne lu ñu wax dëgg la nangu nañ ko ñi leen xamul bu ñu amee maandu ne dara wóor ñi leen xamul bu ñu amee maandu ne dara wóoru ma ci bu ñu amul maandu ne amul mënu la nekk waaye weddi moom gis ngeen ni ko Sidi Hadj Mali ñu waxee ne weddi lu gaaw la ci alak nit weddi ak jot li ko la ci luy alak nit ndax kenn mën lam yoxe bi jumla ci sharia inkaar wa lim hëlëkin sharia ndax loolu képp koo xam ne peeguloo sharia lépp ba xam ko waruloo weddi te sharia moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam doo nga ko peeg te diggante jaam bu nekk ak boroomam mel ni mbindeef xamu ko lu dul yàlla ak moom la mu ko ca xamal te moom sax du xam lépp ndax da nga gis nit koo xam ne suñu borom defal na ko fatxu mu jàndoog adduna bépp bépp bépp ak li ci nekk ak lëndëm lëndëm yeeg roq yëpp mu mel ne pepp dugub boo teg ci sa tënk leere noonu ci moom nga gis koo xam ne suñu borom xamalu ko dara dara dara dara gént sax du ko def te ëpp daraja kooka yomal xiyaam fa suñu borom tabaraka wa taala xam ne kon suñu borom ay kumpaam dafa bari képp kuy weddi nag umpale nga yàlla umpale goo xam ne dara mënu koo weesu ndax bu fekkente ne wàll yi dafa wax ne yonent yàlla ibrahima bi nga xam ne kat gannaaw muhammad moo gën ci mbindeef fii bañ ko sànnee ca kàmbug safara ga sama ñaan moo tax safara wa fay koo xam ne faqih rekk la du ko nangu mukk ndax baatin la xëy na du ko gis fenn waaye ka ko wax moom xam na ko lu leer ki nga xam na nag nee na mën naa fàggul ab taalibeem métitu sukuraat te suñu borom may na ko ko te fàggu na ko fàggul na ko lu rëy rëy bu faboon ndeyam ak baayam ak boppam jaay ko jox ko it lu jot mukk xàqam nee sëriñ bu mat sëriñ dana nemmi ko xolu taalibeem ci xasiinu bët bu nekk nangami yoon te bu ñu koy dugal ci bàmmeel moom moo may ànd te am na sëriñ soo xam ne mën nañoo tontu lay munkar ak nakiir taalibe bi toog di ko seetaan kon nag sëriñ mënu la jot mukk taalibe bi mënu la jot mukk sëriñ ca lam ko mënal yooyu yëpp bunt yërmande suñu borom yi nga xam ne du jeex mukk te kenn xamul nu mu toll Cheikh Abou Yazid Bistami radiyallahu anhu mas na di tax ak moom ndax li ñuy wax albast wal qabd ay maqaama la ci maqaamay góor yàlla ñi albast boo ca tolloo suñu borom daf lay may nga ñeme am xel mu dal ba di wax ak moom mel ne koy wax ak nit suñu borom dal di wax di ci abu yusuf ci nelawoowu ne ko yow sama jaam bu bon mi bu ma waxoon nit ñi say bon bon kon kenn dootu la nuyu mu ne ko yow it séen di ju bari ji bu ma ko wax nit ñi kenn dootu la jaamu mu ne ko ah bu ko wax de mu ne ko waaw yow it bul wax yéem ne yàlla jooju tabaraka wa taala nga xam ne àjjana la jëmale lépp indi ci tuuti ci àdduna wax na ci ay jaam yoo xam ne wa seete quutul qulubi abi talibin al makki mu ne inna lillahi ibadan law saaluhu an laa yuqima saata lam yuqimha suñu borom am na jaam yoo xam ne bu leen néewoon buñ ko néewoon bu saa taxaw mukk yomal xiyam dana dana fomm loolu doy doy waar la ak nga xam ne nee na bu ñu ko ne woon baalal iblis mu baal ko abdul talib lin makki de moo ko wax fekkuutul xulub gis ko ci kon nag weddi dara ñàkk xam la ndax weddi mooy li def lépp man xam naa ko te lii nga wax nekku ci kon weddi naa loolu nag kon saxal moo gën a wóor weddi ndax ci saxal benn dafa xam xam gi benn dafa dégg wala mu jàng wala mu gis ki weddi nag gisul déggul xamul dafa gëmul rek gëmul nag ne nangam amul ah, yow yaa xam yaak sa boroom bu ëllëgee ba kumpa yi ba nga xam ne lépp lu lëntoon jaam ñi suñu borom daf koy feeñal ca taxawaay ba boobaa rek leen ku nekk di xam fa nga toll ak la nga daan jëfe la ca baax ak la ca baaxul lañ ca nangu ak lañ ca nanguwul la nga doon jëfe te mu jaar yoon ak la jaarul yoon bu keroogee te mu boobaa nag dana fekk lépp wéy mënatoo dellu si dabaatal dara li ñu wax ne yowmal qiyaam alquran yowmal qiyaam taawil ji taawil ji yowmal qiyaam rek lay feeñ te bu boobaa lu muy jëriñati ndax fekk na jaam ñi kenn toggatu leen jëf kenn santatu leen dara kenn tereetu leen dara bu boobaa buñ ko xamee it mënatuñ koo jëfe wéy na traayu bàmmeel boo seetee téere bu ñuy wax iqtidaa siraatal mustaqiim muxaalafatu ashaabil jahiim dañu imam malik radiyallaahu anhu benn taalibeem faatu woon na bi mu demee ci bàmmeel bi nga xam ne munkar ak nakiir ñëw nañ di ko laaj imam malik daal di teew ne xanaa xamu leen kii ku toll ne kii kenn dana ko laaj bàyyi leen ko ci daal koy bàyyi kon nga xam ne suñu borom sàkk na ay jaam yu mën ba foofa yu mën ba foofa taayu bàmmeel nag ëpp ka ca mën a fekku jaam ñu baal ko gannaaw moom ku yàlla baal ku dox ba dajeek moom suñu borom baal la nga jóg ngir moom suñu borom baal la gis ngeen bayit yooyu إذا لقيتهم أو كنت زائرهم من فارقتك الدهر أو زائر بالزيارة تلقى كل مكرومة وينتفي باللقاء الفقر والعار ينقم جنكم waaw benn arab moo doon wax ne suñu borom am na jaam ñoo xam ne lillaahi qawmun isa xallaw bi manzilatin wax béréb bu ñu wàcc xallan na daa tabis bu tabuk suñu borom di dal fay wàcc wa alat fil jawi anwaaru ay leer wàcc ci jaww ji tastaqum kullu ardin yanziluuna biha fépp suuf suñu wàcc suuf si daf leen di namm ni suuf su bekkoor maran di namme taw ñoom sax ñi ngi mel ne ay taw lañu ñeel pàkki suuf yi pàkki suñu borom yi dégg ñu teg ci ne boo doxee ba dajeeg ñoom isa laqitum aw kunta zairahum bium nihim faraqat ga dahraw kenn dootu la bindal bàkkaar ba diirub jamono feeg yaa ngi dund kenn dootu la bindal dox ba dajeeg ñoom rek kenn dootu la bindal bàkkaar loolu am na solo bayt woowu maam Cheikh a ko waxoon sëñ Fallou Mbacke teg ci bis ziyaarati talqa kulla makrubatin wa yantafi bi liqaay al faqr wal aar waaw ndax ki gannaaw kon ci siyaare googu ngay dajeeg bépp teraanga ndax ñoom ku leen ganale ñu teral la ci baatin wala ñu teral la ci zaahir dajeeg ñoom itam gannaaw moom ñàkk ak gàcce day tax mu dàqu ci yow ba faw lu ama am solo la yaslubuhum kullu man qad kaana zairuhum an walidayhi wala tatu awtaaru sëñ Ibrahima bàyyi ko ci tegoon képp koo xam ne ziyaare nga leen te xam leen da ngay daal di fàtte sax say waajur waaw ndax waajur ñaar la waajuru ruux ak waajuru yaram waajuru yaram bi yaram bi lay dundal di ko aar di ko faj di ko topp toppatoo waajuru ruux ruu gi lay sellal diko tagat diko foot diko beugal ba nit ki meuna texe motax way kat dine اقدم استاذي على حق والدي ولو كان لي في الوالد البر واللطف فهذا مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم وهو اللي وصفه جيتلنا سما حق سرين تي سما حق واجر خمي حق واجر موم فراتلا مو ملي بور بولب دو جيغي سرا تفيروكو واجر لي ني داتيو اك لي ني سون تي لو ورا فايلا sëriñ bi nag mel na heure supplémentaire maanaam loo xam ne yaa ko defal sa bopp la waaye nag la mu lay fàggul moo gën li la waajur yi fàggul ndax waajur yi sa yaram bi rek lay toppatoo boo deexee tàggoo ngeen li nga xam ne nag mooy setal sag roo dina fàggul ak texe adduna ak alaxira mooy moom la ñu tuddee waalidu rooxi maanaam baay bi nga xam ne mooy baayu ruux gi xam ngeen ne yow ma alastu ba suñu borom bindee ruux yi te bindagul jëmm yi ba mu ne alastu bi rabbikum ñu ne bale yonente bi sallallahu alayhi yu texe yëpp dañoo dal di wax ci coobarewu ruux texe di yëpp ñu forcé a wax gi nga xam ne nag dafa war a texe suñu borom sàkk na sabab ya muy jaar ba texe bu fekkee ne sabab ya mu war a jaar ba texe jaar na ca fokk mu texe ki nga xam ne nag fàttaliku ne bis boobaay xam ña fa toogoon xam ña njëkkoon a tontu ak ña ñu forcé ñu soog a tontu Cheikh Abdoul Wahab Sahraani wax na ko boo seet la taayiful mi nan gis ko nee na maa ngi fàttaliku keroog bis penc waxtaan ko ay yoon bi yi te borom bindagul nit ñi bindagul dara lu dul roo yi rek maa ngi fàttaliku ñu doon ci sama kanam ak ñu doon ci sama gannaaw ñu doon ci sama ndeyjoor ñu doon ci sama càmmoñ lépp keroog bis booba laa xam sama ay taalibe bis booba laa leen xàmmee di leen tërbiyee ci baatin ba ñu nekk ci seen baay ma di leen tërbiyee ci baatin ba ñu nekk seen biir ndey yow ma xiyam suñu borom xamal na ma kenn ku nekk sa place ci na ku ne ma dégg am na ku dégg naa ci maam Cheikh mu ne suñu borom nee na ma yow yaag Abdul Wahab Saarani bi wàllu yëpp meloon ni yéen safara gent bis penc ba mu des bis penc ba taxawaay ba Cheikh Abdul Qadir Jilani wax na ci alxuniyatu li taalibi tariq al xaq boo ko gisee nee na boo ko seetee da nga ko ci fekk nee na yomal xiyaam ñi nga xam ne dañoo soppante woon ngir yàlla jàppante ngir yàlla def seen bopp ay mbokk ngir yàlla bu yomal xiyaamee taxawaay boobu li muy metti metti ak li muy tiis tiis ñoom duñ ko yëg suñu borom daf leen di yóbbu ci béréb boo xam ne daf leen di beer ndeel ay xeeti xéewal ak xeeti teraanga ba buñ fa jógee dañuy laajte naan bis penc ba kañ la ñu ne leen ah loolu ñëw ne weesu na bu yàgg fa la ñuy jaare dem àjjana waaw waaw kooku ngay wax itam kooku ngay way nee na suñ borom daf ko jéggal momit jéggal fepp ko and ak mom bo sété irwa wu nadim bi Cheikh Ahmad lamin Diop dagana nee fa amon nar bo xamné bu ragal yalla la bari jaamu yalla loolu bis mu ubbi kamil bi suñ borom wan ko ci lo xamné dafa niro gént te du gént mu ni gaay yalla yi di dugg ci pey bi suñ borom di len may kenn ku nek lam la may doy la ba nga génn nee na Cheikh Ahmadou Bamba dugg bi mu génnee nee na moom ki doon jàng kaamil nee mu ne ko dama la yónnee ak ca suñu borom boo demee ne ko mbooloo mu bare bare bare bare topp ci man na yokk li ma may nee na mu del mu dellu nee borom ñu yokk ko yokk ko ba nga xam ne may na ko lu lu doy ñi ko topp ñëpp ñëpp ñëpp mu ne ko dellul mu delluwaat mu may ko loo xam ne daf koy tasaare ci adduna bi boo seetee irwaa u nadim boobu da ko ci gis kon ñetti tontu yooyu ñetti laaj yooyu loolu rek moo ci bëgg ndax boola sa dégg ci sa conférence yu bari ne suñu borom dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta bi moom bëgg ko yàlla bëgg moo ko jariñ waaye bëgg gi ñuy bëgg sëriñam nag moom moo ko jariñ lu mu gën a bëgg sëriñam rek di jariñ ci moom day itam ma gis benn ci taalibe yi maam Cheikh yu jëkk yi ak sëñ Modou Fall wax ci benn xasida naan xubbi lahu fataxali jumlal funoon min xayri ma taalumin min fil funoon mu ni bëgg gi ñu bëgg sëriñam boobu di maam Cheikh Mbaye ci la ko suñu borom bulee fànn yépp ba nga xam ne dafa nekk yëyu ci xam-xam way way rafet yooyu ci bëgg dëre la ko bëggee kon boobu ma wax taalibe yi kon bu leen seen léeg-léeg xëy na ñuy laaj bu leen waxtaanal ci seen tëri ah ñu mu gën a dolliku gën koo xam ndax ko di ko gën a bëgg moo tax xëy ñuy laaj ku leen waxtaan ci maam Cheikh dana am jam naan yow doo maam Cheikh suñ borom moom bëgg bi ko bi bëgg njëriñu bi la bëgg gi bëgg bi la dana noppal dana sonn dana noppalu sëriñ bi nag bëgg gi nga xam ne moom la la bëgg moo la dul jëriñ bëgg gi nga ko bëgg yow moo lay jëriñ kon ku yàlla may nga bëgg sa sëriñ moo tax ñu bëgg nit ku nekk fa mu féete mu jéem koo xam ndax bu amee bëgg gi jëriñu ndax sëriñ bu mat sëriñ ku ko xam bëgg ko te boo ko bëggee bëgg ga moo lay jëriñ ndax bëgg nitu yàlla mooy bëgg yàlla gannaaw nit ki bu amul boo foogul woon ne am na yàlla doo ko bëgg kon yàlla tax nga bëgg ko te bis bu la leeroon ne ñàkk na yàlla dootoo ko bëgg kon yàlla nga bëgg moo tax bëgg nag day àgg foo xam ne du wuteeg ndox lu bari te yëpp lu ci nekk mu ngi ci kase bi ma wax ko ci bari na lool am na ci yoo xam ne wax naa ko ay yoon ndax bëgg ñu dégg ko lu bari ba mu sax ci xel nit ñi kon bëgg ñoo xam ne moom la sëriñ bi bëgg taalibe bi jëriñu ko dara mooy li suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yashaa buhaaram bil muhtadina yow bu caagi ne koo bëgg rek mën koo jubal waaye su ngeen abu taalib nga xam ne bàyyi la woon ci yonente bi lu ne defal na ko ko waaye taxul mu tuub dugg ci lislaam suñu borom jubalu ko ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ko bëgg waaye suñu borom tabaraka wa taala bëgg ko suñu borom moom mooy jubal ku ko sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ku ko bëgg texe ku ko bëgg texe waaye du caa nit koo xam ne ku mu bëgg rek nga texe nekkul loo xam ne qaida la buñ mën a wax jom lu nag mën naa am ci mbirab suñu borom def ko te nit xamuñu ko ndax lu ko soob rek lay def suñu borom moom amul ak tënk amul qaida amul foo fii suñu borom du ko wees wala nii du ko def wala lii kenn xamu ko ndax laa yasalu amma yafalu moom yasalu na suñu borom kenn du ko laaj li tax nga def lii fa alim li ma yurid la du ko sob rek def ko ba di jàng tawxid daañu la wax li wax mustahil mooy lu mënu la am waaye mënu la am ci aada ci àdduna ci xelum bindee fi waaye lu mënu la am ci yàlla moom amul ci yàlla moom lu nekk rek mën naa am lu mënu la am dëgg dëgg te mënu la am mooy jeneen yàlla am wala suñu borom nguuram gi mu bokk ko kenn wala suñu borom tële lenn wala lenn nëmmu ko ba loola am loolu moom mënul am la mustahil mooy mustahil dëgg dëgg dëgg dëgg yi bëgg gi xam ne nag moom la taalib bi bëgg sëriñam ndax suñu borom tabaraka wa taala xam ngeen ne ba mu bindee suuf yi indi tax mu sujjóotloo malaayika yi ci aadama am secret bu mu def ci aadama te nekkul ci malaayika yi secret yooyu du fi jóg mukk yonente bi sallallahu alayhi leeram du jóg mukk ci àdduna jaam ñi dañ koy séddoo ku ci nekk ak la nga ca yeyoo ak la nga ca suñu borom nga xam ne leeru yàlla boobu nga xam ne moo nekk ci jaam ñooñu mooy tax ku leen bëgg texe ndax leeru yërmande suñu borom tabaraka wa taala fu mu nekk ku ko bëgg texe ñi nga xamee ne moom mu bëgg la yow leer googu nekkul ci yow moo tax bëgg gëm la bëgg amul jeexit yow mi nga xam ne nag yaa bëgg ki nga xam ne jeexitu leer googu mu ngi ci moom te loola jóge ci yàlla te yàlla ku ko bëgg texe loolu moo tax taaliba bi bëgg gi mu bëgg sëriñam moo koy tax texe tax lu tax mu bëgg ko yàlla doo nga tax mu bëgg ko li ma wax sànq ne bu dul woon yàlla du ko bëgg bu xamoon ne amul yàlla it du ko bëgg xol bi mu ko bëggee bëgg gi mu ko bëgg mooy bëgg yàlla bëgg yàlla nag mooy sababu texe kem ni nga bëggee sëriñ boobu ak ni maqaamam toll ci yàlla dafa texe di toll waaye xam ngeen ne ak texe jëf dana ko yokk ndax boo gisee ne jëf waxtaan nañ ko ci ay conférence jëf dana rëy te dana tuuti fekk mu rëy te lu ko réel waxtu wañ ko jëfee tax mu rëy wala jëf ji tuuti te rëy loolu fa suñu borom te lu tax mu rëy bërëb bañ ko jëfee tax mu rëy jëf dana doon lu tuuti te fekk mu rëy ca yàlla lu tax mu rëy xanaa kañ ko jëfal moo tax mu rëy wala la tax ñu jëf ko wax naa leen léegi bu ñu nee saxaaba yi seen jëf ni picc mi ñuy wax printemps gën a gaaw ci picc yi ni mu gën a gaawee mellantaan wuy dox ci suuf noonu la jëfi saaba yi gën a rëy jëfi keneen ku dul saxaaba yi am na nag ay exception waaye loolu mooy li nga xam ne mooy qaa alqaidatul amma lu tax loolu moom ñooy ñooy yi nga xam ne gannaaw yàlla ñoo tax lislaam taxaw ba nga xam ne ku julli wala nga woor seen coono yooyu ñu sonn ñéefar yi bañ ñuy xeex ak ñoom jaay seen bakkan ba lislaam taxaw ba agsi ci yow tax ngay jullee ko woor sa julli googee sa koor googee daañ ci am lu toll ne la nga ca am ndax ñoo tax nga def ko budul woon ak yow budul woon ak ñoom yow doo ko def nodd nag bu njëkk gi moo war ñu déglu ko ñu di ko ñuy nodd ngay wax dana waral sukuraat su metti dana waral jëf ju yàqu waaye nodd bu njëkk gi bu weesoo gi ci topp bu fekkee nit ki mu ngi wax farata mën naa continuer bu fekkee nag ñooñu nag fa ñu jëfee kenn jëfewu fa lu dul ñoom loolu moo réer jëf ji naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku fàttaliku yàlla ci diggante mbooloo moo xam ne ñëpp fàtte nañu yàlla yaa ngi mel ne ku nekk ci jihaar ñëpp daw ñuy xeex ngir tëral lislaam yow nga taxaw di xeex ba mu jeex bu ko defee nit ki nga xam ne mu ngi ci mbooloo ñëpp am lu leen itteel ñëpp fàtte yàlla mu fàttaliku ko moom jëf jooje mu jëf lam fàttaliku bu tuutee dana rëy fi yàlla nga dem ci béréb boo xam ne ku fa dem fàttee jaamu yàlla kenn xelam du dem ci julli nga julli fa li ki raaka yooyu ñuy wax ci sëñ Touba ci géej géej bu bu gouverneur naka noonu nit ki am tiis woo xam ne lu ma junni ci nit ñi bu leen daloon du ñu julli wala daañu tardé julli bi wala duñ jullee nañ war a jullee nit ki daan ba kanam ba def ko julli boobu ak julli rekk la ñeent rakka wala ñett wala ñaar buñ koy fay daañu ko fay fay boo xam dana ëpp fukki junni julli ndax jamono jam ko defe moo tax nga fekk su fukki dëm nga jox ko nit ku ordinaire kii amee ñaari dërëm jox ko nitu yàlla dëgg jublu ci ngir yàlla jëfam jëmu jëf gën na rëy sa jëf ji toll na diggante asamaan ak bu ko waral ñu ko jëfal ak li tax nga jëf ko nga toog am seet nit ñi nga xam ne dañoo tax amuñu yow yàlla jox la nga woo koo xam ne xam nga ci moom ak ragal yàlla akuk not nga bokk ak moom sa alal wala nga yëkkati lu rëy jox ko ngir yàlla nëbb ko sa jëf jooju rëy na li ko waral ba tey ki nga ko jëfal a tax ci ki nga ko jëfal ndax dañu ne wa luqmatun tasuddu batna jaare afdalu min binaay alfi jaame benn ti bu ñam boo def ci biiru aji xiif yoo xam ne jullit la moo ëpp yool tabax junni juma xam naa ne mag ñi dañ daan wax ne bu jënax tëbee ñu ne jënax ji de mu ngi toll ne nag bu tolluwal ne nag rëy na lool kon kooku nga xam ne fekk na ku xiif mu jox ko lu mu lekk jëf na jëf ju rëy ndax suñu borom tabaraka taala dafa ne jaam bi yow day tawat naa seet si ma mu ne ko yow rabbul izzati na ma lay seet si ak looy tawate mu ne ko sa mbokkum julit diw sàngam tawat na seeti woo ko boo ko seeti woon fekk ma fa xiif naa leeloo ma yow rabbul izzati na ma lay leele diw sàngam sa mbokkum julit xiif na boo ko leeloon leel nga ma ba mu àgg ab qissa la boo xam ne xadis la yonente bi sa ko wax waxtu gàpp sànni de xanaa war nañ ci bàyyi xel kon buñ jullee ba noppi fàttu ci moom la laaj yi wala ci laaj yi dañ dellu ci laaj yi ba kii gannaaw dañuy delluwaat fee yam na ci laaj yoo am solo yoo xam ne euh, nit ki lu mu umpale ci diineem bu xamoon dina xam ne jar na ci moom doxe fii ba gànnaar ndax nit ki dafa war a xam diineem ndax bu ko xamul kat lu manqué moo ko xam sa diine yomb na rajo yaa ngi fi télévision yaa ngi fi jàngkat yaa ngi fi sëriñ kaa ngi fi gis mu wax la kon xam sa diine gannaaw farata la war na nit te jullit bu ne lañ koy laaj war xam ne dafa habitué yow yaa ko war a xamal borom kër gi moo ko war a xamal soxnaam waajur yi moo ko war a xamal doomam ndax nit ki bokk na ci yi muy layoo ak doomam ëllëg ba ma waree dal jàng dalaloo ma jàng ba ma juddoo juddoo ma tuuba bari yoo xam ne euh, doom ji di la yokk euh, bàyyam la ku yemal xiyaamee te bu ko yeyee euh, du jekkale fekkee nag fàggu woon na loolu du ko yey kon ñu kon parce que ngeen defar ñu ñu bokk ci man. est-ce que bu ma dindee ay la ni mat na ko kon xelum nit ñi ak laaj yi daje dana bari bari waay boo xam ne il ñu di ko segg di seet kaset yoo xam ne mosu ko cee wax ak yi ëpp njëriñ ci doomu aadama yi mu tànn ko bu ko defee laaj ko mbooloo mépp mën cee jariñu kenn ko ne laaj boo dégg même boo xam ne ni du so bu mënee jariñ jullit ñëpp rek ñu rafetlu ko léegi nag euh, dañoo dajewoon ci bëccëg asuntal laaj yoo xam ne war naa mat ñeenti laaj euh, bi moom nee na gannaaw nuyoo mu yàgg fi lool dafa gis ne nit ñi nee na ñu bari réer nañ lool lu nekk ñu ngi koy wax euh, ci rajo yi ak di ko bind ci téere yi léegi nag nit ñi xamuñu fu ñu jëm ñu bëgg ku ñu gindi ci laaj yi bi jiitu nee na ndax war na ni ko waa rajo yi di defe maanaam boole ko ci boole boole boole ci ñëpp wala di ko bind ci ay té ay téere muy laaj ndax loolu war na wala ndax wóor na waaw maanaam joxe ci téere yi neen ak ak rajo yi waaw waaw nga xam ne dañ ko dañ ko yemale pour mboolem amatu naas bi rek julli doomu aadama yëpp waaw loolu ndax lu war la wala ndax wóor na waaw waaw dégg ngeen laaj bi ni mu wax ne wir bi yi ñu joxe tur yàlla yi ñu di ko dégg ci rajo yi ak ci télé yi ndax yoon la ndax lu war la wala nu mu demee tur yàlla de ñaari xaaj la li ñu tuddee al isnu al aam ak li ñu tuddee al isnu al xaas al isnu al aam mooy suñ borom ni mu santaanee ku koy fàttaliku di tudd turam ni mu tagg gaa ñi nga xam ne dañoo saxal turu yàlla ci seen gémiñ di ko taatanu ci seen xol muy dugg seen biir xol ñi di ko yëg ne alladina yadkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك mu tagg gaa ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla moo xam ci seen lan wala ci seen xol dañ koy tudd waxtu wu ñu taxawee daañu taxaw di ko tudd daañu tëdd di ko tudd daañu diju di ko tudd suñu borom tagg leen suñu daane ne adkuruni adkurkum washkuru li may fàttaliku maanaam na may tudd ma di leen fàttaliku suñu borom du fàtte day fàttaliku waaye maanaam li mu tekki mooy mu jëf leen teeg yow jëfi ku la fàttewul yooyu ndigal la yoo xam ne dañ ko digal jullit ñëpp jullit ñëpp digal nañ leen tudd yàlla te tagg na suñu borom tagg na ñi nga xam ne dañoo saxoo di tudd yàlla fu ñu toll rek bërëb bépp boo xam ne bërëb bu laab la bu ñu terewul ku fa tudd yàlla ni ki bërëb ñuy wax fi nit ñi demee doxe seen faje seen aajo maanaam euh, kanifa yi mooy duus yi daal araam na ku fa tudd yàlla boo amee jaaro boo xam ne sax bind nañ ci turu yàlla da nga koy summi bala ngay dugg boo amee gàllaaj bala ngay dugg da nga koy summi wala maaw yi am nañ ci ay wax ñeeñ ñeeñ bu fekkee ne dañ koo muur ni ki nu ñu ko dañ koo ëw ak der dagan na nga duggaale ko am na ci ulama yi ñoo xam ne wax nañu loolu waaye itam nga summi ko boo ko mënee ba tey moo gën a sell waaye boo ko dugalee ka nga xam ne itam dañ koo ëw der muur ko itam dañu bàkkaar nekku ca xam ne kon tur yàlla jullit daf ko fonk ba nga xam ne dafa jaxasoo ak dundam ci lépp loolu mooy al isnul am li ñu digal bépp jullit suñu borom moo ko digal bépp jullit boo ko defee tuyaabaam bari na lool al isnul nag mooy ndigal loo xam ne lu particulier maanaam lu ñu jagleel ñennati nit la ndigal loolu nam demee jëmm joo xam ne dafay aarif billahi benn seydina xadri jox ko tur wala malaayika jox ko tur wala mu gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci gént mu jox ko tur wala mu gis ko jahran mu jox ko tur ci gént wala koo kenn koo xam ne ci kenn ci ñooñu moo la jox tur wi sàkkal la lim boo ca yem muy nga di ko sikkar sax ca saxoo ko muy fët sa xol ba nga àgg ci yàlla waaye ŋàññi nañu tur yàlla woo xam ne da nga koy tudd ngir yokk wërsëg wala ngir am alal wala ngir am teraanga da ngay tudd yàlla namm ci jëmm yàlla rek boo ci nammee jëmmi yàlla rek amna agway bo xamne bo ci agge sun borom notal le mbindee fi ñi faj sa aajo wala mu yok sa wërsëg wala mu barkel sa lépp wala mu faj sa aajo al ismul xaas boobu nag day jige ci arif billahi arif billahi moy kan moy ñi ma waxoon ki nga xamne ndax malaika yi amna ci nit ñu xamne xam malaaka la malaaka mo leen di tërbiye tarqiye leen ba àggale leen ci yàlla am ñoo xamne sayyidina khadir mo leen di feñu tërbiye leen am na ñoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam wala kenn ci ñeen ci saxaaba yi bu fekkee nag benn aarif wala kenn si ñu ma doon moo la jox tur wala koo xam ne ñoo ko jox kooka ba kooka joxat keneen di ko jox lante ba mu agsi ci yow ñu jox la ko jox la charte yi jox la lim ba wax la waxtu waxtu yi nga di ko def te bàyyi woo ko insha allah da nga àgg ci yàlla ndax tur woo xam ne al ismul xaas lañ la ko joxe ak wum ci mën a doon day fóot xolu nit ki ba mu gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ñi weddi naan kenn mënu la gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ñoom day xam nañ ne ñoom gisuñu ko kon te xamuñu it ko ko gis waaye bu ma génnoon jaar fii dajeeg bukki wala gaynde bu ma ñëwee bu ma nee daje naag gaynde wala daje naag bukki man de dama wóor man ñi xam ne it doyloo nañ ma ba xalaat nañ ne lu ma wax dëgg la ñoom daañu ko gëm ñi si des duñ ko gëm buñ ne maa wan ma bukki bi bukki ba dem ma leen koy wane mel ni ki mos suukar si kii moom mosoo gis suukar mosu koo dégg nga mos suukar xam ni mu neexe mu ne la wax manu mu neexe noo koy wax dog ma na a misaal mukk ak yëg lay doon loo xam nag da koo yëg ci sa xol moom mënuloo yëgloo nit ki loola te jaarul fa nga jaar ba àgg fa nga àgg al ibnu xaas nag day fóot xol nit ki ba nga xam ne benn xalaat bu jëmul ci yàlla wala bu jëmul ci luy defar wala bu jëmul ci dimbali wala xettali wala yàqulu defar du dugg ci xolam ci istidaad boobu ngay mën a gisee sallallahu taala alayhi wa sallam nga gis malaayika yi moo gën a yomb nga gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon nii ngeen di mel bu ngeen toogee fi man may waare ngeen di ma déglu bu ngeen doon mën a wéyee noonu maanaam fa seen xol ak seenug yëg ni muy mel ci bu ngeen toogee sama wet ni may waxee ngeen di ko dégloo noonu ngeen sax ci noonu melo mel muy seenu melo da ngeen di nuyoog malaayika yi saxaaba yi ñu ci bari def nañ ko imran ibnu xusayn dafa daan nuyoog malaayika yi di wax ak ñoom benn bis suñu borom nattu ko ndax xam ngeen maqaama yu sore ku ca àgg suñu borom dana la teg ay piis toujours suñu borom teg ko benn taab boo xam ne dafa ko sonal guddi bëccëg nelaw di metti ñu ne ko da koy gàjj mu wér gannaaw suñu borom ko tegoon te fi mu tolloo tax mu teg ko mu dem gàjj ko tooñ ne gisatul malaayika mu di ko jooy di ko naqarlu di ko métitlu te yàlla dogal taab gi dalaat ko mu bañ koo faj ah suñu borom wanati ko di ko wanati malaayika yi ki nga xam ne mu ngi gis bu continuer ci li mu doon sikkar di ko wérd ba mu yàgg dana gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis yonent bi sallallahu alayhi wa nag jafe na te maqaam mu sori na àgg soog ko ndax boo ko jafee dootoo yàqule mukk dara dara mënatu la yàqal boo xasee gis yonent bi salaam dara mënatu la yàqal dina moo tax maqaam mu kawe la tur yàlla dana ci yóbbu nit waaye nag buñ la ko waxee buñ ko yombalee nax nañ la buñ ko gaawalee nax nañ la day sax ba muy dindi gépp bëgg àdduna gépp bëgg daraja gépp noonee ñu di diw def na man nangam yéene naa ko lu bon wala danaa fay wala danaa def nii lu tax mu di ba def nii yépp day dañ saxol ba set leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam soog a mën dugg ci sa xol kon tur yàlla yi waxtu tur wu mu doon rek ci al ismul am tur wu mu doon rek nit ki di ko sikkar te yàlla tax te yàlla tax dana fóot xolam dana ko womat jëme ci ngëm yokk ngëmam tur yàlla yi nag dafa diis am na lu muy bañ ak lu mu bëgg bul ñàkk laab di ko tudd bu ko tuddit te doo teewlu bu ko nam bu ca namit benn njëriñu àdduna naan tur sàngam téere yi nee ñu boo ko dee sikkar da ngay bari wërsëg wala boo defee nangam la kii yooyu yëpp day dog day dog nit ki ci yàlla day dox digganteem ak yàlla du ak yow yàlla taxul ngay wird li tax ngay wird mooy lan mooy wërsëg àdduna tax ngay wird mën na alal nit mën na yàqal nit mën nga wird téeméeraat doo lañ la waxoon doo ko gis doo ci dara tur yàlla kon الاذن العام دا فام الاذن الخاص ام الاذن الخاص موي ادال نيت سي يالا الاذن العام دا نا سيتال خلو نيت دا نكو ديف جولي دغ موي كيغا خامني دا فاي سكر ساخوكو تا ديكو تيول تا يالا دونغ تاخ دا نا ام لو خامني كيس كو سكرول دوكو ام سي تيابا سي تيرانغا سي خيوال سي موتش يالا نك بو سي جيمي فوك نغا ام نتو فوك نغا ام تيس benn waaye dafa ne woon yonent bi sallallahu alayhi man daal ku la sopp laa mu ne ko séenul fitna ak musiba keneen ne ko man de ku sopp suñu borom tabaraka wa mu ne ko séenul ñàkk ak coono waaye nit ki bëgg na yàlla si kër yooyu ñu wax ak jaamu yàlla yooyu tax xol day xiif di mar di ràgg di tilim xol bu tilimee dañ ko war fóot bu tawatee dañ ko war faj bu nelawee dañ ko war yee nan nga koy defee lu baax bu ca xeeb lenn foo dégg ñu ne daañu fa waxtaane lu baax nga déglu ko te jéem ko jàpp foo fekk lu baax nga dugg ca foo fekk lu bon nga daw li la lislaam digal lépp nga di ci def li nga mën lépp ñàkk boobu yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ak musiba moomu ak tartar yooyu da dem ba mu neex ci yow da dem ba mu neex yow ndax bu la dalee da ngay dal di ab biir bu tuuti rek nga dal di jànloog li mu lay indil nga gis ko jahran li nga daan gis ci sa xol da ngay dem ba di ko gis sa bët nga xam ne bu adduna bépp daje woon ne la li ngay def jëriñul dara du jëriñ dara it da nga leen di ree rek waaye du tax nga am benn tomb sikki sàkka ci yow li nga xam ndax daf lay wóor ne yow gis nga te ñoom gisuñu ki gisul la muy wax ki gis ku gis ki gis ko war a faale waaw kon gannaaw jamono bi dafa gàtt laaj yi defe naa xaw na bari ci mbirum tur yàlla loolu lañ ci doon wax am na al ismul am ak al ismul xaas al ismul xaas nitu yàlla fi moo la koy jox wax la ñaata nga koy def kañ nga koy def lu tiis la nag diggante bi loolu da nga ko fi gis fu ne da nga fa jaar lu doy waar la waaye nag kii joxe tur yàlla ñu mel ne docteur bi rek ñu koy faral di misaale docteur bi xam na ban jàngoro la dal xam na li koy faj xam ne waxtu yu muy metti yi mu ak yàq ci waxtu yi nga xam ne danga am jàmm ko defee it fekkente ne ku ñuy tarqiya la waxtu woo xam ne gis nga xamul day dem ci aarif bi ko joxoon tur yàlla bi kon nangam ak nangam ak nangam lay yëpp mu ne ko doxal defal nangam defal nangam defal nangam loolu daal di dañ loolu moo tax cheikhu tarbiya ngir àgg ci yàlla mënu la ñàkk cheikhu tarqiya mënu la ñàkk ndax cheikhu tarbiya war naa xam jamono xam xeeti réew yi ak la fa nekk xam biddewu asamaan yi lu ñuy jeexital ci suuf ak lu ñuy jeexital ci ñi lu ñuy jeexital ci gàncax gi xam yàqu-yàqu yi forme yi muy dikke ak fa muy jóge ak na muy dikke ak la koy fekk ak la koy dindi cheikhu tarbiya dafay war a xam nit ki nga xam ne bu àndoon ak fukki nit ñëw ñi xam ne médecin bi bu leen passé visite kenn ku ci mu xam sa jàngoro xam ne bokkale wuñu cheikhu bëgg adduna bu dee bu dee tayeel bu bu dee bëgg nelaw ak bu dee bëgg daraja bu dee bari ak bañee nit ñi ci lu tuuti lépp mu xam ko xam ne koy dindi kooku bokk na ci charte cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya nag moo féete kaw loolu waaye ci tur yàlla bi rek lañ doon wax euh, ki lay tarqiya mu fokk li ci gën a bari dana benn mu jox la tur yàlla wala mu liggéey loola loolu lépp nag dafay waxtaan yu xóot yu xam ne jamono bi du ñu may ñu àgg kon euh, laaj bi ci topp. waaw bii moom nee na ndax euh, sëriñ am na ndax nit moom mënal na moroomam dara am ndéet di ma ci ba tey ñaari aaya yi al yawma laa tamliku nafsun li nafsin sayun euh, ila axiri laaya waaw لا تسروا لا تسروا واسروا أخرى واو أخرى واو واو السلام عليكم لا جنك بمونا لا سرين أمنا سرين أمنا سرين أمنا suñ am na ndax euh, dafa lay leer na mënul ñàkk adduna lu mu ci doon rek lu mu ci doon rek la doo juddu xam ko wala nga mën ko te aaji woo la teqantal yonent bi sallallahu taala alayhi wa am na ñaari sëriñ kenn ki mooy jibril alquran fa mu tàmbalee ba fi mu jeexee Seydina Jibril moo koy indil bu gisee ci kaw suuf lu mu jaaxal lu ko jaaxal Seydina Jibril la koy laay ba ba mu demee ba ëpp jibril xam-xam mën koo jàngal fukki junne at te jibril bi jeexal li yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam waaye bi mu daataan àgg foofu jibril moo ko daan jàngal bi ko jibril di jàngal lépp it suñu borom wax na ko ci alquran ne ko wattabi millata ibrahima hanifan te millata abikum ibrahima huwa sammakum muslimina min qabl na nga topp yoonu ibrahima di ko dogu wat ci lépp luy mbindeef jëm ci ki bind yoon woowu Ibrahima moo ci njëkkoon a jaar nekk xaniif xaniif mooy koo xam ne bàyyi na lépp lu dul yàlla jox dundam gépp yàlla yonent bi alayhi salaatu Ibrahima di maamam suñu borom ne ko toppal yoonu Ibrahima toppal yoonu diwkaay dafay kooku sëriñ la saxaaba yépp yonent bi salaatu mooy seen sëriñ li xam lépp moo leen ko xamal bi fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee saxaaba yi mboolem lu fi ñëw ci xam-xam ci saxaaba yi la jógee kon ñoo jàngal nit ñi ndax ci hadis yi hadis yi mënu xamal lislaam ndax alquran mënuñu cee génnee suñu diine alquran daf ñu naan jullil rek waaye duñu wax waxtu tisbaar kañ lay jot duñu wax ñaata rakka lañ koy julli duñu xamal ndax dañ ko war a biral wala dañ ko war a yeeru moo ñuy xamal noonu